këru kenn bu ñu bu ñu neexee parce que privé la ñu wax te am kër goo xam ne Sénégal yëpp ko moom xam ngeen fi may wax. Mm-hmm. RTS. ñooñu ñun mosuñu ñu invité. te ñun ñëpp ñu bokk ko suñu alal di ci dugg. muy kër goo xam ne këru ñëpp la waaye këru kenn ki nga xam ne Sénégal yëpp mun nañ fi dajee di wax seen xalaat dañ leen di ñaanal ci weer wi yàlla may leen ngeen gën a jëm ci kanam gën a avancé. amiin. di ñaanal sénégal yëpp comme ñu ngi génn ci ramadan bi ak euh, citoyen du monde bi yëpp ñu leen di ñaanal euh, aydul fitre bu karim bu barkeel euh, te xam naa dinañ ci dellusi ndax dinañ ci dellu si ci kanam ndax <laughs> jamono bu mu dajeel dafa xaw a day waar te ay jàngat yu bari war na ci am ñu ngi leen di gërëm en tout cas bég ñu ci kër gi nga xam ne du gulet ma ñëw fi merci à vous en tout cas d'avoir répondu à notre invitation monsieur le ministre euh, ci noonu aussi plateau bi dama ci ànd ak ay journaliste euh, di dalal euh, kii di Haj Mansour Diop Haj Mansour maa ngi lay ziar. maa ngi lay delloo ziar nee na Aïcha salaamaaleykum ñu ngi nuyu ñuy seetaan le grand plateau ñu ngi nuyu monsieur le ministre di ko sant itam ci wuy si gi muy si invitation ngir ñu waxtaane réew mi wecc wante ci xelal xalaat. macha allah Fatabdou ku fi def nuyu murit nag très nuyu mbër très rapidement. <laughs> nuyu mbër maanaam sell sell te yiw te yàgg. non nuyu boobu la war a def mais bu mu def nuyu mbër. <laughs> moom xam nga moom dafa mel ne man maay doomu bàjjenam ah maa ngi lay nuyu nen ne di nuyu El Hadji Mansour moom bu ndogoo ba pare day kontaan gis nga ko nii di nuyu Ndeye Timet nuyu nag sunu gan Thierno Alassane Sall président ñu ngi lay nuyu di rafetlu teew bi nga teew ci biir plateau ni nga ko waxee ñëpp a bokk toutes les religions mais également toute la classe politique sénégalaise moo tax ñu leen fii woo di nuyu Mouhamed Diop nuyu ñëpp nga xam ne ñi ngi seetaan jamono ji Sen TV très bien naa la waax ne ne di nuyu waa plateau bi yëpp Euh, di ci jiital suñu gan tey euh, muy Thierno Alassane Sall di njiitu République des valeurs am lool euh, mbégte talal ko suñu plateau di la nuyu bu baax nee ne di nuyu Mansour Diop Age Mansour di la nuyu a baax di nuyu aussi Fatou Abdou ma lay nuyu bu baax a baax di nuyu ñu toog jamono ñëpp seen kër dañu ñu seetaan di nuyu tamit Mohamed yaa Rasulallah maa lay nuyu bu baax a baax di la ziar nee tamit yóbbante président groupe parlementaire des libéraux di ki nga xamante ni Serigne Bara Dolly Mbacké moom tamit mi ñuy suivre. Mhm. nee na mi ngi topp jataay bi di rafetlu loolu liggéey bi. Mhm. dëgg la mu ngi koy rafetlu saa su nekk. donc ci noonu la ñuy demee très rapidement jëli euh, le point corona ànd ci ak Mouhamed Diop. moom moom dako xam ba saa yoo ko nuyoo dara naan donc très rapidement allez Mouhamed nuyu nañ la fi yàgg duñ fi yàq ndax euh, waxtaan bi moo ni tëddee day am solo lool ñu ngi lay nuyu ne ne di nuyu monsieur le ministre Thierno Alassane Sall di nuyu euh, sunu naataango sama ñaari jigéen ñi Dimet ak fato Abdou Ndiaye di nuyu euh, Haj Mansour bi nga xamante ni moom itam royukaay la ci ñun alors très rapidement ni nga ko waxee rek dañuy dem jëli ji le point Euh, ak le ministère de la santé et de l'action sociale tey nag docteur Aloyse Waly Diouf moo ñu defa le point dañ koy dem seetaan ñu xooli résultat yi ni mu dikkee tey ci test yi ñu def euh, par rapport ak euh, mbas moomee su ko defee ñu mën a dikkaat mën ko commenter en chiffre c'est tout de suite ci ak téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñeenti test yi ñu def juróom-ñeent fukk ak juróom ñoo ci positif juróom-ñett yi di ay cas contact fukk yi di ay cas communautaire benn ci Cambérène benn ci Derklé benn ci site Bissap benn ci yoof ñeent ci Géejawaay benn ci Almadi benn ci Ngor benn ci Liberté benn ci avenue Lamine Gueye benn ci Kër Massar ak benn ci tuuba juróom benn fukk ci malade yi ñu hospitalisé woon wër nañu bésu tey fukk ak benn cas ñu ngi réanimation yi dalee ko ci cas bu njëkk ba Sénégal woññi na ñaari junni ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñeenti cas junni ak ñetti téeméer ak fukk ak benn malaat wër nañu ci fanweer ak ñett ñàkk ci seen bakkan ci voilà mu nekkoon docteur Aloyse Waly Diouf di directeur bu cabinet bu ministre de la santé et de l'action sociale alors très rapidement nee nañu wax ne ba mbas mi tàbbee ci réew mi ba léegi mën nañu xayma ci total confirmé ñi amee wopp ji ñu ngi toll kon ci junni ak euh, ci également ak fukk ak benn ñu fàttali ne également district yi nga xamante ni benn ba mbas mi ba léegi contact maanaam ñu amee wopp ji te ñaar téeméer ak euh, ci si si ci la toll ba léegi alors ñoo xam ne li moo mesure bàyyi koy wax euh, daan téléspectateurs dañuy jàll ci beneen ponk mu di parti actualité ñu ànd ci ak Ndeye Diagne Ndao kàddu ji nga wax ñu lan moo gën a fës ci actualité bi merci ne ne li gën a fës ci actualité bi mooy julli korite gi ca grande mosquée nag euh, bu Dakar euh, du ubbi grande mosquée bi du ubbi décision boobu nag ki ko jël rek di imaamu ratib bi imaam Moussa Samb di wax ni nag euh, li ko waral du lenn lu dul jàngoro jàngoroy coronavirus ji nga xamante ne nii dafa dugg fii ci suñu réew coordination des musulmans du Sénégal ñoom tamit fas yéene nañu tamit ñoom tamit bañ ubbi jumaa ji ñoom tamit li ñu wax rek mooy jàngoro ji moo waral lu ni mel dañuy dem rek xool nank ba ko ci image bu ci indil ci reportage. coronavirus bi mi ngi wéy di lëmbe ci réew mi ginnaaw bi xalif généralu Tijaan yi jëlee ndogal ci ne kenn du julli ren ca Tiwaawoon ci koor gi ndax mas mi imam ratib bu grande mosquée bu Dakar moo ko feelu ndax moom it jël na ndogal ci wëyal di rakka yi ci néegu yàlla bi le imaam Aliou Moussa Samb di xam ne ndogal bi li tax mu ko mooy tolluwaayu mas mi ci Ndakaaru doy sëkk ci sampub laaj ngir xam ana fan la njiitu réew mi Macky Sall fas yéene amale ren jile ñaari rakkay kori gi moom njiitu réew mi nga xam ne tàmm na di jaxasoog mbooloo mu bari bi ñëw ci grande mosquée bu Dakar ngir joxe ñaari rakka yi ci lu ñeel seentu weer wi coordination des musulmans du Sénégal fas yéene seenu ci ajuma jile waaye nag waa coordination des musulmans du Sénégal di xamle ne ak lu mënti am ren jile ñoom it duñu joxe ñaari ñaari rakkay kori gi ci seen wàll commission nationale bi ñu dénk séntu weer wi moom ci samedi bi la fas yéene seenu mu mel ni ren jële boo moyul itam daañu am ñaari kori bu fekkee ne coordination des musulmans du Sénégal gis na weer wi ci àjjuma jile ci grande mosquée Masalikul Jinaan fii ci Dakar nag ñoom euh, dinañu julli ndax ña ngi koy waajal bu baax a baax euh, jumaa jure jooju nag xam ngeen ni mën na def ci lu tolloog 8000 euh, personnes yu war faa jullee waaye dañ ko wàññi bu baax a baax nag daal di respecté bu baax mesure barrière yi nga xamante ne ni nguur gi daal dina koy jël dañ ciy teewlu rek ak reportage bu Tidiane Diallo. jël nañu matukaay yépp ngir assurer kaaraange ñi fay ñëw julli korité fii ci Masalikul Jinaan organisateurs yi nag ñu ngi dalal xel yi. muy lépp loo xamante ni matukaay la ci jëkk moo di les mesures barrières loolu moom duñ ko sax kafe bi ci des muy le port du masque loolu moom ala kuli alin ku takkul masque doo dugg fii ci biir taxaw fi nga war a taxaw suñ ne asalaamaaleykum demal sa yoon. ñoom sax nee nañu place yi dañ ko limité te képp ku fay ñëw nga solu masque. huit mille personnes moom mooy aire de prière bi quarante mille hommes dañ dugg ci biir jumaa ji waaye loolu xalaatuñ ko ndax fi waxtu yu toll moo tax nag kon xamal ni la quart mooy war a ñëw. taalibe yi nga xamante ni dañuy ñëw ngir barab bi te barab bi doon barabu jàmm barab bi doon barab boo xamante ni barabu ñaan la barab la boo xamante ni barabu euh, topp ndigal la ndigal li ñun ñëpp ñu topp ko kenn bañ a buuxante ñu soriato nu war a soriato ñu laamisoo bañ a am dajaloo bañ am fu ñu jullee ba noppi rek li jëwriñ wax mooy ñëpp delluwaat ci seen i itte dajaloo bi ci biir jumaa bi dañ ko aaye te ku julli ba pare na ñibbi këram gendarmerie nationale nag euh, jël na ay matuwaay yëpp ngir surveiller surtout axe Dakar Thiès Touba nga xam ne foofe nag euh, gis nañu ni jàngoro ji euh, ni mu fa ñoom nag dinañ gën a renforcer surveillance bi te jamono ji sax nag may wax ak yéen chiffres jàpp nañ ci ay nit yu bëri yoo xamante ne nii dañ doon jéem a bët li nga xamante ni rek mooy charte yi nga xamante ni teg nañ ko ñu toll ci ay onze mille francs beneen information rek nee ne mooy xam nga bu ñu euh, jubee prisonniers yoo xamante ne ni nag dañoo am leen woon ak wàllu yoon bi yoon nag communiqué bi gën rek wax na ni 1021 détenus daal dinañ leen di jéggal ne ne xam naa dinañ si delluwaat si yeneen jotaayu xibaar incha allah mhm, dinañ ci dellu siwaat même au cours euh, du débat ci noonu la ñuy àndee ak suñu invité du jour dugg euh, ci débat bi voilà chers téléspectateurs di fàttali rek ne que tey euh, ñu ngi fi euh, àndal ci débat bi kii di président Thierno Alassane Sall mu nekk président de la République euh, des valeurs donc président gis nañ ko avant ñuy commencé bu baax dinañ taxaw tuuti ci propagation virus bi parce que gis nañ ne ko bu mu duggee suñu réew état du Sénégal dafa jëloon ay dogal pour xeex la propagation du coronavirus xeex li di Covid-19 boobu ba tey tey ñu ngi wax waxu assouplir ces mesures mais teewul virus baa ngi fi gën a yokk propagation bi mu ngi gën a yokk cas yaa ngi gën a yokk ban analyse nga def par rapport ak euh, loolu yëpp. question bi je pense que bu ñu bëggee analyser mbir moomu faw ñu dellu siwaat ci ginnaaw tuuti xool ndax stratégie bu ñu jëloon ci njëlbeen baax na am baaxut. Mhm. te man dama ci jàpp waajal gi d'abord waajal sam réew xam ne ay maladies yu mel nii dafa waroon ñëw ci àddina bi xamuñu nag fan lay fële bu ngeen fàttalikoo 2003 dinaa wax ci loolu ba pare wax ci ba maladie bi feeñee. Mhm. naka la gouvernement Sénégal ban stratégie la jël pour aar bala muy dugg ci réew mi ak gannaaw ba mu duggee ci réew mi yan matuwaay la ci jël pour wàññi muy ñetti point yoo xam ne dama koy tënk rapidement. Mhm. bu ñu fàttali ko feebar bu mel ni coronavirus bi du lu bees loolu tax ñu tudde ko COV 2 SRAS COV 2. Mhm. parce que dafa am en 2003 benn SRAS bu génnoon. coronavirus boo xam ne dafa bettoon àddina bi. commencé def ni coronavirus bii def dem rapidement Chine la soqee ko woon dem Hong Kong dem Vietnam dem France dem Canada et cetera commencé fa boom ñu bëri waaye comme boobu xeetu virus taxu ko woon garaaw trop ñu daal di koy rapidement étouffé mais liñ ci jàngatoon mooy dina am ay jamono virus yu bees yu mel nii ñëwaat ndax du lu guléet sax ay virus yu bees bett nu sida HIV virus bu bees la ba tey amaguñu fajam mm. amaguñu euh, vaccin euh, lu xaw a mel noonu ñuwaat en au me en 2008 mm. soqee ko Mexique mooy h 1 e n e. ci rapidement ñu xool ni lu xaw a mel noonu amaat fii ci Afrique de l'Ouest muy Ebola bi ñu dégg bi mm-hmm. mu soqee ko amoon na sax ay bala loolu ay euh, Zika. kii eh, RD Congo yàgg na fa depuis temps au waaye boo gisee mu gën a yaatu ci ba mu amee Guinée la Guinée Bissau eh, ak Sierra Leone ñu jàngat ci ni surtout ñaar xeetu jàngoro yu bees ñu ngi ñëw 2014 ba mu amee Obama ak américains yi ak ñu bëri dañu taxaw def seetlu ni xeetu jàngoro yi nii musiba la nara jural àddina bi lu ko waral mooy avant ay 3 milliards habitants la ñu woon 3 milliards léegi ñu ngi ci 7 milliards d' habitants dañuy waa dem xàll àll bi pour dëkk pour dund pour béy et donc ñun ñooy fekki jàngoro yi fa ñu nekk di leen indaale benn donc il faut ñu waajal ci jamono yooyu la Obama jël matuwaay yu am solo yoo xam ne ak médecins du monde médecins sans frontières ñu ñu jàppale si Afrique moo taxoon Ebola bi gaaw a dakk fii ci Afrique de l'Ouest mais ñu jëlaale ay matuwaay yoo xam ne dañu ni africains yi dee leen waajal seen bopp te tàggat seen bopp ci xeetu jàngoro yi nii centre bi nekk Fann wala centre national bu ñuy waxee COUS nga xam ne docteur Bousso moo ko jiite ci jamono yooyu la ko américains yi jàppale Sénégal tàggat leen pour former leen nañ lañuy jafe defe combinaison yeeg yooyu et puis euh, institut Pasteur bu Dakar ñu gën a renforcer capacité ci jamono yooyu suñu gouvernement yi waroon nañu anticiper. waroon nañu anticiper. Mhm. te am na gouvernement yu anticiper ci loolu. yu mel ni Singapour Allemagne Taïwan ci la ñu jàngat temps yooyu nii bu ñëwee xeetu riposte yi la ñuy am d'abord njëlbeen ba nañ jël masque ñaare bala ñuy xam jàngoro bi mooy lan nañu protéger wu ci masque tester nit ñi euh, Allemagne noonu la def foofu ñun ñu raté ko. parce que ñun ak pays yu bëri d'ailleurs. parce que gis nañu oui États-Unis France Italie. France commencé woon nañu tàmbale wut un milliard de masques ba h e n e amee un milliard de masques la ñu wut un milliard cent. def ay vaccin mais comme jàngoro jooju taxu ko woon garaaw euh, ministre ba fa nekkoon dañ ko mujj di reetaan dina yow sonal nga nit ñi mooy l'histoire du de celui qui crie au voleur ou au loup. Mm-hmm. le arrivé cette fois mais en 2008 H1N1 e ba mu ñëwee. Euh, ministre français bi fekk commandé na un million de masques un milliard de masques ay millions de vaccins vacciné population bi mais taxu ko woon graaw toog ñu ne eh donc maladie yi gars yi dañuy coow rek mais amul danger bi mhm. donc loolu muy premier aspect boo xam ne ñun dañ ko sàggane mais deuxième aspect bu gën a graaw moom boo xamee ni ñun Sénégal suñu système médical dafa mës a feebar mhm. bu fi jéyee bu ndaw amoon ñaanuñ ko yàlla muy accident de la circulation muy ba ak amee muy leneen et cetera rek système bi day saturé parce que euh, système national boo xam ne amul vingt lal de réanimation ñaar fukki lal de réanimation yu wóor ni ngay waajalee guerre yeneen façon guerre yi ci jàngat ni ñu yoree réew noonu la ñu war a waajalee yeneen genre menace mun a nekk catastrophe naturelle loo tax changement climatique yi ñuy ñëw réew yi nañu fagaru naka la ñuy defee seen mitigation. mais monsieur le ministre est-ce que état tamit nekkul di def ay jéego par rapport à ça parce que euh, euh récemment commenté woon nañu euh, ay lits d'hôpitaux trop tard médecin j'allais dire médecin après. la, la maladie ou la mort. parce que bañ ko war a waajal mooy deux mille deux mille sept par exemple damay jël benn exemple rek. 2007 Ablaye di def fi teg hôpital Dalal Jàmm posé première pierre ba 2012 ba muy dem. ñu ngi woon gros œuvre yi ak lu ëppoon solo pare na 2019 bii à la veille des élections de l' élection présidentielle <laughs> la ñu ubbi hôpital Dalal Jàmm bi muy ñaataat 2007 2019 13 ans. donc vous voulez dire qu'on n'a pas investi ci système sanitaire au Sénégal ñaata lan lañ fi yokk ci système sanitaire Sénégal pendant que la population augmente te am population bi di yokk te am ay normes yoo xam ne nombre de lits par millier d' habitants ban hôpital bu bees nga fi gis. ci huit dernières années yi dama ni hôpital Dalal Jàmm moo fi woon di ñu koy koj koj yi koj koj yi ba ba ñu koy ubbi en 2019 te boobu amul hospitalisation maanaam kenn du fa fanaan ndax lan ndax ñàkk ñaar ay matuwaay ci wàllum lal ak yeneen ak ay jumtuwaay ci wàllum respirateur ak yeneen ak yeneen mais en plus ñàkkaale ci médecin ak ay personnel soignant parce que hôpitaux Sénégal yi ñu bëri xamuñu ko lu ñu gën a raflé mooy personnel soignant lu ci gën a bëri ci personnel yi ay vacataires lañu wala ay volontaires ñoo xam ne yàgg nañ fa ñu leen di ñu leen di fay ci këyit yu ñu joxe ci visite yeeg yooyu euh, loolu ñëpp a ko xam boo xoolee taxaw tuuti rek parce que lu am solo la bu fekkente ni jamono yii ñu toll mënuñu euh, def suñu ci diagnostiku réew jële ci ay leçon pour ëllëg gën a fagaru dootuñu ko def ba ilaa yow mi diin yéen a ngi fi dégg ñu doon wax hôpitalu maternité wu hôpital Dantec combien d'années ci jamono Macky Sall bi laa wax de ak ay appareil radiothérapie ci combien d'années paan na paanul jaar na fii jaarul fee médecins yi ñaata yoon lañ leen dégg ba gësëm ba yëng xaw ma na ànd gësëm bi ñu doon wax ba bay élection présidentielle président ne leen bàyyi leen bu élection weesoo ñu toog waxtaan ñëpp dégg nañ ko fi pendant temps ñu jël suñuy milliers wu milliards parce que président dafa leb ay millier de milliards buñ toogoon ñun di wax ak presse bi sax journalistes yi dañu ne non sax ñu leen wax ni président amul bilan parce que euh, mu ngi fii euh, Dakar Arena mu ngi fii centre Abdou Diouf mu ngi fii mais tey ana ana loolu lum ñu jëriñ ana lum ñu jëriñ bu fekkente ni yow lalu hôpital amoo ko pour foo mën a teg say nit ñu feebar pire ba ba feebar bi ñëwee. fekk donc amuñu personnel amuñu personnel largement qualifié amuñu sax matériel bu minimum ci wàllum masque ci wàllum équipement de protection et cetera et ba tey jii nii sax matugul parce que feebar boo xam ne contact lay wàlla ci lay wàllaate te feebar gi malade yi ci hôpitaux yi lañ jëm donc personnel médical bi dafa waroon am gants yu doy masque yu doy équipement de protection yu doy maa ngi liir benn jour benn syndicaliste def naa ne Cheikh Seck la tuddoon mun nañ ñoom seen hôpital 900 la ñu. 900 yooyu ñu ngi leen jox 700 masques maanaam même bu ñu joxoon ku nekk masque 700 yi ñooy am te kon benn masque ngay am mu jeex. donc ci jamono yooyu ñu toll nii mun naa multiplier exemple yi ah, gis nañu professeur Seydi mu dem euh, Ziguinchor am lu mu fa wax mais xam leen ni hôpital Ziguinchor benn réanimateur moo fa nekk marocain la benn réanimateur maanaam ku nekk ci Sowatas. nga amay jafe-jafe ku la war a jàppale kenn mo la marocain la hôpitalu Kolda benn gynécologue la am hôpitalu Kaolack moom moo bokk benn pédiatre ak ay ak région de Fatick loolu mooy situation wu Sénégal te encore une fois santé dafa am ñaari aspect dafa am sécurité chaque jour am sécurité nag en cas de crise grave comme yii nii wala ay catastrophe naturelle wala ñaanuñ ko yàlla ay guerre ak yooyu santé bi dafa war a dëgër donc foofu amul werante ni six mille cinq cent milliards yu président leb suñu bor bi augmenté sensiblement defu ko ci wàllum santé loolu amul laam-laame loolu tax ba feebar bi ñëwee daf ñu fekk ñun ci ñaari xeetu sàggan sàggan goo xam ne amoon nañu ñu wax ni que feebar yu mel nii dinañ fi ñëw waajal leen seen bopp ñun lañu si suñu bopp lu bëri amuñu aussi ay jumtuwaay ak ay hôpitaux ak ay lu dey ma yokk ci nag benn dernier point boo xam ne jàngoro la ci doxalinu état bi dama ko wax bala lii ñëw ba ñu ubbee aéroport bi bàyyi ba jour bu ñuy tëj aéroport bi d'ailleurs def naa fi tweet mais bala loolu def naa fi vidéo mais ni ma gisee nit ñi di dugg ci aéroport bi def naa ko vidéo une semaine avant ñuy tëj aéroport bi mais ni ma gisee nit ñi di duggee ci aéroport bi ki ñëw boo ñëwee ñu flash la jël sa température bàyyi la nga jàll xamuñu foo jëm xamuñu ban dëkk nga jëm jëluñu ko xamuñu koo dendaloon ci biir avion bi pour bu fekkee ni gis nañu kooku ànd naag jàngoro bi ñu war a woo ñëpp ñu ñu daje bo contact yi ngeen di wax nii ah cas contact yi euh, boo demee fenn normalement dañ la war a quarantaine bu dee danga nga jóge jóge ci ay réew yu am jàngoro bi bu defoon noonu jàngoro bi du dugg bay ya même bu duggee dinañ ko contenir mais dañu sàkkal bàyyi gaay yi ñu ñu ñu ñu ñu dem ba ba nga xam ne doomu jàngoro bi dugg ci réew mi duggee ci réew mi nag foofu lay daaneele ci première partie bi OMS ak boroom xam-xam yépp dañu ni lenn rek moo mun a tax ñu war a mën a xam fan la jàngoro bi toll ak gaaw ko comme daay gaaw ko fay mooy tester OMS dafa génn 23 mars benn recommandation bu am solo bu bu forte bu mu wax réew yëpp mu ne leen dee leen teste en masse bu ngeen gisee benn bërëb comme suñu car district yi ñuy wax bëri na comme Dakar fii ngeen identifier gox yoo xam ne cas communautaire yeeg cas contact yi bëri na fa tester leen en masse ñun fu pour l'instant ñu ñuy tester rek mooy cas contact yi ak ñoo xam ne ñoom ñooy woote ni man kat dama feebar et cetera et ñooñu la ñuy testé dañu war a test test dépistage bu gën a large pour xam ñan ñoo ànd ak jàngoro bi puisque jàngoro bi dafa am màndarga mooy mën nga ànd ak moom te nuroog ku wér mooy li ñuy wax les porteurs sains wala les cas asymptomatiques donc foofu tamit dafa ñu test alors euh, monsieur le ministre nan nga mën a comprendre ñu génne xaalis bu bari ay milliards dugal ko ci njëndum ceeb ngir jàppale askan wi ci jamono joo xamante ni génne woon nañu ay milliards ngir financer autosuffisance en riz en 2017 te gis nañ tey jëndum ceeb bi scandale yi mu jur. waaw déjà loolu rek xam nga euh, mooy wax moo lay won yan perspective la Macky Sall moom amee ak gouvernement bi ak faiblesse su état au Sénégal dinañ ci dellu si peut-être par petit pas. xam nga bu ñu teg stratégie du président la république moo war a tëju ak quelques experts parce que problème maladie bi dafa nekk loo xam ne peut-être ay sociologue ay entrepologue ay ñu bëri war nañ ci ay sénégalais yu nekk bitim réew aussi am expérience di liggéey feneen ñu ni priorité ci dépense yi fay daay gi la d'abord arrêté maladie bi doog a jënd ay ndimbal gi nga xam ne éventuellement war nañ ko jox famille yi assistance yi et ndimbal bi mun nañu discuter du état bi rek tëju comme ni ñuy def état bureaucratique rek tëju seen bureau na nañu jënd ceeb nañu jënd diwlin dem distribuer ko gars yi dinañ ci ñëw léegi. mais première erreur bu mu def mooy ba muy jënd ceeb ju bëri <laughs> ak diwlin bu bëri mais masque yi jot motut gis nga keroog pire dafa am ku ñu ne feebar na wér na mu dem pire <laughs> ci benn poste de santé walla fa ñu bëri ñu daw jóg dem di ko yóbbu hôpital baax Malick bu Tiwaawoon am ñu kuñ fa wàll gis nga Tamba nuñ fa wàllee tey wan suñu réew d'abord ñun dafa mel ni bokkuñu ci monde moderne bi lu tax ma wax ni bokkuñu ci monde moderne bi parce que yeneen réew mee ngi yeneen réew yaa ngi wane xeetu xaral la ak yu yu doy waar ak euh, compétence yu doy waar comme Singapour réew mu ndaw la mais dañu inventé seen système de tracing mais feebar nit mun na feebar ñu ñu dépenser ay millions ay milliards ci ay carte d'identité biométrique dépenser ay milliards ADIE pour investir nee nañu ci ay façon logicielle ak informatique yu ne te mënuñu nit ki bu feebaree ànd ak coronavirus bu génnee bala muy demati beneen hôpital ñu koy laal rien que carte d'identité biométrique wala yeneen façon de traçage ñu xam ne kii kat waruñu ko laal déjà rek dama jàpp ni man ak sama xam-xam bu gàtt ku ñëw hôpital bala ñu lay laal war nañu xool say séentom ak say jaar-jaar ay say kii ba muy wàll faj mi donc ñun bu ñu xoolee suñu réew mi dafa mel ni ci jamono guddi yi nga xam ne colonisation fan la ñu nekkoon ñëpp raw ñu ba tey foofu la ñu toll. vous dire que l'État a, a failli ci stratégie riposte bu mu teg pour xeex coronavirus. mais on utilise des moyens à l'aveugle comme kuy làmbatu alors que tey on daal dans le di du numérique. on est dans le monde de la compétence et de la créativité te ñu amay Sénégal yu bëri yoo xam ne dañu xarañ nañ ci côté boobu liggéey naa ARTP bokk naa ci ñu bindoon programme Macky Sall loolu moo doon suñu priorité dañ defar ay hôpitaux yoo xam ne dañ koy lëkkaleek ay centre de recherche lëkkaleeg kook centre universitaire yi créer ay façon yoo xam ne malaat bu ne dañ lay suivre médicalement poste de santé bu gën a ruqe ci réew mi normalement boo fa nekkee war nañu mën a à la longue xam sa à partir de Dakar wala feneen xam sa situation xam fan lañ la war a évacuer mais ñooñ topp ñoom toppatoo wuñ loolu parce que dañ jàpp ni ñoom ñu ngi ci temps wu Njaajaan Njaay wala Lat Joor Jóob ba tey xamuñu ni ci temps wu vingt et unième siècle la ñu nekk ak xarala bu bees boo xam ne dangay toog fii sa bureau benn boy day toog fii bureau am Amérique wala feneen xam lu xew ci monde bi yëpp waaw ah, mais ñoom bu ñu xamul loolu dañu wootee y a des milliers de sénégalais yoo xam ne ñii ñu ngi ci liggéey NASA ñii ñu ngi liggéey feneen France États-Unis fii ci Sénégal ak yooyu mais ñu jàppale problème de priorité nga wax mais ci transparence laay dellu si waat parce que bokk na li tax nga jógee ci gouvernement bi nga ñëw ci ceeb bi ba ñëw ci ceeb bi parce que da nga ko doon xeex bokk na li tax nga jógee ci <laughs> am ndaween nga soxal na la lool voilà yow da nga <laughs> <laughs> voilà ñu ñëwaat foofu parce que transparence bokk nañu euh, bokk na ci ay kàddu yu bari yu muy jug ci sa ci sa kii euh, parce que li taxoon nga démissionné loolu bokk nañu ci ci mbirum transparence ci wàllu pétrole bi ñu koy fàttaliku alors tey justement euh, nan nga gisee gestion wu surtout ci wàllu dund bi parce que bërki dee moo rek ki nga xamante ne nii moom moo yore mbir mi digée woon na ak journaliste yi déjà ni woon day def conférence de presse wax lim ko te liggéey ci mbir mi waaye ba tey fii sax amuñ sax explication li waral loolu conférence de presse ak wax moom dinaa dinañ ci ñëwaat loolu réglewul dara Sénégal ndagam demande officielle la ñuy génnee signé ko mu am emblème mu présidence de la République ay jëf ñëw weddi ko après loolu parenthèse la mais dinañ ci ñëw mais <laughs> da nga tuddal mbirum ceeb bi mais Sénégal vingt et unième siècle am trois fleuves ñetti ñetti dex yoo xam ne Casamance Guinée et Gambie Sénégal suuf si nangu war nañu mën a jéggaane suuf ceeb euh, war nañ toll foofu moom moo woote woon ñu bind ko suñu programme ne autosuffisance en riz peut-être maa ngi ci gars yi ah, fii ci ci li ngeen wone ni <laughs> ñu ne autosuffisance en riz ñaata milliards lañ ci def ñaata milliards kenn xamul loolu war nañ ko def bilan mhm. ñu ni dañuy aménager suuf si jënd ay junni moto pompe maye jund jënd ay junni tracteur maye dem wut façon xeetu euh, nee nañu semence andi dig ñu autosuffisance en riz en 2017 ci suñu xaalis lañ leban 2017 ñëw ñu ne mayaat leen ñu deux ans 2019 foras ñu ngi 2020 fa ñu gënoon soxlaa ceeb bi muy jéggaane ceeb loolu insécurité bu rëy la ci réew mi ndax ñun ñëpp xam nañu Inde d'ailleurs am na fa cyclone temps yi mais même dul woon cyclone bi <laughs> ñoom li ñuy béy li nee nañ pour seen bopp la fi mu toll ku nekk mu ngi bopp sa bopp lay doxalee réew mu ne waaw donc ceeb dinañ dem ba soxla ko peut-être duñ ko mën a te Sénégal waroon mën a jéggaane ceeb Israël ab réew mu ndaw la benn fleuve moo fa am Jourdain mais day exporter donc déjà jënd ceeb bi yëfu échec la dem di jënd ceeb échec la par parenthèse aussi jënd gel hydroalcoolique. vingt et unième siècle. ñu nekk ay réew yoo xam ne ñii ñu ngi defar ay satellite di sànni ñii ñu ngi defar ay ku nekk ngi wane li nga mën ak sa dayoo. yow gel hydroalcoolique da nga ne da nga koy importe ci bitim réew. da nga amoon ay Valda amoon fii ci tàngu colonisation bi ay souvenir africaine ouest africaine yëpp fii la ne woon Dakar nga financé ay jigéen ñu bari à travers le Sénégal ay groupement jigéen yu bëri ci formation naka la ñuy defaree savon saabu financé leen ak leneen. même chloroquine daan nañ ko fi defaree. oy mais sëñ bi sox soxna yi waroon nañu quand ci jamono vingt et unième siècle groupement de femmes bu ñu leen bëggoon jàppale tuuti ci économiquement suqaliwaat leen ne leen am leen matière baa ngi nii ngeen defar gel ñu distribuer dans vos quartiers dans loolu moo doon économiquement sax ci même dimbal nit ñi loolu moo doon ëpp sens masque dañ fi ne woon bu kenn sol masque bu ñu importé wul. Mm-hmm. parce que mm-hmm. boobu amaan na ñoom ñu ngi importé seen masque. Mm-hmm. wala ñu ngi defar seen masque te kenn xamul ci nan la ñu defaree masque parce que président waxee na fi dix millions de masques mais waxul ban tailleur. waxul ban groupement de tailleur waxul naka la ban transparence sañ ko teg te xaalisu Sénégal la. donc mënoon nañu ne chambre de métier yu nekk Sénégal yëpp tailleur yi nañ leen organiser jox leen échantillon masque wan leen nan lañ koy defaree ñu defar ci. mais ceeb bi masque yi euh, gel yi transparence amu ci loolu ñun ñëpp joytu nañ ko te du loolu rek dinañ ci ñëwaat mais li ma doon wax ci njalbeen dañu toll ci jamono joo xam ne wax dëgg yàlla ku tiitul nekk ci weerum koor chrétiens yi génn ci carême ba muy ñëw mu ngi ñu fekk ci carême koor ñu fekk si ñu xel yëpp war a dem ci yàlla ji jéem a dellu siwaat ci yàlla pour ñu gëm yàlla tegal ñu beneen musiba bu doy waar bu wane adduna bi yëpp tey dafa tëj mu mel ni axiru jamaan mu ngi <laughs> mu ngi jege si mais am ñoo xam ne ci jamono jooju lañu bëgg a di def seeni affaire seen i business xalaatuñu lan moo gën ci réew mi mais dañu xalaat lan moo gën ci ñoom mais ma wax leen rek exemple simple un vrai chef d'État nga def ne waa école polytechnique moom moo leen waroon pousse pousse suñu centre de recherche yëpp comme nu ma waxoon sànq ADIE ak yeneen yi ne leen il faut vous trouver des logiciels pour que béykat bu buy béyee buy béy xam ba nu heure la war a béy xam camion bi war a jël si mbéyam euh, yan camion ñoo nekk dans la zone pour mu mun leen SMS rapidement ñu ñëw bu ñu defee ay plateforme day facile kuy faju xam au ñuy jël di wër ay hôpital dugg Grand Yoff euh, kii <laughs> war nañu xam ñaata lii moo disponible ban hôpital la nekk xam malade bi ban façon maladie la am parce que am na carte d'identité mais yow liggéeyaloo nit ñi ci loolu waa école polytechnique dem defar seen respirateur taxaw di xaar état waroon ñëw jàpp xoola Maroc état wu Maroc tey mais Maroc lan la ñu gënee yaa xayti alors euh, monsieur état wu Maroc ma terminé foofu dañu defar ay respirateur di jaay di defar ay masque di exporté defar ay portique yoo xam ne boo rombee détergent bi kii la nga ñu raxas sa lépp mais président la république jamono yooyu dafa war a wane leadership taxaw incarner nation bi pour xëcc ñëpp ñu génn ku nekk ci li nga gën a mënee ñu xeex taxaw parce que dootuñu mën a compter ci bitim réew waaye président la république boobu temps ma daaneel foofu rek bàyyi la ci xelu campagne électorale la nekk gis nga ceeb bi ñuy jox te jox ko Mansour Faye ñu koy joxe pour nit ñi ne waaw président kat moo ñu fi dindi woon ceeb ñu bind ci seen i jël turu nit ñi ëllëg mun a yor seen carte d'identité ah beneen yoonee day Kolda dégg na jot naa ci information yu mel noonu ak gërëm feneen ah yéen kat fële ngeen bokkoon wala beneen yoonee bu ngeen bu ngeen topp àndul ak ñun dootu dootu ñu leen dimbale il prépare les locales mais pression ci population yi wuy mais ni ngay gisee ni préparer local sax mais mois de mois de mai bii décision yu mu ci jël dafa kéemaane <laughs> yërëmtalu pour un, pays boo xam ne le chef de l'État doit être constamment en train de scruter man jël na ay matuwaay matuwaay yooyu au lieu mu wàññi yi mu ngi yokk yi. mais monsieur le ministre comment en cette période de pandémie euh, État du Sénégal ñu ngi xalaat dem vers les les les locales. mais mais dama lay joxe exemple simple rek ci politique politicienne bu bu rax ci ci période bii nii. nga xam ne comme ni ma waxee président de waroon voilà. xoola ba ñu ku ñu nommé Petrosen PCA Petrosen kan la benn waay boo xam ne naa tudd turam de mais dama ne benn waay boo xam ne mu ngi doon sànni xeer ci réseaux sociaux yeeg internet yeeg yooyu nekk ab xeer ci marakisu meeru Ndar ne day présenté wu mairie ñu daal di koy roccil xeer bi ndànk am luñ ko jox mu noppi fan la amee ci période bii nii ku ñu nommé DG wu LONASE benn xeer la woon moom it wala benn puso ci maraakiisu meeru Géejawaay ñu fexe moom it ba rocc ko mais gis nga ci période bi président de la république woo benn médecin rek wala groupe médecin décoré leen wala félicité leen wala wala wala kii leen ñu profité di leen félicité di leen remercier te ci njëlbeen lañ man laa bindoon benn benn benn lettre ne les vrais héros de la république ci médecins yi jàngalekat yeeg policiers yeeg euh, sapeur pompier ak ñooñu la parce que ñooñu rek ñooy joxe seen bakkan pour réew mi wala ñooñu ñoo gën a bëri joxe seen bakkan pour réew mi fekk salaire jarul bakkan mhm. te prime yi ñu leen di jox ay cinquante mille ay vingt mille ay trente mille loolu remplacé wul bakkan ñoom seen conviction la ñuy dox parce que dañ leen tàggat ni ci réew mi moo leen soxla waaw ñu toog ci kaw nag di joxe ordre yooyu di séddale loolu instant yooyu seen lépp dafa war a nekk ci réew mi ak ci aar réew mi pas di dóor ay pion politique pas di def ay décret yoo xam ne pour cëral say nit la bu ñu gisee tey attribution marché yi am na ci ñoo xam ne jotaguñoo livré li nga xamante ne moom loolu la ñu gagné woon ci marché yi euh, tey ñu taxawal comité de suivi fonds force covid 19 am nga yaakaar ne comité boobu dina am njariñ jamono joo xamante ne lenn ci dund li ñi ñu ko commandé woon ba tey indiwuñu ko te it ñu ngi njottu ne bu mooywul dina am rétro commission par rapport ak li nga xam ne moom mooy commande yi. xam nga comité de suivi moom gars yi comité de suivi fu ñu ko waxee rek day fekk yëf yu commencé na yàqu bu ñu ne woon comité boo xam ne en amont de stratégie mooy taxaw xool lan la nan la ñu war a def ndax dañu war a jënd ceeb wala ndax dañu war a wàññi dund gi ñëpp. loo yor sa poche rek mun a jënd jëriñoo au lieu ñuy def ay milliards ci transport alors que boutique yaa ngi ci partout au Sénégal et ku nekk pays basari ba fële moom peut-être foñoo la gën a soxla ko ceeb wala peut-être as tuut xaalis la gën a soxla ko ceeb donc déjà comité de suivi man mosuma gëm comité de suivi Sénégal mosuma ko gëm fii ci jamono yii nii ndax teg nañ fi ay ñaar ñaata commission d'enquête ñaata yoon lañ fi sax ay cours yoo xam ne ñoo ëpp doole comité de suivi bu ñu buggee nax nit ñi nag ne teg nañ ci général à la tête le général n'est pas en cause <laughs> mais yow da gis cour des comptes dem gis benn ministre ne ko dañu bëgg a xam milliards yi nga joxe ci affaire financement yi <laughs> naka la demee daf leen dàq fan la mujj comité de suivi mun na ëpp doole euh, cour des comptes wala inspection générale d'État yu def rapport yoo xam ne dafa leer nañ gars tëdd ci comité de suivi dafa leen mën a ëpp doole donc man gëw ma affaire comité de suivi xam nga laa gëm mooy waroon nañu fexe bala lii di ja ñëw assemblée nationale bu amoon dina enquête ci programme autosuffisance en riz bi lu tax yembul lu tax teewul tey amuñu autosuffisance commission d'enquête gis nga France bu ñuy roy assemblée nationale am na amut. amut comment. ma parenthèse moom pour leeral sama tontu mhm. gis nga France bu ñu toll tey am na près de trente et huit et quelques plaintes contre le gouvernement ci ay càggan mhm. ci ay masques yeeg ci ay kii assemblée nationale chaque jour ñu réunir am na ay questions parlementaires yi ñuy poser gouvernement bi ñu ñëw lu tax masque amul woon lu taxoon ngeen ne masque soxlawuñ ko alors que tey ngeen ne masque soxla nañ ko lu tax lu tax assemblée nationale boo xam ne dafa jël vacances fu mi gën a nekkee ci xeex ci xare mm-hmm. fu réew mais Churchill dañuy wax ni fii ñuy wax ay unité nationale union sacrée am ñu bëri ñu koy répété man ma jàpp ni Sénégal ñun dañuy wëlbati dañuy wëlbati concept yi pour utiliser ko de mauvaise fois ki ni mu leen arrangé de mauvaise foi loolu mooy réalité parce que Churchill <laughs> ba ba Hitler nangoo France tiim ko nii di ko bombardé foofu la ko assemblée nationale gën a sondalee xamul tax mais parce que bu defee erreur ci jamono yooyu nit ñi yàqu donc chaque fois chaque jour chaque deux jours Churchill day ñëw ci parlement bi expliquer ci lu mu ne ak naka lay doxalee gis ngeen sax Brexit bi état Angleterre nu ñuy discuter gis nga président États-Unis chaque jour day taxaw rendre compte seen sena mu ngi réunir te ñun suñu gars yi jël nañu congé bu yàgg président bi ci boppam moom. def naa ni président assemblée est-ce que a ngi fàttalu sax ku mu doon. kaddu masawu sax ci peuple bi defoo ko. conseil économique social et environnemental. au conseil tey dañu manqué ñun ay lal. <laughs> Macky Sall dafa tasoon Sénat ba ba ba mbënd bi ñëwee. tey ñu manqué ay lal. xam nga situation bi fu mu toll. ci ay stratégie présidentielle ci stratégie nag ak sa résultat lañ lay nattee. mais monsieur le ministre munoo bañ ne le président de la république quand même euh, concerté wu na ak la classe politique ndax recevoir na l'opposition parlementaire comme aussi la grande opposition. recevoir na l'opposition. Mhm. dafa def discours am ba pare recevoir leen le lendemain pour wax leen lii la décidé ñu ne ko waaw góor. ñu ànd ak moom. acca mhm. ah loolu ñu génnee de noonu lay nuroo. Mhm. lu ñu wax ak moom ci biir ñoo xam. mais dafa mel ni ba ñu génnee daal à part ay quelques remarques formelles waxuñu ci ndeyu mbill gi déjà le mal était dans le pays et quels sont est-ce que am nañu capacité en terme d'hôpitaux te def naa ne boo nekkee leader politique xam nga ni amuñu capacité en terme d'hôpitaux ci jamono yooyu donc première priorité hôpitaux masque amul ainsi de suite mais donc je disais au conseil conseil économique social président de la république def na stratégie am stratégie tey ku jàng ku jàngul ku xam ak ku xamul ku ku jàngul médecine ak ku jàng médecine ñëpp a ci yem. constaté nañu di gis bokku ci ni stratégie boobu baaxul parce que yaa ngi yokk donc comme kaa yaa ngi yokk ba ñu nee nii ñu léegi yéen <laughs> kuñ toll nii am na ñenn feebar yi nañ leen bàyyi seen kër nañ leen confiner seen kër yëg ngeen loolu. ñu leen confiner seen kër bon amul benn réew au monde bu ko def. ay Côte d'Ivoire ay Nigéria même réew yu ñu tollool ñun dañuy dem jël stade aménagé ko dès le départ gis ngeen Nigéria nañ doon liggéeyee waxuñu nañ def ni Chine <laughs> def hôpital en huit jours mais Dakar Arena be waroon nañ ko mën a aménagé waaye du ko aménagé mukk xam nga lu tax parce que bu boobaa gars yi dañuy ne day delloo xel nit ñi mais kii Dakar Arena fooyekaay bi mu fi def te ñun ñu mënoon ko def hôpital lu tax mu def ko fii wala centre Abdou Diouf fooyekaay bi nga xam ne def nañ ci quarante cinq milliards cinquante milliards amul ñu benn jëriñ lu tax nekkul woon hôpital dès le départ. ñu ne nit ñi nañ des seen kër moom mais boo desee sa kër mooy <laughs> sëñ bi da nga wàll ñeneen moo desee sa kër mooy faw nga suñu kër yi ñuy doxee. kan moo moom rek. même boo amee sa néeg yow code naka ngay amee sa toilette yow code et cetera ñu koy désinfecté chaque minute donc geste barrière yi muy wax yi ñoom ci seen bopp ci doxalin ci li ñuy wax nit ñi ak nu ñuy doxalee dëppoowut benn exemple rek am na benn vol bu njëkk bu ñëwoon fan yi ñaari fan yi delloo si ay sénégalais dernier vol bi confiné nañ leen mais premier vol bi est-ce que confiné nañ leen. non non dañ leen bàyyi ñu dugg ci réew mi. ça veut que man dama jàpp ni ñoom lu ñuy wax ni dafa mel ni gëmuñu ko. et puis ak confinement boo xam ne amul respect quoi say doomu réew bu ñu ñëwee am na noo leen di gàttandoo am na information boo leen di jox. donc mais doo leen taxañ noonu ci force dem yóbbu leen sali ak condition yoo xam euh, par rapport ak yenn prise en charge. yoo xamante ne euh, peut-être ñu ngi ko doon xaar mais amuñu ko. même ci biir vol bi dégg pour nga naan problème la pour nga lekk problème la et cetera et même chose encore une fois bu fekkee ni dem nañu ba ay sapeur pompier ñu leen di jëlee. di leen yóbbu Mbàkke euh, Bambey pour confiner leen foofu parce que boo leen gisee sapeur pompier yi di jéem a dàq gaa yu <laughs> ñu ñu confiner ñi te daw mais amee nii lay doon mais ku ñu confiner yow am nga risque yor maladie bi ñu lay dàq amee nii mais mooy mun na am sapeur pompier bi lay dàq jël maladie bi maanaam dañuy def yoo xam ne da ngay ne ñàkk xam la wala cuune la wala ñàkk faale wala ban façon doxalin la cim réew moo xam ne réewum Sénégal la boo waxee nag ñu ne la bon suñu suñu suñu suñu plan d'action ñu ngi ci d'accord ak professeur euh, médecine yi ak kii mais ñooñu war nañu wax ah <laughs> war nañu wax parce que historiquement dañu nekk ci situation boo xam ne ñëpp xam nañu ku jàngut laa wax médecine ni man nii boo xoolee lim Allemagne di doxalee waxumay même moyen yooyu mais quand même di nga gis yoon bi après nga xool ndax yow naka ngay adapté wu. wala ni Singapour di doxalee wala ñi yeneen réew di doxalee du question moyen parce que euh, États-Unis bu doon question moyen rek du. du rigueur ak sérieux donc lay laaj. rigueur ak sérieux ak gëm li ngay def. ci loolu ci loolu euh, jotoo jotoo benn écho monsieur le ministre par rapport ak euh, restauration ñi ñu doon mettre en quarantaine ak ñi ñu doon euh, ñi doon bon confiné wala semi confinement ni ñu ko mën di woowee en tout cas ñi yóbbu làq leen ci hôtel yi seen restauration yi ñu leen doon yóbbul loolu itam beneen marché à la boo xam ni itam laaj nañu leeral ko de parce que li ñu am ci ay info ñu leeg ko ci seen bërki démb benn repas bu ne mu ngi coûté 7000 francs xam nga loolu moom c'est xam nga fi ñu dañu ne jox nañu président la république loi d'habilitation nu ko neex na doxal. ba ci. ah mais ba urgence am na gars yi génne nañu ay budget dinañ jox ay nit xaalis pour ñu dem di exécuter fay hôtelier fay kii wala def ay ñoo xam ne ñuy doxalee ak naka la joxe marché yooyu yëpp suñ toll c'est urgence rek loo wax ñu ne urgence ci ci foofu lañ koy làq mais dañ doon xaar. ci un man je pense pour tënk mbir moomu dama jàpp ni que suñu gars yi benn xamuñu ci monde ban monde la ñu dëkk parce que monde ébola SRAS extra du ma ne mënuma wax état benn au monde boo xam ne amul ay documents yu ñu tënk jàpp ni que lii war na mën a am buy am bu amee bu ñu bett nañu am au moins un stock minimum de lii ak lii ak lii deuxièmement nañu am ay lii ak lu ñu war a déployer troisièmement nan la ñu loolu amut ñu jël ay stratégie nag yoo xam ne foofu c'est important ñu clarifier ko stratégie yu ñu jël dafa indi askan bi fippu <laughs> moo tax ñu dem moom yàgg reculer bàyyi lépp parce que boo nee marché yi benn yoon par deux jours lay ubbi mais ak lu xel gàtt gàtt war na xam ne que marché boobu bu ubbee nit ñi dañ koy fay gën a bëri bu fekkoon danga bëgg kay geste barrière ak distance sociale marché bi da ngay bàyyi mu ubbi chaque jour maintenant fexe ba nga xam ne aile bu ne wala ale bu ne bu xaw a yaraax am ñuy surveiller bu xawee am 10 wala 20 personnes ñu jox la ticket à l'entrée nee la am na nga mën nga 30 40 minutes une heure nga génnaat keneen dugg et cetera wala comme dañu def suñu carte d'identité biométrique def ci ay cinquante deux milliards non c'est extrêmement important monde monde monde kii la ñu nekk numérique ku ko fàtte mooy yow dafa mel ni analphabète nga mënoon nañ ne les les les les numéros pairs ñooy ñëw jour pair les numéros impairs ñoom ñooy xëy ci marché ak yooyu impair am nañ ko organiser même au niveau des quartiers impliquer le tracing bu gars yi def yeneen réew yi waroon nañ ko mën a organiser à un niveau élémentaire chez nous. mais est-ce que ñu nekk réew yooyu ñoo bokk objectif wu amandoo carte biométrique yi est-ce que ñoom amuñu ci benn objectif bokkut ak bi ngay xalaat nii. déet xam nga dama wax OMS dafa ne le 23 mars man dama xaw a curieux damay gëstu ci yooyu dafa ne teste testé testé après ne bu ngeen di testé da ngeen testé tracé maanaam topp nit ñi ak isole ñëpp d'accord ci ah. werante bëri na ci EMS mais loolu moom dañ ci d'accord te deux réew yi ko doxal comme ay Allemagne yooyu ñu ngi ciy génn mais yow boo bëggee tracé doo doo ñëw rek xaar ah sëñ bi yow da nga feebar waaw euh, ñan nga kii woon ñan nga jokkooloon fan yi voilà ah, man kat sama tànt dëggan seeti woon naa ko sama nijaay kii demoon naa tamit sama sëriñ loolu wax la du la wax ni demoon naa ci sama sëriñ dina am ñu mu laaq. mun na jëndanteeg benn. parce que waa ci mbedd mi. oui du koy fàtte donc foofu la ñu waroon mobiliser suñu compétence et on a vraiment des compétences dans ce pays. monsieur le ministre euh, justement euh, ñu ngi koy wax tout à l'heure xam naa ci say euh, si say wax ñu ngi dégg tâtonnement ñu ngi dégg manque d'organisation par exemple de la part de l'État du Sénégal ñu gis lors ci dernière adresse à la nation président de la République dafa assouplir mesures yi ci loolu ñëpp jàpp ne que peut-être couvre-feu bi ñu instauré ak circulation interurbain bi foofu sens gis nañ ay médecins yu génn euh, wax ne que peut-être amul sens li ñu def noonu yow naka nga ko jàngatee. waa dama jàpp ni mesure yi daf ko daf ko assouplir ko ci coobareem marchand yi dañ commencé woon di yuuxu di fippu naan ñu ñoom kenn du leen bala ñuy dee corona bala bala leen di xiif rey bala leen di corona rey xiif dina leen rey donc ñoom dañuy fippu dégg ko ci transporteurs interurbains yi dégg naa ci suma xarit góor xuma di lancer appel mais warul lancer appel yooyu rek yam ci parce que dafa privé ay sénégalais yu bëri seen dund te joxu wutale leen benn solution te en plus lu discrédité mbir mi muy ñaar muy non seulement stratégie am doxul maanaam ñëpp gëm nañu ni kii kii lii muy def nii du mujj fenn du loolu mooy regle problème bi la preuve kaa yaa ngi yokk yàlla nañu yàlla jimbale kaay wàññeeku ci coobareem waaye du ci pexe gouvernement bi wala Macky Sall benn ñaar ñu gis ay ñuy tudd ay deal yu bëri ci biir période bi dinañ ci ñëwaat peut-être ci décret yeeg yeneen kaay bon alors bu boobaa ñun dañu ne mais ñii en réalité dañu bëgg a rey te ñu ngi ñu ngi ci lu leen neex ñoo ne président période boobu bu bëgg a joxe message mauvaise communication ne moom mu ngi joué Ludo ak famille am alors que gars yi amuñu lu ñu lekk lu ñu naan seen bopp ubbu na jaaxle nañu yow reer nga yaa ngi joué kii ci per de famille même bu doon dëkkandoo nga dëkk dëkkal rek moom reerul am na loo lu la war ci yow boo ko tamee mais nga nekk per de famille nee nga nation bi ñu dénk la eh, askan wi yëpp amay ñoo xam ne seen dund yëpp horaire lañ doon dawal ci lañ doon suturlu Il voulait peut-être montrer l'exemple du rester chez vous. Dakar, Dakar, Dakar, euh, euh, Dakar Salemata, Dakar euh, kii ñooñu nga ne leen bu bu doo liggéeyati transporteur routier yi liggéeyuñu suñu par exemple euh, tailleur yeeg euh, cordonnier yi kenn liggéeyatu. artisan yi artisanat bi liggéeyut. sëñ bi da nga war a xalaatal ñooñu des solutions bu dul loolu ñooñu dinañ commencé fi kon ci marché yi. moo am ci euh, moo am am ci transport bi moo am ci yeneen métiers yi loolu tax mu profité ci phénomène religieux yi assouplir lépp en réalité tey lu fi des mooy couvre-feu bi parce que bu fekkee ne école yi tamit dinañ leen ouvrir fi des. ministre yaa ngi décrier yaa ngi décrier depuis tout à l'heure la gestion de la crise bi nga xam ne Macky Sall moom la gérer euh, Covid 19. mais dafa am loo xam ne sénégalais yi aussi gisuñu ci way politique yu Sénégal. Euh, yow tey gis nañu la ci plateau bi gis nañu la fan yee xëy na nga wax gis nañu Ousmane Sonko mais ba tey xaw na yeex l'absence wala le silence assourdissant des politiques bu ñu waxee politique kàngam yi loolu également lan moo ko mun lu jamono joo xam ne sénégalais yi ñu ngi leen di xaar ci problème bu mel nii. non déet foofu moom da def seen mea culpa yéen presse dafa am benn jamono joo xam ne affaire bi dafa ne tël ñu ne union sacrée kenn bu fi waxati politique ñun waxuñu politique xam nga dañu jaawale politicien ak wax politique. fi wax depuis cinq de politique. mbëri bu ñu bëggee yëkkati seen kaddu ñu ne non temps yi yi politiciens yi dañuy sondal nañ dem jële ay ay ay experts. xam nga lan mooy rôle politique mooy teg ay stratégie d' ensemble ou vision d' et jéem ci jéem a indi dajale ay nit pour indi ay solution man dañu ne asalaamaaleykum nee naa def naa vidéo wax ni man mesure yu ma gis ñuy def aéroport doyuma te dañu war a tëj aéroport. ñu teg ci ay fan la le 23 je pense ou ou avant trois deux jours avant benn vendredi ma def tweet ne Macky Sall lu muy xaar pour tëj aéroport bi ndax virus bi mënul jóge bitim réew jóge ci réew mi ci bitim réew lay jóge te ni ma gisee réew mi préparé gu ñu préparation boo xam ne bu fi virus bi duggee dinañ ko mën a euh, dëkku donc ñun rôle politique c'est ça critiquer faire des propositions jour bu Macky Sall def discours am le 23 juin publier nañu contribution bu am am solo sur justement yi may wax ni problème mu hôtel yi transport aérien yi naka la ñu war a def au lieu de donner de l'argent fexe ba identi au de donner des vivres fexe ba identifier avec les systèmes jooni jooni waar yi et cetera comment atteindre les couches les plus vulnérables et justement def euh, yi may wax fii yëpp. xalaat yooyu lañ lañ defoon jour yooyu. mais xam na état bu buggee réussir dafa war a bàyyi xel nopp ci li askan wi di wax pas seulement opposition bi doo wax ni kii li mu wax opposant la rek amuluma solo parce que ñun on a beaucoup écrit ku dem suñu compte Facebook yi page Facebook yi ak yenn presse bi ak yenn site. internet yi ñu ngi gërëm vraiment ñooñu tamit génne nañu suñu contribution peut-être plus de dix contributions écrites par nos cadres. mais est-ce que monsieur le dafa defoon sa contribution boobu muy euh, transfert d'argent bi ci ñi nga xam ñoom la ñuy jox ndimbal bi c'est vrai que idée la boo xam ñu bëri waxoon nañu ko mais mënul nekk. mënul nekk parce que moment bi nga xam ne ñu ngi ñu ngi wax ne dañu truquer dañu truquer base de données bi nga xam ne ci la ñuy dugal ñi yeyoo ñu jox leen ay ndimbal nga xam ne député yi chef de quartier yi maire yi dañu jël seen ay jarbaat seen seen ay mbindaan. seen ay jabaru député dugal leen ci biir nekkatee ñu doon jot ndimbal chaque mois wala chaque trois mois alors que ñooñu mooy base de données bi nga xam ne ci la ñu war a appui wu yokkaat ci ñi ñu ci yokkaat ci quartier yi donc xam nañu loolu baaxul déjà parce que ñi doon jot ndimbal du ñoom ñooy hmm? waaw bourse familiale yi du ñooñu ñooy ñi ko mérité woon di ko jot déjà magu yi amoon na ci ñu ñëwaat comme sànq wax nga ko ci sa biir contribution ci quartier yi da ngay dem euh, maire bi wala ñi jiite séddale ndimbal bi ni ah yow kat nekkoo suñu militant wala nekkoo suñu militante na nga fexe nag ba boo lekkee ci ndimbal bi élection yu ñëwaat na xam fan nga jëm wala sax beneen ndimbal am mel na ñuy distribuer ay poubelle poubelle wala ay lave yu mel noonu wala ay euh, antiseptique ci quartier yi dañuy dañuy dañuy ñëw ba ci benn buntu kër ni kii di suñu militant dañu koy tëb gestion bu bon boobu mënoo ci am base de données bu lay permettre nga collectionner ay numéro ci ñi nga xam ne yeyoo ñun yeyoo nañu ndimbal bi pour jox leen ko moo gën a pragmatique foofu la jamono toll ci rapidité mais amuñu gestion bu honnête bu jub boo xam ne dinañu permettre ñu def li nga wax nii lu ma ta bàyyi wàlla xel la effectivement loolu sax mun nañ ko corriger mais dama dama joxe exemple mais loolu mën nañ ko corriger ah cest à bu ñu jëlee jaaree ci ay organisme officiel mhm. agence nationale de la statistique boole ci banque yi mhm. boole ci nag maintenant citoyen ci ku ci nekk aussi reconnaître dinañ ci doon mun a ta euh, dinañ doon mun a euh, wàññi euh, yu yu garaaw yooyu nga décrire léegi. am na li ma wax moo gën a gaaw mooy boo wàññee dund gi bu fekkente ni da nga bëgg a boo wàññoon dund gi. subvention. fi subventionné même bu dee da ngay cible ay zones yu ñu koy subventionné comme dañu tëj frontières yi actuellement interrégion yi boo nee damay subventionné zone yu gën a métti yi. Touba amul usine amul ay administration ñu bëri jigéen ñu bëri tey liggéey tuñu ñu ngi toog marché Ocass moo fay dem Podor luuma yu bëri tëj nañ ko fa gars yi ñu ngi toog extra extra Kédougou nga ne zone yooyu laay gën a subventionné ma subventionné de temps yeneen zone yi dakaar ma subventionné de temps zone yoo xam ne subventionné naa électricité bi ak ndox mi. surtout kaw yeneen ñi nga xam ne amuñu sax ndox amuñu kii. ma xool ñoom it naka laa leen naka laa gérer. mais il faut rassembler encore une fois les sociologues. Mm-hmm. les doomu ndey je ne dis même pas samay idée rek laay doxal naa rassembler les sociologues les organisations de femmes kuréelu femmes yi nga xam ne dañu nekk ci monde bi ci ci ci réew mi tey les et cetera boole leen ñu toog ñu xool def ay kii euh, def ay proposition xool nañ lañ koy doxalee loolu mooy réew dañ koy pencoo alors monsieur le ministre. mais ndey fàttaliwaale ñu fàttaliwaale ni. Mhm. moment bi Covid 19 di ñëw booba marché bi dund bi dafa yokk woon. Covid bi mën na baale affaire bi mais ceeb beeg yi ngay wax nii yëpp moment bi muy ñëw daf fekkoon mu yokk gars yi dañ ko fule waaw mais comme nee moom léegi day maye ceeb. mi milliards milliards yooyu bu ko defoon ci njëgu ceeb bi. ceeb bi wàññeeku mais ceeb demul d'accord ma ci lo façon yooyu dañuy joxe rek xam nga li mu def dañuy critiquer wala ne mënoon na am sax benn forme bu gën a oyof. te xam nga bu fekkoonte ne réew mi yor nañ ko dañ ko waroon yore tey autosuffisance en riz dafa waroon am ba nga xam ne dañuy jëm jënd ceeb ci ñuy béy ceeb ñoom ñoo ñu am weccit ñu ñëw joxe ko fañ ko war a joxe. bi presse bi dafa war a def son mea culpa ma bëgg foofu nga indi ma fa tuuti ay leeral c'est vrai que opposition bi. alerté woon nañ ci début ba ni dañ tëj frontière yi ok mais tey nit yi lu ñu comprendre mooy euh, mutisme bi nga xamante nii moom lañ seetlu est-ce que démarche bi opposition bi jël est-ce que mënul indi jiixi jaaxa ci xelu askan bi que ni ñii euh, réellement dañ fi nekkal seen bopp wala askan wi lañ fi nekkal. te man xam nga ça fait boo xoolee ça depuis avant mois de décembre ba léegi gëj naa wax kii kii génn télé et parce que maa ngi woon ci yeneen réflexion parce que léeg-léeg da ngay da ngay da ngay say xalaat ak. yooyu li tax ma gën a jógaat mooy lii. te ba mu ñëwee ba léegi benn yoon noppiwuma ñu nag mënuñ ñëw di fa gëpp dinañ def suñu déclaration distribuer ku publier tant mieux ku publier ñoo xam ne publier wu leen mais def nañ fi ay déclaration yu ama am solo. d'accord wax nga ko sànq. naa naa naa la ko envoyé bu amul solo rek. ñu wax fi ci télé nga ne. d'accord même bu ma teewul nga ne déclaration. dañ la koy nangul mais d'une manière générale opposition bi parce que yow ba nga génnee léegi ci. Macky Sall daal di def sa. Euh, maa ngi ñëw dal di def sa langue bopp def république de valeurs donc tey mën nañu wax ni opposition bi nga gën a jege. que pouvoir mën nañ ko waxee noonu alors tey mais d'une manière générale parce que sénégalais yëpp ay posé wu ay question que ni tey est-ce opposition bi seen bopp lañu fi nekkal wala askan wi lañu fi nekkal en tout cas man kenn waruma laaj ndax euh, d'abord gënuma jege opposition bi ci opposition laa nekk euh, dinaa leeral foofu noonu deuxièmement kenn waruma laaj ndax da nga nekkal askan wi wala da nga nekkal. ko personnaliser monsieur le ministre s'il vous plaît non dama lay expliquer mënuma tontul ñeneen. parce que man opposition man j'ai toujours été contre ñu bëgg a jox ni opposition benn bloc la. non non opposition bi dewul benn bloc de am na ñu nekk ci opposition bi seen xel mu ngi nekk rejoindre Macky Sall. Mhm. loolu nañu waxante dëgg. moo fi eh, am c'est la réalité. ñu discuter ci affaire élection yeeg yooyu xam nga lu lu tardel di d'union nationale Macky Sall bi. 4 avril waroon na am gouvernement d'union nationale. kon mi ngi xeeñ. am na ñu fi nekk ci opposition tey <laughs> bu bu bu woon <laughs> coronavirus bi c'est des victimes du du coronavirus bu fekkul woon coronavirus bi tey ñu ngi wetu Macky Sall ci opposition bi donc l'opposition n'est pas un bloc monolithique man mënuma tontul opposition mën nañ bokk opposition tamit te bokkuñu gis-gis bu boobaa tamit mënuma la assumer li ñu mën a assumer ñun suñu partie ak nu ñuy doxalee. mooy ni ñuy doxalee mooy gis nañu une situation boo xam ne laaj nañu alerter sénégalais ba ñuy njëkk a wax koo wax mu jafe man dama daan wax ak suñu gars yi sax ci biir ne leen man affaire corona chloroquine bi tension nañ ci maandu gars dañ leen ne doo médecin tey feeñ na bon mais man li ma war mën a wax man maa ngi ci opposition deuxièmement amul sénégalais bu may dajal bu ma nee yow Thierno Sall euh, sa bopp nga fi nekkal parce que ñi bëgg a dem ci Macky Sall fa ñu bëgg a yegg falaa woon mhm. mais li ma taxale Macky Sall lan la intérêt Sénégal et ensuite souvent gars yi dañ leen ne waaye mais yow ba ba nga nekkee ci biir est-ce que et cetera et cetera ma ma gaawantu këf question boobu man dama nekk ministre. 23 20 23 août ou aut août ou 28 26 août 2016 ma toog RTS kel ci laa gëj a toog RTS. léegi même RTS ba ma nekkee ministre dañ ma doon yàgg naa koo xam ah, dañ ma doon beddi nga def tournée ñu ne ah kii ku doy waar la dafa bëgg a am ay visibilité politique na bu ñu wone tournée parenthèse ma toog RTS <laughs> 26 août 2016 ne leen contra timis bi boobu contrat timis bi ëmb na réew mi ma leen saa yu ma ci gisee loo xam ne jaaduwul man naa ko dénoncé ministre de la république la woon ministre de l' énergie 23 26 août ou 23 août 2016 uh-huh. ci RTS bande baa ngi fi les affaires de la cité ma togg Mamoudou Ibra kan mu laaj ma Euh, RTS c'était le point avec Nying. Omar Nying. Omar Nying Omar Nying. Mahmoud Ibra Kane ma toog moom février 2016 toujours mooy laaj ci affaire pétrole bi ma ne ko ak nan lañ koy gérer ak bu amee ay lënt-lënt ma ne ko benn affaire rek xam naa ko comme ni soldats yi di wax exécuter des ordres manifestement illégaux sa c'est la responsabilité de celui qui l'exécute bu ma gëm ni nekk ak Macky Sall wala nekk ak keneen rek war na tax ma soppeeku niñ ma yaree tënke ma noonu depuis ma nekk tout tànk te tey jii nii ñu nekk ci ramadan ñu ñun ñëpp ñuy bàkk ñuy ñuy dellu suñu bopp yàlla mais ci jëf la d'abord woor bi ngay woor ak tënk bi ngay tënk sa bopp pour yar sa bopp la ci yenn yi bu ñu bëggee def looloo xam ne dëppawul ak intérêt réew mi mais da dangay da ngay def lii fula moo tax moi je pense que gars yi mënuñu kenn mënuma wax de en tout cas man man yow Thierno Sall ne euh, ne euh, boo gisee intérêt réew mi. da ngay xaw a yox yoxi wala yooyu. monsieur le ministre vous avez toujours si ñëwuma yox yoxuma de. Uh-huh. vous avez toujours été constant euh, ci say position ci say déclaration euh, tey tamit ñu bëggoon xam euh, benn actualité boo xamante ne quand même ñu ngi koy wax lu bëri bëri mu di vrai ou faux décret d'honorariat boo xamante ne ñu ngi koy jagleel les anciens présidents le du conseil économique social et environnemental lii di communication pôle communication étatique génne démenti nekk loolu. loolu euh, du dëgg euh, tey ji mu jur coow bu bëri fii ci Sénégal lan lañ ci mën a jàpp ak lan moo siy sa position bokk naa ñu ci ñu tweetoon jour bu affaire bi génnee parce que def naa tweet moo gën a gaaw ba ma bi ñu jotee information yi laajte mbir mi ndax am na et nañ ci leeral ndax décret boobu muy 964 dama gis ay décret yu ko jiitu yu ñu publier publier journal officiel ak décret yi ñu ñëw après moom ñu ñëw après moom yi ñuy publier journal officiel mais bi sës ci moom ak bu sës ci moom maanaam moom place bi mu toog maanaam place bi mu toog gis ñu bu fa génn moom waaw moom place bi mu toog gis ñu bu fa génn c'est important loolu c'est important deuxièmement boo seetloo décret bi ak ni ñu ko bindee da nga xam ne ni ñu ko tëggee da nga xam ne kii kàngam dëgg ak ku xam état dëgg moo ko tëgg parce que néew na ñu xam par exemple <laughs> conseil économique social secrétaire général à la présidence mooy gérer affaire am te boo xoolee ministre d'État ministre secrétaire général la ñu viser ay nomination am ak ay loi constitutionnelle viser lu bëri ci décret bi mu war ni kii du coomo moo ko bind du imitateur moo ko bind waaye tamit Sénégal gii ñu toll nga xam ne boo waxee Macky Sall depuis sànq sax maa ngi wax Macky Sall président Macky Sall président de la République son excellence Macky boo tuddul loolu sax ñu mun la créer problème ak santu maag nga naan da ngay imiter signature am ay bu boobaa <laughs> te boobu ba léegi dara fekku leen ci. boobu ba léegi gis nañ gis nañu gis nañu magam gis nañu rakkam. mais gis gisuñu comme boobu dëgg mais gisuñu bi juddu à sa place. waaw te loolu benn la ñaari bis itam mail yi ko war jot yëpp jot nañu ko. waaw mais la moo ko awale ci la moo jox ñu foo ñu def foo bi du leen jox mail ñi ko war a jot. waaye ñun ñi ñëpp ci mail yooyu la ko gars yi jaa ñu ko jot ci mail yi ñoo ci lañ ko jotee ñun ñi ñëpp ku ko jot rek foofu la ko jotee ñoom xam na nañu jafa jaar ci ay mail donc c'est difficile nga naan dangay ngay moo tax extra mhm. mais lu gën a graaw loolu mooy gën a graaw loolu te loolu dafa poser un problème fondamental de la république mooy gars yi benn démenti ne lii amut damay ma foofu tuuti rek ma expliquer mu leer li démenti ne lii amul d' abord démenti comme ni nga wax ni dafa war a dafa war a ne décret 964 boobu <laughs> lii lay wax mu ngi wax ci mbirum état d' urgence wala mu ngi wax ci mbirum nomination nangam wala mu ngi wax ci mbirum hôpitaux mais waxul ci mbirum conseil économique social et environnemental ñaar ñu ne waay décret bi kenn publié ko journal officiel mais décret yu bëri dañ ko publier journal officiel et puis li koy li koy weddi sax signé wuñu ko cacheté wuñu ko. cacheté wuñ ko mais dinaa ci conclure benn conclusion bu am solo xam nga journal officiel am na ay décret yu bëri te man yor naa ci ay décret yoo xam ne mettre nañ leen ab napplication te jaarul journal officiel mos naa fi joxe exemple ci rajo yëpp gars yi dégg ma ne man gis naa benn jour <laughs> décret boo xam ne trois milliards cinq yoo xam ne dañu jël. njëgu licence su 3G bu Sonatel mooy bu Sonatel di dugal trois g ci temps sommet wu OCI bi essayé ba pare maintenant ñu ne ko waaw léegi pour nga am droit wu exploiter 3G da ngay fay fay 3 milliards 5 jaarul ministère des finances jaarul fenn mu ñu ci ARTP gars yi def ci leneen amul décret décret bi publié ko journal officiel duggul ci loi de finances rectificative Mansour su nga gis décret boo xam ne day joxe ñaata la euh, président conseil économique sociale di gagné wala ñaata la premier ministre di gagné yan fonds politique lañ ko jagleel. Mm. les hauts magistrats là gis nga yan décret mooy publier seeni salaire ak yooyu. Mm-hmm. non parce que <laughs> décret yooyu am na pourtant bu amulee amul benn fonctionnaire bu sañ jël alal gi ni doy. yu ñu wax yi fekk euh, amul décret waaye tamit décret yooyu bu ñu ko fësalee ah, bu boobaa enseignant yeeg waa ànd gësam ñi ñuy jox cinquante mille francs prime te ñuy exposé seen bakkan bu boobaa ñu coow li ni ko donc décret yooyu dañ koy teg de part fi ma wax nag lu am solo mooy lu graaw te dafa lëkkaloog fi ñu tàmbalee mooy bu fekkee ni état day am ñuy foowee di démenti parce que tey jii nii wane nañu décret 976. buy nommé benn soxna si ne woon conseil économique sociale social. présidente honoraire. donc lépp a teew pour wane ni décret bi du sax ay caaxaan lu nekk la gis nañ ko kenn mu sañoon unité kii bu ñu ba état di formé démenti te ñun yàgg nañ leen wax ni état bi day wax lu nekkut. fii la ñu ne woon le président de la république korité la woon de je crois daaw musul gis rapport IGE benn ministre moo ko wax uh-huh. dafa def enquête am ci wala dafa sukkandiku ci waxu président de la république te waxu président de la république euh, bible la wala coran la wala dafa am démenti dafa am ay enquêtes yu mu def non li mu ñu waroon wax instant yooyu mooy comment se fait-il loolu tax ñu ngi suufeel esprit wu askan wi di ko wàcc di ko wàcc di ko wàcc ba nga xam ne lu ne la ñuy nangu décret boobu bañ ko démentir rek gars yi ne waaw ah lii lii lii opposition bi moo ko sosati non ñaata démentir ñoo fi jaar yoo xam ne benn nekku ci di démentir ay yoo xam ne yóor péng la eh, tax tension président la république gis nga difficulté bu am gérer réew mi tey mel ni réew mi amatul njiit mu ne leen bàyyi leen ku nekk na def lu ko neex mu amoon consensus au départ ci mosquée yëpp tëj ba mu yàgg ñu gis ay changement de de parce que dañ dem ba nga xam ne alors parce que loolu moo indi loolu moo indi carte de crédit parce que mandat yëpp naa def mandat de 5 ans non 8 ans non naa def lii naa def lee ñëpp di gis du ma sama frère nommé naa sama frère du def lii naa def lee mais loolu boo ko dëkkee. Mhm. am na ay kilifa yoo xam ne duñ la wax dara boo ñëwee dinañ la dinañ la dalal wax ak yow. Mhm. mais booy dëpp ñuy def lu leen lu leen doy. parce que say tegtal ak say wax doyatu leen. Mhm. état nag bu toll noonu foofu danger la. alors le ministre. Euh, ñu def transition euh, ñëw ci contrat pétrolier yi nga wax ne de nouveau contrat signé nañu ko diggante gouvernement bu Sénégal ak Franck Timis bëggoon nañu xam naka la contrat yi demee kan moo ko signé kan moo représenté état bu Sénégal Franck Timis kan moo ko représenté ak fan la ko signe des éclaircissements par rapport à cela ma ma leeral loolu dafa xaw aussi euh, gudd tuuti xam nga Franck Timis dafa yoroon ay bloc pétrolier Saloum offshore sud Rufisque offshore profond état Sénégal nangu ko Saloum offshore sud xawma ci yan anam lañ ko nangoo ba mag jógee foofu la mais Rufisque offshore profond man mi maa ko nangoon ci ay loxoom lu taxoon ma nangu ko parce que buñ la joxee permi dafa mel ni buñ la joxee baay wala lu mu doon dañ lay ne jox nañ la àpp nangam war nga def sa war nga def investissement yii pour gëstu ndax am na pétrole euh, gasaale ab ten pour xool ndax am na pétrole wala gaz et cetera ci auteuru war nga ci investir lu tolloog nangami milliards ci franc hmm. CFA jox la ay ay euh, obligation yu wér mu def trois ans et demi quatre ba may ñëw man deux mille quinze gis ni laalu ci dara deful ci loolu dara te boo ci deful dara trois ans et demi mooy première période bi après dañ la war a renouveler sa permis pour nga dugg ci deuxième période waaye bala ngay dugg ci deuxième période faw nga am loo def ci première période bi mooy li la war wareef yooyu ñu la teg moom defu ci dara boobaa man am naa option renouvelle ko ko walla nangu ko ma daal di nangu permis bi xam nga lu tax ma nangu woon permis bi mhm. parce que permis boobu dafa fekkoon mu nekk ci diggante ñaari région ñaari bloc yoo xam ne bii dañ ci gis pétrole mooy Sangomar bii dañ ci gis gaz mooy Kayar ba ma ko nangoo ci lañ ko jox ci la ko état ne nañ koy jox total loolu mu nekkaat beneen coow parenthèse ñu tëj parenthèse bi foofu mu mu mu mu daal di ne day porter Sénégal plainte ci cour internationale d'arbitrage bu affaire bi arbitrage pour ñu wax kan moo ci am dëgg ndax état wu Sénégal am na droit nangu permis bi wala moom war nañ ko delloo permis bi ci sama gis-gis de bu demee day xalangu te mun naa jox fu ma ko wekk parce que am naa ci beneen misaal bu gënoon bu gënoon sax compliqué boo xam ne ka demoon plainte dafa xalangu muy faar parce moom def fa dara te amul capacité yi te amul woon intention wu def te ñoom ci seen wàllu bopp ba ma commencé nangu mbir mi ñëw nañ ba ci man nee ma waaw dañ doon xaar pour que ñu xool ndax pétrole am na fii wala gaz nee am na fee ma leen ah bu fekkee loolu la man maa leen gën a mën a def loolu xaar <laughs> donc tribunal international ñu dem foofu jamono yi ñu ne ah ñun kat léegi tribunal la ñu dem ñu may waxtaani six mois pour jéem a xool ndax mënuñu juboo suñu diggante ca njalbeen ca njalbeen la ñu wax ñu ñu bëri wax ni li mu yóbbu affaire bi tribunal international c'est pour rek am lu mu rotal ci gafagaam jëlee gafagu Sénégal parce que arrangement lay mujj lii nii schéma bi ce njëlbeen waxoon nañ dina am jamono joo xam ne day retiré day ñëwee ne ñuy laaj suspension waxtaan ci seen biir comme ArcelorMittal nu mu fi defoon ak ay affaire état Sénégal ArcelorMittal ci affaire Kumba ressources yooyu ak yooyu. mujj nekk ay waxtaan ci suuf ñu ñëw nee la ah quinze milliards lañ ci am de naka la 75 milliards 75 milliards oo est-ce que mënuñ ci woon am lu ëpp ak naka la demee donc est-ce que fii mu duñu dem ba mujj nii. que Frank Timis daañ ko jox nangame milliards pour ndampaay ndax la ñu nangu woon permis <laughs> ay permis ci perme yoo xam ne benn waru ko won am ñaar def na fi ci réew mi ay njombe yoo xam ne mooy ci contrat wu san louis offshore profond ak Kayar offshore profond yoo xam ne normalement yoon daf ko waroon topp ak képp ko àndoon ak moom ci njombe yooyu mais ñu ko topp nag parce que ñu muy waxtaanal nii ñoom ñoo ànd ak moom def ñoom yooyu waaw ah, donc mun nañu xel mun na ñaaw comme ñooñu mun nañu ànd ak moom signé ay contrat yu ñu antidaté mhm. date ko euh, mu nekk 20 mars 2012 ñu antidaté ko 17 mars 2012 boobu Petro boobu Petrotim sax judduwul xam ngeen histoire bi ñu mun a jàllale loolu ba mu ba mu dagan mais ñu daganal affaire bu gën a ndaw bii muy affaire wu nangu naa permis ci yow waaw léegi yow dem nga porter plainte xaaral ma jox la ab ndàmpaay mu ndaw nga dem sa yoon te ba ma fekk teguñu ko fenn loolu mooy luñ tiit te dañ ko waxoon ca njëlbeen xaw ma ndax li ma wax leer na am déet. ok hmm? alors ci mbirum euh, beneen scandale petro bi yoon Akilee mu nekk actuellement ni vraiment lu lu yëngal lool actualité mu nekk ci contexte boo xamante ne ni dañu nekk ci contexte euh, coronavirus gis nañ bërki de moo njaay rek euh, ay dara nga xam ne moo yore syndicat Sutelec ni ñoom bu bu ñu génnee ci corona bi dinañ génn ba ñëpp dégg leen parce que gis nañu ni intérêt Sénégal la ñu salfaañe bu baax a baax alors tey ban jàngat nga am ci dossier bi nga xamante ne ni dafay révéler véritablement ñoom mbéy yi nga xamante ne ni nit ñi jàpp nañu ni ministre de l'énergie def na ko biir Senelec <laughs> yow àtte nga ba pare. àtteewu ma ne dama ne ñi nga xam ne dañ ko jàpp. waaw ñoom ba ñi nga xam jàpp. voilà d' accord ma tontu la ci aussi. ak plaisir. très parce que nous sommes presque pris par le temps. oui mm-hmm. euh, alors ak Akilee bi euh, man nekkoon naa ministre de l' énergie ko dégg Akilee donc ci après ba ma fa jógee la la am ma nekkee ministre de l' énergie mosuma nangu. Mm-hmm. genre Akilee yi ndax benn dama jàpp. ay institution internationale yu bëri ne woon nañ dañu war a filialiser Sénélec maanaam def branche production branche distribution transport branche distribution waxuñu nañu ko externaliser attention filialisation ak externalisation du benn filiali lu banque ak ñooñu doon wax dañu ne cent pour cent Sénélec def cent pour cent am ñu am comme nu ñu def Petrosen temps yi quoi Petrosen ne Petrosen Holding am na branche ceci branche cela mais lépp état moo ko moom à cent pour cent man loolu gëw ma ni solution la bu baax la ci intérêt Sénégal la ma ci waroon def ba ma nekkee ministre def naa ko li ma jàngat ci ak Akilee bi nii mooy benn entreprise boo xam ne 64 34 euh, pour cent la ci Sénélec moom donc au sens juridique du terme du filiale Sénélec mmh. ba ma nekkee ministre ñun ba ñu nekkee ba ma nekkee ministre ñun amoon ay entreprise yu bëri mel noonu ay entreprise chinoise waay Huawei yi ak yooyu yëpp yu buggoon ñëw accompagner pour yeesalaat compteurs yi fekk Senelec moo koy doxal fekk accès à la même technologie fekk du am benn jafe-jafe donc affaire Akilee bi nii affaire bu diis la bu doy la mais lu ci gën a waar mooy da dégg bu doon opposition la ak pouvoir <laughs> ñu mën a ne non opposition bi mooy sànni xeer pouvoir mooy mais pouvoir ak pouvoir la diggante ministre la DG am na conseil d' administration hmm. une administration organisée un pays organisé am na un président de la République qui coiffe également le le ministre de l'énergie et le président et le directeur général de hmm. Sénélec et le PCA de Sénélec mais coow dafa mel ni Macky Sall moom président de la République son excellence Macky dafa mel ni moom yëgu ko. te pourtant xaalis bi ñu ciy tudd 187 milliards par an ci poche ak lii ñaata hôpital la mon a tabax. man je sais que un dossier comme ça ma nekk naa ministre. un contrat comme ça ne peut pas être signé dans la République sans que Macky Sall ko. loo bëgg a wax foofu monsieur le ministre. mais de toute façon d'ailleurs dañuy def raisonnement li ñuy wax. mu bàyyi lii yëpp muy jàll ça veut dire quoi. dama président de la république yëg na ko damay d'abord démontrer ni que yëg na ko parce que mu ngi lire journaux yi mhm. mais bala ñu koy euh, signé laa wax defoon nañ def raisonnement par euh, absurde si un contrat aussi important dans une entreprise stratégique man nekk naa ministère boobu mënoo fa jël ay décisions yu importantes ci Senelec ci SAR te amoo accordu président de la république mhm. non mënul nekk bu nekkee na ko dindi demee mënul nekk bu fekkente ne nag yëgu ko mooy encore c'est pire mooy lu xew ci réew moom yëgu ci dara mais en tous les depuis coow li commencé mel ni affaire bi comme ni may waxee ci affaire <laughs> Petrotim ak yooyu ba muy ne gisul rapport IGE bi dafa mel ni mbir mi mu ngi xewee Inde wala mu ngi xewee bu bu tas bu tak temps xaw ma dëkk yooyu ñuy wax te <laughs> xewul Sénégal fii. alors monsieur le ministre sànq da wax ne mbir mi c'est pouvoir ci biir pouvoir est-ce que munu ñu jàppee li nga xam ne moom moo am tey di contrat bi te directeur de la Sénélec dafa dem ci sunu ay naataango wax ne contrat bi amul benn problème bu ñu gisee li tey mënuñu wax ne c'est une cabale contre Matar Cissé képp koo xam ne xëy na njortees nañu foofu ci biir parti bi ne dafa am ay ambition présidentielle comme li la li la daloon ñu la ko doon moom moo tax lii ñu ko ñu def ko ci kawam. yaa nga ma bëgg a dugal ci ci ci ci ci kiw. c'est une question. non mais bonne question. mais je je je réponds comme ça je dis man ce qui m'intéresse sur cette question c'est les grands principes. ce que le DG a dit même bu waxoon ni moom tey d'accord na ci contrat bi du du tekki du teggi ñun suñu devoir de curiosité vis-à-vis de contrat bi ñu exercer ko mu ne d'accord ci tamit. war nañ ci def suñu euh, devoir de curiosité en tant que euh, truc le jeu là effectivement il y a du jeu politique hein un DG seul ne peut pas se mettre à attaquer sans arrêt son ministre qui est d'ailleurs dans un silence <laughs> assourdissant sans que kenn wax ak moom ni le ministre ni le président de la République comme si il s'agit euh, de guerre entre Euh, bu doon États-Unis ñu parti démocrate ak parti républicain bu dee fii ñu ne entre opposition pouvoir y a un problème y a un problème. alors est-ce qu'il y a un capitaine dans le navire qui doit dire euh, siffler la fin de la récréation prendre les dossiers en charge et voir où est le problème. le président derrière tu es derrière le DG de la Sénélec. selon ci yow non moi. Mhm. je dis soo nee am na kuy seetaan ça veut dire que ne am na ku nekk ci ginnaaw waxul dara sifflewul fin de récréation mhm. tel que notre état est organisé. tel que notre état est organisé. est telle que mm, l'administration centrale est organisée. Je résume. Bugguma ñu pàcc pàccal mbir mi. Un, le DG de la Sénélec avance dans ce dossier avec des appuis à haut niveau. Pour me prouver nag haut niveau boobu à quel niveau ça se trouve mais de ma compréhension. Mhm. Deux, ce contrat n'a pas été signé sans l'accord du président. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Entre-temps. J'en sais rien. Trois, en ce qui me concerne personnellement j'ai toujours été contre ce genre de situation puisque ma ma nekkee ne nañ dañ fi indi benn bateau quatre cent méga barge quatre cent méga teg ko ci ay barge xeex bu metti bokk na ci dañuy wax ni benn dossier wala yow ba nga fa nee da nga noppi mais bokk na ci dossier yoo xam ne fatalement ñoo indi woon suñu. alors une dernière question une dernière question laata euh, temps bi di waxtu. Euh, téléspectateurs yi coowal ak li bi ñu xam ni. Euh, ci surveillance ministre bi du du contrat boo xam ne tey la du lu bees. Mhm. am na ñu nekk société civile yàggoon nañ koy dénoncé mat na léegi ay at. problème bi kay mooy ñoom ñëpp dañ ko yëg lan moo xew ci diggante bi nag ci diggante bi euh, ndax nag bu ñu tong-tong la après mata yu tolloowul xëy na ku nekk ni ngi ci ni ngi ciy gisantee seen bopp wuute wala déet parce que akili bi du tey ñu ko commencé dénoncé ak léegi da ngay présenté journal ëpp na ëpp un an. Euh, donc yàgg nañ ko signé la moo taxoon ñu noppi woon boobu ba léegi ba tey après. mu doon lu euh, exposé pour euh, nekk ci Canada. bokk na ci ñi njëkk a soulever. dossier bi lu yàgg yàgg ba mu amoon sax ñu ko doon contredire biir Senelec te tey ji ñooñu ñoo taxaw tey porté combat bi. alors monsieur le ministre ñu ngi wax ci conflit d'intérêt ci mbirum pétrole bi ak gaz bi waxati mbirum conflit d'intérêt ci mbirum Senelec alors tey yow en tant que président République des valeurs loolu la la la inspiré tey bu ñu continuer nii est-ce que Sénégal dina ci génn. bon euh, Sénégal de toute façon ñun ñëpp gis nañu que. Hmm. c'est un monde de réseau. ma maa ngi wax ak surtout nag ak euh, jeunes yu may déglu ak sénégalais yu moom Sénégal cordonniers yi tailleurs yeeg ñu nekk ci àll bi di dund ay jafe-jafe moom Sénégal. Sénégal c'est un pays de réseau. dañ fi teg benn réseau boo xam ne. ñu nekk ci kaw ils font tout pour se servir entre eux xam nga yëg nañ fi am na ay juges yoo xam ne dañ leen cëraloon ci temps Macky Sall ñun yuuxu nañ ko fi ba sonn wax ni ko jaaduwut ñu yóbbu leen soixante cinq ans soixante huit ans ba ñu jeexalee au lieu ñu dem noppaluku dañ leen tegaat ay station d'attente jox leen ay fromage en attendant ñu ne kii fii nga jëm kii fee nga jëm. Vous voulez dire qu'il y a toujours quelque chose derrière. non je veux dire que c'est un pays de réseau cest am na ay ay forces yoo xam ne des conseils économique des institutions yoo xam ne dañ fi ne pour jàppale président de la république bu ñu ñooñu tamit en retour ba seen giiru dund mm-hmm. ba ñuy sangu suuf président dina fexe ba ñoom it seen i lu ñuy waxee entre guillemets teraanga ñu ñu yor ko mm-hmm. système boobu nag dafa dem ba graaw ba nasaxal l'esprit de la république ñu ngi célébrer suñu soixantième anniversaire u indépendance du temps de Senghor et même peut-être à une moindre mesure du temps de Diouf mu nga xam ne ñun on l'a combattu durement ñu ñu doon wax la génération malsaine même du temps de Diouf ça n'avait pas atteint cette proportion boo xam ne dañuy def des choses totalement antinomique à l'équité à la morale à l'éthique aux valeurs de la République mm-hmm. ndax ci ne cëral lu ne sa a des médecins qui chôment dans les écoles dans les hôpitaux ci hôpitaux yu bëri y a xam ne dinañ toog dix ans amuñu salaire enseignants yi dëkk ci grève enseignants yi dëkk ci grève continuer benn réseau boo xam ne les mêmes lu ne lañ leen di defal ana ana tey suufu Sénégal si les villas des femmes résidence de point 1 boo xoolee li fi tubaab bi bàyyi woon ay sénégalais yu jaar ci état bi ñoom ñoo ko séddoo les mêmes ba pare bëgg ñu defal leen ay 4 millions cinq ba bañ leen di sang ci suuf. jox leen ay chauffeur di leen jox ay teraanga même honneur mais juge sax moo war a bañ ni man retraite dafa war a am ma jeexal dem nekk libre. pour que ñëpp xam ne man li ma doon àtte ni ci liberté laa ko teg mais ay juges yu ñuy gis ni ñu dem di faju ci hôpital américain di publicité hôpital américain de Paris nga xam ne juge marocain sañu ko def mm-hmm. juge tunisien sañu ko def sénégalais yi nag ñun dañu sàgganee suñu réew parce que lu fi waay def mu jàll ba jàpp nañu loolu mooy normal. c'est la loolu mm-hmm. surtout lu fi waay def mu jàll. lu fi waay def c'est-à-dire yow mën a fi Sénat delloo si Sénat à peu près delloo Sénat ba pare ne léegi delloo fi conseil économique social wala kii ne léegi sax de léegi dama lay def président honoraire à vie di la jox 4 millions 5 par mois. pendant ce temps des pompiers n'ont pas de protection. pendant ce temps gañe marché wu 9 milliards ci jamono épidémie. téye ko ba léegi ba ñu lay def ay rappel ak ay mise en demeure. pendant des pour aller éteindre des feux. pendant ce temps des médecins n'ont pas de protection dans dans dans les hôpitaux ah. mhm. ñu nag sama genre bi loolu tax ci meeru koor la ñu nekk encore une fois damay koo xam ne peut-être yar bu ñu ma yar la mhm. ñu ma yar ñi ñoom téere la ñu gënoon fonk ak ngor ak diine d'accord doylu ci loolu mhm. Sénégal ñu ngi ci doon jamono yoo xam ne état bi wane na ay faiblesse am yëpp jot na sénégalais yi bu lii weesoo bu dee lii romb na xam nga les grandes nations là se font dans les grandes crises mhm. et se revoient dans à travers les grands grands problèmes ñun une grande crise nous a frappés qui dévoile toutes toutes nos faiblesses nous devons nous remettre en cause et remettre en cause la manière dont ce Sénégal est géré bu dul loolu euh, coronavirus bi sax du dara parce que ce qui arrive à d'autres pays c'est ce qui nous est arrivé c'est ce qui risque de nous arriver fu may daanalee bu fekkee ni jeex na nga may ma ma tàggoo. waaw justement dama la naroon jox nga joxe sa dernier mot monsieur le ministre euh, président ñu bàyyi la nga tàggoo. waa d'abord juste fi ma tàmbale woon rek euh, bu ma ko waxoon ci début bi ngeen def ne dama leen di xaw a kii. pour question yi yomb <laughs> mais dama leen di féliciter ci position bu ngeen am notamment par rapport à l'aide réew mi dañ ko bokk dañ ko war a transparent mu leer. yan critère moo tax ñu war a jox kii diw nii yan critère moo war a tax. ñu parler de l'aide à la presse. l'aide à la presse ak seen position. am na loo xam ne buñ la ko joxee comme nu wolof di wax man nag pulaar laa gënoon dégg bu ñu la yokkalee ci la euh, euh, kii complètement sûr. vous pouvez le ma bañu ma ku ma yekkal ci. ci ci ci ci xaj waaye duma ci lekk. waaw du ma ci lekk. ba ngeen bañee. ban ngeen la ngeen waroon bañ parce que xaalis bi xaalis Macky Sall. dëgg la xaalisu état du Sénégal la bu ñu koy joxee ci transparence lañ koy joxee mhm. donc kooku c' est un point important bi ma bëggoon merci deuxièmement di nuyu mbokk Sénégal yi partout où ils se trouvent surtout nag ñi nga xam ne ñu ngi wax nañu raxas loxo yi nañu mm, def gest bi amul ndox mhm. keroog waxuma sax waa parcelle bi nga xam ne unité neuf nga xam ne keroog rek ay camion sapeur pompier moo leen fa doon yóbbul ndox man maa gis film yi il y pas une semaine je parle de tous ces milliers de sénégalais war nañu xoolaat suñu pacte république bi ndax am ñoo ñoo xam ne dañu war a yellool ba seen ngiiru dund bu aéroport yi buñ ko déménagé ñu leen ci daggal ay cëral ay terrain ñoom cëral leen ay terrain Thiès cëral leen ay terrain ci àll bi cëral leen ay villa fan résidence cëral leen ay salaire yu duum ak yoo xam ne carburant waaw ñoom dara maanaam xoolaat suñum réew man franchement je n'ai aucun problème particulier contre Macky Sall ça a été mon ami il une profonde affection pour man vraiment man it j'avais une profonde affection pour moom bëggaloon ko pour que ëllëg buñ bu ñuy lim ñi nga xam ne ñoom ñoo transformé Afrique fu ñuy wax Sankara ñu tudd un mu mel ni Macky Sall gannaaw Cheikh Anta Diop raw nañu tudd un un Macky Sall il avait tout pour réussir ça et on voulait qu'il réussisse et on a donné on l'a accompagné pour ça def ci suñu koppor suñuy xalaat suñu doole jour bu may bu muy bu mu gagné ba ma ko njëkkee gis Radisson dama ko ne président li ma la waxoon sa kër jamono ji yegg si na fàtteel sa bopp fàtte lépp Sénégal defal na la lu lu ne nga gestu Sénégal defal ko sa kéem kàttan waaye tey parce que mun nañu ni du moom ak ay ñooñam rek lay lay toppatoo loolu du république ñu ngi célébrer suñu 60 ans indépendance fàtte nañu wax ci éco bi fàtte nañu wax ci leneen ak leneen français faabi éco bi pour la prochaine fois. On, le garde pour la prochaine fois. Ah, mais ni écho bi demee rek la ñuy gisee nii. comme mais on peut y aller très rapidement ci. écho bi ñu bàyyi la 24 avril suñu indépendance suñu parce que discuter nañu ak tubaab yi nee nañu waaw dinañ d'accord dinañ xool ñu dem. seeni assemblée nationale moo def benn loi. le 20 juin de 1960 ci la officiellement France ratifié may ñu indépendance may ñu indépendance mu nuroog France CFA bi fi bi fi dellu si tey France fële moom moo ratifié officiellement benn ministre parlement au niveau de de nos États n'a pris une décision quelconque concernant sa propre monnaie c'est pas la monnaie française du monnaie française sunu monnaie la. comme su nu mu ne woon suñu indépendance mais loolu beneen waxtaan la beneen bunt la dañ ci ñëwaat. mais très rapidement mën nga ñu wax ci éco bi parce que gis nañ ne que eh, a été acté. Eh, mais éco bi xam nga man je di combat global bi du rek éco indépendance la. Uh-huh. suñu indépendance moo des. éco bi dafa nekk benn facette rek waaye tey jii nii lan la fi Sénégal lan la fi France moomul presque Sénégal du anti français nag pro sénégalais la. ñooy ñooy Sénégal euh, France nous appuie mais Sonatel ñaata lañ ko jëndee woon ñoom 37 xaw ma 72 milliards en deux ans dividende deux ans bala ñuy commencé jël affaire bi jël nañu la moitié li ñu dugaloon en vingt ans jël nañu n fois moo tax tey jii ni te yemul foofu donc ñun bu ñuy wax monnaie dañ ko war a lëkkaloog indépendance d'abord indépendance économique indépendance politique comme Ghana ñoo ñu am seen indépendance réellement même Gambie gii moo ñu gën a indépendance par rapport à la a la Grande-Bretagne ñun bu bu amee incident France Charlie Hebdo suñu gaa yëpp daw mais trente mooragum président même bu defee discours dafa mel ni c'est le c'est le dernier point kañ la ñuy gëm suñu bopp ñu ngi leen di gërëm di balu àq sénégalais yëpp nag wax ji xaw na léegi-léegi passionné waaye boo buggee sëm réew euh, te gis ñoo xam ne comme médecins yi ñu ngi ci terrain bi di faj te mënuñu peut-être wax comme ni ñuy waxee parce que ils sont tenus par beaucoup d'obligations encore que gis les enseignants gis nos parent qui sont dans le monde rural saa yu rek ñu envoyé ma ay vidéo di ma wax ni gis nga ñun ce qu'on vit surtout kaw gi ñun nous sommes des privilégiés man je considère que je suis absolument un privilégié de la République Sénégal defal na ma lu ne moom ma jàngal mhm. moo ma faj dañ ma daan vacciner jox ma ay kaye mhm. su ma waajur naru ma woon dugal fayal école bu fekkonte ni kii boobu daara ba laay des mhm. donc bu ñëwee ba toll fii nii war nañ jéem dara pour delloo ko réew mi. loolu rek la mhm. loolu rek la. Mhm. japonais bi réewam dara la ko dee. Mhm. allemand bi. réewam jaral ko. il ñu gëm suñu bopp. Mm-hmm. gëm suñu bopp. d'accord très bien alors merci monsieur le ministre d'avoir répondu à notre invitation. Euh, merci débat bi amoon na euh, solo lool loo tax temps bi gaaw euh, di leen remercier chers téléspectateurs donc ñun dañuy marquer une euh, petite pause. comme niñ koy defee tey ñuy dalal El Hadj Doudou Kène Mbaye sëñ bi nuyu nañ la di la ziar bu baax a baax. maa ngi lay nuyu di leen wax asalaamaaleykum wa maa ngi leen di ziar bu baax man di kontaan ci ñëw beeg yëpp di baalu ak di baalu ak di ñaan yàlla yal nañu yàlla boole baal. amin yaa rabbi euh, ci sa wet noonu ñu ngi ci euh, dalal kii di euh, Cheikh Tidiane mbay sëñ bi ñu ngi lay nuyu. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. suñu nuyu dañ koy jël rek di dugal ko ci nuyoo Serigne Babacar ak Hadj Doudou Kend ndax ñooy suñu kilifa bu ñu nuyoo rek mel na ni ñu nuyu nañ ñëpp. <laughs> voilà donc nuy naa la maa ngi lay ziar. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ni kër gi de tëdde daal mooy mag jiitu rakk topp kon nag nuyoo yaa ngi noonu. <laughs> macha allah macha allah ci noonu tamit ma dem nuyu kii di euh, Khalifa Mbaye sëñ Khalifa Mbaye sëñ bi maa ngi lay nuyu. salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen baalu àq baal nañ leen yàlla nañ yàlla boole baal. yàlla defal nu tawfiq taysiir ak najaax yàlla aar nu suturaal nu barke yonent bi salaahu salaam barke sëñ Babacar si mi ñuy bëgg a def waxtaan ci moom macha euh, si sa wet euh, kii euh, ñuy wax oustaz Abdoul Aziz Doucouré oustaz nuyu nañ la Mhm. sa mbokk allah xam naa dina ñëwaat ak yow ci ci nuyoo bi euh, damay dem rek waxtaan bi tamit dinañ ci ànd ak kii di euh, imam Khalifa Mbaye imam ñu ngi lay ziar Khalifa Ndiaye <laughs> ñu ngi wa rahmatullahi Eh, yow mi ma jàkkaarloon ñu ngi lay nuyu eh, di la jox nuyoo bi ne na Aïcha nga jotal ko boroom kër gi ñu ngi koy nuyu muy Bougane Gueye Dany di nuyu àdduna yépp di nuyu mboolem ñi nga xamante ni ñu ngi jàkkaarloog ñun di ñu seetaan jël nuyoo yooyu yépp nag teg ko ci loxo kilifa gi fi toog jiite lépp ànd koog suñu wëllëre suñu xarit muy ab alxaaji Dudu kenn mbay mu yóbbul ñu ko ca xadra ba ñu ngi leen di wax salaamun min allahi aleykum wa rahmatuhu wa barakatuh macha allah donc li moo nekkoon euh, suñuy gan euh, ñu nar a ànd ak ñoom euh, ci waxtaan bu yaatu ci kii di sëñ Babacar Sy ci noonu aussi waxtaan bi dinañ ci ànd ak suñu papa Abdoulaye suñu papa Abdoulaye Mbaye Pekh papa nuyu nañ la. jërëjëf ne ne maa ngi am mbégte lool ak goo xam ne am na tàmbali waaye amul fu mu yem ngir dalal ñii di njabootu sëriñ Babacar plateau bi nag tey riis na nee na Serigne mooy senegal moo doon si jaaji Malick moo ko doon ca xam-xam ba ca ngor ga doy na rek si jaaji jóge na fi kan moo koy wutu Serigne Babacar tey këri diine yépp ak kër l'islam bi yëpp tey kenn du nelaw léegi maa ngi jot nuyoo ba waa bandañ fas kër alay sàmm nga tiloo waa kër sëñ Abdou Salaam loo ca Njéy ñu ngi may woo waa kër sëñ Mor Awa Ndiouga Sey ca Guy Mbay ñu ngi woo waa kër sëñ Alioune Ba ca Ngumba ak waa ngay jawaar ñoom Cheikh Cheikh sëpp ñu ngi may woo mën la xib ba sëriñ Moussa di ko ñaanal ak doomam ja député assemblée nationale Alioune Dia ak taalu beem ba tey daal ki ñu dalal muy réew mi mooy Sénégal moom la fàttali ñaar Xalifa dëgg ma ko doon roxoy njaayaari booy am jomi ngor am fit si jaaji Maalik waaye yor muñ ga nit yaa woon ñëw leen lu waay yor téyeen lu ma yor bokk ak yéen ba ñëpp ni mbay yaanu doy ñu takk appeleur yi ci oto yi mhm. ñu wax ko mbay yaanu doy ba mhm. ngoon saxaar ga romb fa yaat ma njaay jaar ca ñu ne mbay yaanu doy bàyyi ni saxaar ga wax na ko oto yi wax na ko kookoy Sëriñ Babacar mhm. kookoy Serigne Babacar wax nga ko euh, dañuy dellu rek ci euh, oustaz Abdoul Aziz Doucouré euh, comme ça sànq ñu ngi la doon nuyu mais micro moo doon def yëfu séréer ma tooñ sama mbokk séréer yi tuuti. waaw salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. ñoo ngi nuyu bépp jullit boo xamante ni rek yaa ngi ñuy dégg. waaye di ñaan rek ñal na yàlla def barke bi jaay Seydina Muhammad li ñu waxoon rek jël nuyoo bi sëmbërtal ko ci biir nuyoo kilifa yi e, ñu yóbbaale ñu géew ci barke Cheikh Seydi Aboubacar si mi ñu fas yéene waxtaane tey yàlla nañu yàlla taas ci barkeem ci barke Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxtaan bi dama ci e, ànd ak e, Cheikh Sarr Cheikh Sarr maa ngi lay ziar maa ngi lay ziara soxna Nene Aïcha di wax alhamdulilah macha allah di nuyu téléspectateur u Sen nga xam ni waxtu nekk ñu ngi ñuy suivre moo xam biir réew ak biti réew rawatina bitim réew nga xam ne guddi na fa trop waaye teewul ñu ngi toog di xaar grand plateau du GP. di nuyu nag kilifa yi nga xam ni moom la ñu bokkal plateau bi mu nekk mbég ak bànneex goo xam ni dañ koy séddoog ñoom waaye séddoo kook téléspectateurs yi salaamualeykum. waaleykum salaam Mouhamed Mbaye maa ngi lay ziar. noo ko daan waxee. sangu sang yi. saaxibi naasiril xaq bil xaqi talaatil xaqi bil min alxaqi ila alxaqi xaqu xaqaa'iqin wal xaqu xaqahu wala xaqa yaxiqu bi xaqihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabia al huda bi hëddiin ila yawmi ddiin nee na maa ngi lay nuyu di la ziyaar di kontaan lool ci plateau tey bi olof day wax nit lu mu ragal ragal lëndëm buy dox guddi ba dégg ku tudd turu dëkkam xelam dina dal mu geesu mhm. tabaarakallahu tey nag ma daa di dalal sama waa kër kër Cheikh Seydil Hadji Malick Sy radiyallahu taala anhu waaye dalal gi itam ci kaw dalal gi maam lu ma neex lool ndax sama ay doomu baay ñiitoog toog ñëpp man ak ñoom bokk baay tabaarakallaahu nuyu sunu taaw alxaaji xalifa mbay mii toog nuyu ko ziar ko nuyu alxaaji duudu kenn mbay nuyu oustaz xalifa ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax a baax nuyu oustaz Dukure ba Abdou ñu ngi lay ziar nuyu Abdou alxaaji Mansour sunu mag nuyu sama seexu bopp Cheikh Sarr nuyu bu baax sama papa li may wax saa su nekk ni leen ginnaaw yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak sama ñaari wayjur ak Serigne Mansour Sy Jamil mi ma def ni ma mel ku dul ñoom li sama papa Abdoulaye Mbaye peex def ci man nit mënu ko tabaarakallaahu insha allah waaye émission bi dama ko may tey ñaar xam nga man dama may émission mooy euh, Abdou Aziz Ndiaye uh-huh. may naa ko émission bi tey promoteur ñaanal ko yàlla na yàlla yokk teraangam ak ki nga xam ne tey moom moo ma solo lii di Pape Matar Lo moom it may naa ko jërëjëf nee ne <laughs> dinañ ci ñëwaat a nee ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi lay euh, nuyu ñu ngi nuyu ñi nekk ci palaatu bi yëpp euh, duma leen lim damay wax rek jotaayu lislaam hmm. ndax ku am jotaay bu mel nii toog ak euh, oustaz Abdou Aziz Zoukré hmm. toog ak Pape mbay Mbaye doy na sëkk hmm. nga am ci nag suñu mag jëlee di dudu kenn mbay sama wóllare sama xarit Cheikh Ahmed Tidiane Mbaye nga xamante ni bi seetaani naa gàmmoom ba waalo tubaarkàlla euh, Pape Malick moom kenn du ko présenté moo tax ma ni plateau bi tey dafay ala daw me ndax it nag ay journaliste lañu euh, di fréquenté ay génération yu bëri ku am Pape Malick Mbaye ci sa plateau jàpp nga ni di nga bégal euh, génération ñu ndaw ñi ndax bëgg nañu ko lool yal na ci fel gi sax mhm. te it nag moomu leen waaye la muy def moo neex moo am solo ndax xadara gi mu tënku yar doonga la ñu kon yéen ñi seetaan seen TV doo leen juum incha allah tey di ngeen di ngeen gis loo leen mus de gis ndax ki ñuy waxtaanee mooy ki nga xam ni toujours dafay méngoo ak jamonoom seen cheikh akane woon abuna abou bakrin wa in kaana fi lxabri radina bihi cheikhan ila axiri dahri ñuy nuyu bu baax itam euh, imam xalifa Ndiaye suñu mag la suñu xarit la suñu soppe la oustaz Mohamed Mbaye doon naa wax du lim sax waaye mënut a ñàkk bu ko defee nee na ma bàyyi la nga continuer ba ci kanam incha allah. Euh, voilà donc euh, noonu Haj Mansour euh, Pape dañuy commencer rek mais laata ñuy dugg ci waxtaan bi dañuy bàyyi kii di suñu Pape Doudou kenn ak i rakkam mu baaxee ñu dara donc ñu déglu ko sëñ bi ñu ngi lay déglu. waaw dañu ni comme dañoo nekk ci koor gi ñu barkeeloo rek ubbee barkeelu bi ñu defoon ci koor gi. réew mi ndokkle ci weeru koor gi shahru ramadan moo bari ngeeneel réew mi ci weeru koor gi réew mi ndokkule ci weeru koor gi shahru ramadan moo bari ngeeneel réew mi ndokkule ci ma përi nga neel njot ci saafara ñu ëmb weer wi moo bari nga neel réew mi ndokkule ci weeru kër gi shahru ramadan moo bari nga te sax alquran ci weeru kor gi ci la wàcce woon ci bépp nuzul réew mi ndokk le ci weeru kor gi chehru ramadan moo bëri ngëneel noppal ci sa biir sellal ci sa ruux am ci ay ngëneel yàlla mooy jaliil réew mi ndokkule ci weeru kër gi shahru ramadan moo bëri ngëneel na sa xol bi wóor na sa cër yi wóor nga am ci ngëneel yokk ci dalil réew mi ndokkule ci weeru kor gi shahru ramadan moo bari ngëneel baril na fi la shahru ramadan tàmmal ko sa ruux bi lay du niil réew mi ndokk la ci weeru koor shahru ramadan moo bari nga neel jàngal alquran shahru ramadan nga am ci ay leer yokku ci dalil réew mi ndokk la ci weeru kër gi shahru ramadan moo bëri ngëneel laylatul qadre moo gën junni weer ci weer wi lan nekk gisal yi nga neel réew mi ndokkule ci weeru kër gi shahru ramadan moo bari nga neel laylatul qadre moo gën junni weer ci weer wi la nekk gisal yi nga neel réew mi ndokkule ci weeru kër gi ramadan gindel i koor nga leel ci miskin nga seet ci bakkaar yokku ci ngëneel réew mi ci weeru koor gi lowom lewom moom le bàyyi ko gannaaw lu néew let néew le bàyyi ko gannaaw bàyyi ko gannaaw lowam lewam le bàyyi ko gannaaw xool ci sa wut ci ay ngeneel lowam lewam le bàyyi ko gannaaw le le néew le lu tur wi rëy rëy bés ba dina ñëw nga wéet ak bàmmeel doom le woon le lu tur wi rëy rëy bés ba dina ñëw nga wéet ak bàmmeel doom le woom le bàyyi ko gannaaw loo fa jiitalul du doon sallal dal tay fàttaliku leen lëndëmaa yu bàmmeel doom le woon le bàyyi ko gannaaw lu néew le néew le bàyyi ko gannaaw génneel azaka sellal sa alal te xam ni yàlla moo lay jox alal doom le woon le bàyyi ko gannaaw lu néew le néew le bàyyi ko gannaaw l'islam dong nga may sañ-sañ ci alal miskin ak faqiir ñu am ci xaliil wom le wom le bàyyi ko gannaaw lo néew le néew le bàyyi ko gannaaw aw fan ak ngeen koy maye yàlla mooy jëlil roble woom le bàyyi ko gannaaw lu néew le néew le bàyyi ko gannaaw wërsëg ak xam-xam aw fan ak ngeenel yàlla koy maye yàlla mooy jëlil bàyyi ko Lakoti weye nu ko gannaaw leen néew leen néew leen bàyyi ginnaaw loom le woom ngëneel loom le woom le bàyyi ko gannaaw lu néew le liggéey laaxira am ci ay tono ëllëg doon jamil woom le le bàyyi le néew le bàyyi ko gannaaw seen mbir du le woom le bàyyi ko gannaaw lu néew le néew woon ji doole yee kon seen mbir du niil loom le woom le bàyyi ko gannaaw lo le néew le bàyyi ko gannaaw nan moytu kañaan bot di sam morom ak lor dëkkandoo nan mooy ci Rasuul om le om le bàyyi ko gannaaw lool néew le néew le bàyyi ko gannaaw nan mooy tuuka ñaan bot di sa morom ak lor dëkkandoo nan roy ci Rasuul om le om le bàyyi ko gannaaw lool néew le néew le bàyyi ko gannaaw ndimbal ci taqwa ak mbaax ak alal tey moytu bàkkaar ak moytu nooneel feebaru kañaan baaxul ci jullit saa la dalee yàlla ngay bëreel lu ëmle le néew le bàyyi ko gannaaw kañaan dafay lakk bépp jëf ju baax di tal sa ngëneel di yokk nooneel woom le woom le bàyyi ko gannaaw lu néew le néew le bàyyi ko gannaaw kon nag noo ñaan yàlla mi kamal mu nu salaam fii ci Sénégal woom le woom ñaan yàlla mi mu may nu salaam fii ci Sénégal wom le wom le bàyyi ko salaam daa iman wi am na sax ci Rasuul fii ci Sénégal wom le wom le le néew le bàyyi ko gannaaw Euh, Pape Mouhamed euh, liñ fi jot indi am na solo lool macha allah neex na torop euh, ci noonu lañuy ñuy duggee ci wax taan kàddu gi rek kii di wa ñu ngi nuyu bokk yi seetaan seen TV yépp di nuyu directeur bi El bu Bougane di nuyu ci plateau bi yépp di ñaanal sama njaboot yi ma àndal yàlla aar leen sutural leen. amiin amiin di ñaan itam ci barke guddi gi barke bis bi di ajjuma ju ci weeru koor kii nuy bëgg a waxtaane sëñ Babacar Sy radiallahu taala anhu ci rus gi ko yàlla rus yàlla na ci yàlla dëgg def jàmm ci àddina bi àddina bi di jàng yàlla na ko yëg li ma dégg sëñ Cheikh Tidiane Sy radiyallahu taala wax ko ci moom mhm. wala qad aliftu abal habibi wa ilma ataahu nazila mhm. wa aliftuhu wassalihatu غناؤه ورأيته يشفي بذاك عليلا mu ni miin naa bàyyu Sëriñ Habib mu ni taalibe bu ñëw ci moom loo bëgg jàng ci xam-xam ak loo soxla soo ñëwee di nga ko fa fekk ba mu doy sëkk nee na ma gis ko bi ñépp dee wuti alal jàpp ni alal mooy richesse nee na mu wut yiw mu ni ma teg sama bëtit mu faj ku feebar ci loolu loolu nag gëm naa ko ndax gis naa sama baay alaaji mbay dondo rahmatullah alay benn waay feebar ñëw docteur yi kondam condamné ko ni ko ñaari weer la dese nga faatu mu ñëw maa ngi toog ndax duma woor ba ay fan des ci walla benn bis may fen rawatina sama turandoo bi mba baay tudde waa ji ñëw ni ko alaaji mbay dondo docteur yi nee nañu ñaari weera ma dese ma faatu mu ni jox ma kaas bi ñu jox ko kaasu ndox bi mu ni walaqad aliftu abal habibi wa ilmuhu yakfi l murida isa ataahu nazila wa aliftuhu wa salihaatu ghinaauhu wa raaytuhu yashfi bi zaaka alila xalifa fajal kii xalifa fajal kii xalifa fajal kii ëf ko ci ndox ni ko naanal mu naan mu ni ko demal waa ji dem bi muy dellu siwaat ci sama baay mu fekk ma fa ni ko dama dem rendez bi ma docteur yi joxoon ñu xool ma ni jàngoro ji jeex na ci man tàkk ni ma wax nu nag loo jël macha allah mu ni leen jëlu jëluma dara ñu ni ko ñun rajo yi ñu amoon ak analyse yi jàngoro jàngi woon ci sa biir deret ba jaxasoo na ci léegi nag jeex na takk wax nu loo jël mu ni leen ah alaaji mbay dondo de jox na ma lu ma naan loolee nag nu ko gëm tey ñaan ci barke sëñ Babacar si moomu radiyallahu taala feebar bii ci réew mi feebar bi ci àddina bi yal na ko yàlla jeexal takk sànni ko ci géeju adam tewu ko sëñ Babacar Si nag radiyallaahu taala anhu suñu ci dee waxtaan dañuy wax rekk li ñu xam mhm. bàyyi yeneen jamono ndax géej képp ku ko bëgg a jeexal dangay sonn mhm. te bi ko sama bàyyi deeway dañi xalifaa di géej duus yaa ngi baaw li faa di géej duus yaa ngi baaw doo seen morom wane ngay meloom jëfe ngay solom doo seen morom wane ngay meloom jëfe ngay solom doo seen morom lislaam bi yaay ki ko yor tariqa bi yaa ko yor duniyaak yëngoom jëfewoo meloom doo seet moroom bayaanu doy ah. bayaanu doy Seydi Abubakar Bakar ek daraam yaanu day doo seen moroom mbay lislaam bi yaay ko yor tariixa bi yaa ko yor dunyaak yëngoom jafewoo meloom doo seen moroom waay mboolem ku baax jëf si def leen lii ci sunu maam mboolem ku baax jëf si ak rek dara maan mboolem ku baax jëf si na bay mbay du seen aram la kumba ca mboolem ku baax jëf si na bay mbay waawaat di wele ma ca gaay ku baax wax jëf sil na mbay du seen morom dunu waar nde Makka Faas Madina Joof waay Makka ak Faas fa Cheikh Tidiane Chérif jaaxaan ndigal ya ñoom nga yor doo waay ñaan leen ndigal l'islam tariix xabi am na yoon ku ko mooy teyees lu siwoo ci mbay da tooñ waay mbay seedi tooñ mooy bay ba doon duri mooy liggéey bay mbay doon doon ne lante kon ku nu fii am pay ni moom nde jëf ci mbay sa tey du niil kaay leen jëf nde jëf ci mbay yàlla yonen dana bég ci yow ak Cheikh ak Maodo ñoo ko doyloo te moo ko jëf ka ca jiitu mooy soppeem bu baax ba ñu naan sëriñ Mor Mbay ca kër Coon Saar tool bi jëf Maam Mor Mbay ca kër Coon Saar tool bi jëf tofalal ci moom Baay Aatu Njaay ma ca njàndaxum Samba ak Jabel Ibrahima ngi teew di jëf Baay Njàmme ñang ma ca Matar Ndaak teew na jëf waay Mbay see tool bay leen ba dori mooy li gën bu dammee sax ci waar dori baay sanga ngaa xitukal bu ko mbaam sëfee def ñay morom daje bay nuroog gaynde ak jana doo seen morom waay nan yeewu xam ni bur laahu mooy seen ay mbiram jébbal ko ruugu ko neex ni leen bay dooma ruugaay xutbul wara xawsul ula def leen nii ci suñu maam xutbul wara xawsul ula dunu maanu gëm say mbir te yaakaar say ngeneel doo seen morom kii mooy docteur ba baatin yàlla fajal nu aajoy docteur baatin yàlla daqal nu tiise docteur baatin waaw ci barke xalifa docteur baatin ku fa dem ba ñaan ku fa dem ziyaar dootoo fa géej ku fa ba dey doo too fa géej doo seen moro Cheikh Tidiane Sine walaqad aliftu abal habibi wa ilmu wo yakfi al murida ida ataahu nasila wa aliftu wo wa salihatu ورأيته يشفي بذاك عليل فالعصر عصرك إن أمرت فلا يرى إلا مطيعا بكرة وأسيلا سو ديغلي ني دفكو بكرة وأسيلا سو تري ني بايي بكرة وأسيلا fa dem ba ñaan dootoo fa géej mooy central dynamo bi mooy central dynamo bi mbaya ko yor ah. mooy central dynamo bi mbaya ko yor mbaya lampam sunaago di fay seen morom sunu daayire yee mooy mandarga quartier ku tar defee bu nu manki ni dem siyaare ci mbay borom yàlla nee na Mamadou Abdalaay seen morom nabi nee na Cheikh Tidiane doo seen morom Cheikh nee na Maodo yaa ma doy. doo seen morom Maodo nee na Khalifa yaa ma doy. doo seen morom loolu moo di lan. wali zaaka qaala lahul imaamu muakkidan udita sirra qiyaadatin mahmud وورثت مني ما يعود مسجلا لرواية ودراية تسجيلا وورثت فوق كل روح سيادة أبعد تنحل حاتما دليلا مودنين خليفة يا مدوي مام عبدنين منصور يا مدوي شيخ تجان سي مكتوم يا مدوي سرين عبد العزيز يا مدوي sëñ Ba Bakari Si Mansour yaa nu doy kon nag jëfandu leen ci jëfandu raw ci mbay jëfandu leen ci mbay jëfandu raw ci mbay xut bu baa ngi nii xalifa Babacar xawsu baa ngi nii xalifa Babacar fardu jaamio xalifa Babacar koo moo di kan xalifa Babacar jëfandu raw ci mbay jëfandu raw ci mbay jëfandu leen ci mbay jëfandu raw ci mbay du raw ci mbay jëfandu raw ci mbay sunu baay Abdou ne jëfandu raw ci mbay xalifa Babacar Si fandu raw ci mbay yamu dénkaane woon jëfandu raw ci di diine ji ci mbay ak tariqa bi fonk métier yi jëfandu raw ci fonk daayira dem siyaare mbay jëfandu waay nanu siyaare mbay siyaari dabbaax siyaari mbay jëfandu raw ci e waay nanu siyaari mbay waay nanu ziyaari mbay ziyaari habib ziyaari mbay jëfandu raw waay nanu ziyaari mbay ziyaari jamil ziyaari mbay jëfandu raw ca waay nanu ziyaari mbay ziyaari mansoor ziyaari mbay jëfandu raw gaye nanu ziyaari mbay ziyaari maktoum ziyaari mbay jëfandu raw ca waay nanu ziyaari mbay ziyaari amin ziyaari mbay jëfandu raw ci mbay bu baa ngeen ne xawsu be di Cheikh Seydi Aboubacar Bakarek Daramal yaa nu doy doo moro barakallahu fi masha Allah en tout cas dafa am lu ndaw rek lu ma bëgg fàttali olof Njaay bu léeboo nii bés boo gis bés lay leb mbaa fay bés mhm. moom way juróom di xalaaj mbay donde chaque année ma gàmmu gàmmu kër Momar Sarr ba làqu dem aljana mhm. moom mi mu koy gàmmu ren ma waajal gàmmu gi ñëw lu yëru bu rafet dem gàmmu ji di nelaw ba foofu biddanti <laughs> man daal kii bee ma yee eh, jee ma yee ma yow sama papa ni dem nga tànt ma ne ko maa ngi doog yow sama papa di ma ree waaye tey lii fay na ko. macha allah kon macha allah. <laughs> damaa dem ba seetaani gàmmu dama ko waxtaan ba bët set. macha allah yàlla yàlla fay naan maam Mor Mbaye ca kër Thion Sarr di jiital tool bi jëf. voilà dégg Babacar bi mu dugg si. Eh. dafa am benn sëtu sëñ kër bu ma ni. Ah. bul wax sama tur. Mm-hmm. waaye boo demee ñaan naa la nga woyal ma mbayaanu doy mm-hmm. te wallahi waxtaan ñu ci maag yow te gis nga fi nga dugg moom lañ jëkk a ubbee macha allah ñu bàyyi ko ñu ñaanal ma alxaaji duudu mu ibbee weeru koor parce que man ak moom te yàlla seede na ni waxaguma la dama ko ñaan ni ko <laughs> parce que moom papaam uh-huh. dama ko doon déglu ndeysaan wooy mu xam naa moo tax bi mu bi uh-huh. man la dama déel ma ko na ubbee weeru koor. billaahi macha allah foofu mu ubbee ko sant yàlla. <laughs> macha allah ñu bàyyi uh, uh-huh. xamal leen ni sama turandoo. Uh-huh. bind na ci juróom-ñaari way. yoo xam ni benn bu nekk shahru Ramadan. moom la jël par xaraf. xaraf bu ne mu def ci way. ba weer wi di jeex mu jooyee ko shahru ramadan macha allah su amee tuuti temps sax mën naa am ma jël boobu ñu barkeeloo ko ci jooye ko weeru koor bi ma wax ni sama turandoo bi ko sama baay dee way da koo melal ci géej mm-hmm. xalifa di géej duus yaa ngi baaw mm-hmm. doo seen moroom géej ni mu yaatoo te géej duus yooyu suñ ci dee melal nitu yàlla mooy may yi mu am mm. ni géej di def lay def maa ngi dégg sax sama baay Pape Maodo Sy mm. bu maam Alxaaji Abdul Aziz Dabba di ci tagg magam euh, Seyid Cheikh Ahmed Tijani Sy Eh, radiallahu anhu bi mu faatoo muy wax lillahi min bahrin talaatama mawjuhu fi kulli fanni yaftaxul aqfaala mu ni maa ngi jooy géej gi nga xam ni ni duusu xam-xam day jóg ne maay Cheikh Ahmed Tidiane si nee na beneen duus mbéj ko mu daanu ni ko du mën a di ko tàccu beneen mbéj ni du yow gis nga duus boo géeju xam-xam googu mu doon wax muy Cheikh Ahmed Tidiane Sy radiyallaahu taalaa anhu mhm. mu ngi juddoo ci géej gu mag kii muy sëñ Babacar Sy sëñ Mansour Sy borom daara ji bu gàggee kenn du ko gàgganti ci foofu la jóge sëñ mustafa mi demul dikkul léppam di dox ci géej googu mhm. sëñ Abdoul Aziz mi taawu woon li mu taawu ci géej googu kon géej googu buñ ko bëggee waxtaane te wane ngay meloom jëfe ngay soloom te géej am na koo xam ni jàpp na ni jën rekk dañ fay nopp la cay la cay amee uh-huh. mooy barke bi waaye am na keneen ku am yitte nag li mu jàngaloon moom sama turadoo jàngal ko woy juram ci teggin te mooy géej wurus nga ca biir te wurus wow boo xuusee doo ko am Maodo bi muy jëkk a taalif xilaas mu nga jëkkoon a bind yaa xaaidal bahri lil asdaafi indiya asdaafun biha durratun ala min al jalami <laughs> way yonent bi salaa sallam way wu ko kenn mosula way pare jox ko sëñ Babacar Si ni ko xool ko te lool ci war a defarit nga defar ko mu xool ko ba pare dal di koy dal di def benn synthèse ci yaman ata bi xilaasin faiqin durar yaman ata bi xilaasin faiqin duraran qad jiita ma yujibus sudan wal gurara yaman ata bi xilaasin faiqin duraran قد جئت ما يجيب سدى والغرر يا من أتى بخلاص فايق دررا قد جئت ما يعجب سدان والغرارا يا من أتى بخلاص فايق الرذان قد جئت ما يعجب السودان والغرارا أكملت أكملت أكملت الجميع وقد أنكحت من عمل علما كفانتشرا يا من أتى بخلاص فايق دررا قد جئت ما يعجب السودان سودان وال يا من أتى بخلاس فايق دررا أي باي قد جئت ما يعجب السودان والخرراء أي باي زينت مزنا على خير البرية من أي باي قد أنزل الله في أمدحي السورة أي باي yaa jël jàng ko xam-xam may ko waxe mbaanew jëfe am anta atqanta akmaltal jamia waq yow baay ankaxta min amalin ilman kafanta shara ay baay sa géeju xam-xam gi tefes gi ci la gaay yam wa baxru ilmika yakfi nnaasa xiin woo yow baay si yan fi qaribun baydun shamara ay baay hada kitabun nafisun qad jamacta lana yow baay fiihi l ahaditha wal ayati wasiyara nga ni baay wa kullu fannin lisaanul xaali qaala lakum yow baay alqil asa talqa min taysiri ma asura ay baay wa kullu fanin lisaanul xaal qaala lakum yow baay alqil asa talqa min taysiri ma asura ay baay wa bil xilaasi wa bil mamduuxi aati lanal amin baay ikhlaasa ya rabbi wa tawfiqa wal yusara amin baay wa bil xilaasi wa bil mamduuxi aati lanal amin baay ikhlaasa ya rabbi wa tawfiqa wal yusara amin baay xilaas boobu biko biko mofe radiyallahu taala xilaas boobu sax ñaar am na ci dama indi bii sa bii sama turandoo def waaye sama ba def na ci bi ko sëñ Babacar jàngee ba mu jeex mu def ci benn synthèse def ko xasiida waaye mu ni ko góor gi nag dama am jaaxle dafa bari teggin nag moom sama turandoo parce que nit ki gis nga sooy jàngal sa baay danga ko koy jàngale ci teggin waaye dooni sa baay maa la raw ci bay na xaw say ni sax euh, yonent yàlla ibrahim alayhi salaam bi mu gis baayam di jàmmu xërëm te mu xam ni baay bee yett xërëm ji utal ko sikki mu der naka la koy wëlbatikoo di ko jaamu mu ni ko bàyyi daal man dama yaakaar di yàlla day kawe kon tee ñoo seet yàlla ju kawe bidiw bi génn mu ni ko bàyyi bii kawe na de te leer na teñ koo jàpp bidiw ba suux mu ni ko bàyyi luy suux du yàlla de weer wi mu ni ko bàyyi nañ jàpp bii moo gën a mag weer wi suux mu ni ko ah, bàyyi luy suux du yàlla de uh-huh. jant bi génn mu ni ko o oh, bàyyi waa jànge ne nag daj dëpp gaangee ni ko ay mbay peex di waxee daj dëpp gaanga ne moo gën a leer jant bi so mu ni ko ah, bàyyi nañu seet ki nekk ci gannaaw lii uh-huh. di leen yabal bu seen mission jeexee ñu dem te kooku mooy fatara samawaati wal ard moo bind asamaan ak suuf moo ta suma turandoo bi mu bëggee delloo si Cheikh Al Hadj Malick radiyallahu ju mag jooju mu ne ko bàyyi damaa am jaaxle mu ne ko waaw mu ne ko danga ni yaa xaaid al bahri ah. yow mii xuus géej ba pare ni lil asdaafi wurus ngay wuti te wurus bàyyi xuus du ko maye de Mm. nuur a koy maye leer mu ni ko doom li taxoon ma jox la ko mu ni ko xaaidal baxri ak xaaisal baxri ñoo bokk wësnu soo ma joxee ndigal ma soppi ko mu ne ko doom jox naa la ndigal يا غائس البحر للأسداف عندي أسداف بها درة على من الجلال على نبي وعلى أجمعين سلام ربنا دائما عام خليفة بسمامنا محمد نور عبد الله شيبة هاشم وعبد منافي مقسيه على نبي وآله أجمعين سلام ربنا دائما عام يا رسول الله ابن كلاب وقل في انتساء بمعاتك تنقي لكن دون أم وهبه على نبي والي أجمعين سلام ربنا دائما عام يا رسول الله يا كلاب مرة كعب واللوي وغالب وفهر ومالك ندر الفرادين على نبي وعليه أجمعين سلام ربنا دائما عام سيد الجميل سمامنا كنانة وخزيمات ومدركة إلياس مع مدير الحمراء سره على نبي وعليه أجمعين سلاما sëriñ Baba samaam nee na addid nizaara ma adan man yi jaayisu adnaanan fata zibu qaad jaamina loolawe géej googu nag gu nag moom laa wax ni suñ ko bëggee waxtaane te wurus waa nga ca biir yeneen na nga ca biir xajul ci génn guddi waaye sëñ Babacar Si radiyallaahu lan la lan di nit la ah? ma wax la ni la yàlla bi muy bind bind na lu nekk malaaka yi la jëkk bind bind leen ci jawhar séddale leen ay xeet ñii di ay muqarrabuuna ñii di ay ruuxaaniyuun mu bind jinne yi bind leen ci safara am ci ci jinne yi ñu am capacité di liggéey comme malaaka am na ci kuñ tudde woon azazil bi ko yàlla dégradé la tudd iblis nekkoon na sayidul kurubiyin mm. ñee du lekk du naan di jaamu yàlla na neex yàlla waaye jinne yi ñoom dañoo séddalikoo ñii gëm nañu ñii gëmuñu waaye ñi gëm topp nañ yàlla ñi gëmul féttéerlu nañu waaye ñoom ñëpp amoon nañu capacité di dem di déglu ji li yàlla di jox malaaka yi comme ay directive soo demee ci alquran alquran inna kunna naqudu minha maqaida lissamai di déglu yàlla xëy ni day bindaat ku ko wuutu ci kaw suuf te ban la koy binde muy nit te moom la mujjee bind nit kooku nag bi ko yàlla dee bind la mu soxla ci moom nit mooy na déggoog moom moo tax soo demee sëñ Cheikh bi muy tagg turandoom bii sëñ Babacar si radiyallahu wuutu daf ko tagg ci siyamun tuxu jawharal insaani mhm. siyamun mooy jikko yoo xam ni caq lay doon di ay per yoo xam ni benn rekk boo ko ci amee ñu naw la mhm. nga boole caq boobu ba pare wutal ko diggal loolu chimu tuhaqiqu jawharal insaani mhm. gis nga sëñ Babacar sama turandoo mhm. fi mu gane àddina ba bis bi muy dugg bàmmeel mhm. le 25 mars 1957 yàlla mosu koo mere. macha allah allahu akbar dinañ ci dellu si dinañ ci dellu si. am na solo ah. am na solo loolu xaalis. wax dëgg gi bu sax dafay daal di neex. waaye mooy li ñuy wax lu ñëpp bokk. ñëpp bokk euh, mu ngi nii toog imaam Khalifa Ndiaye mu ngi nii toog sawet euh, te itam xam naa ni seetaan di ñu ay message bu ñu bàyyi woon ñoom bàyyi dudu dong daanaka ñu def ñu def ñu def gàmmu gi. dañuy mhm. euh, daal di dañuy daal di dalal Abdoul Aziz moom itam mu daal di dugg si. Euh, sof ci li nga wax balaa kàddu gi dellu soit ci yow ñu daal di def benn tour incha allah continuer gàmmu gi. kon mais mais euh, laata loolu Haj Mansour. Uh-huh. may may rek ma nuyu sa turandoo uh-huh. Haj Mansour tamit euh, mu ngi en ah, direct topp waxtaan bi di ñu di ñu di ñu seetaan donc ñu ngi koy nuyu bu baax suñu ah. papa jooju papa Haj Mansour Mbaye ñu ngi lay nuyu di la ziar.

ci waxtaan wi nu jagleel sama baay si Aboubacar si xalifa bu tedd ba radiallahu taala anhu di nuyu bu baax Sidi Boubacar ibnu Alaaji Mansour sama doomu turandoo ak di ko ziar ak di nuyu rakkam ji xaritam bi soppeem bi porte parole am bi Papa Malick ibnu Seydi Boubacar ak di nuyu ki xam ni moo topp ci moom di mbokkam xaritam soppeem moom itam di kan di Maodo si Ibn Alhaji Abdoul di nuyu sang ba ca Touba Mamara Mbàkke boole ko ak ki ni waxtaan muy kan muy sëñ Muntaxa Ibn sëñ Bachir Ibn Xaadim Rasul di nuyu ki xam ni moo toogal tey Cheikh Omar Foutiyou ca place ba di Thierno ba Tall di nuyu ki xam ni moo toogal baayam ca kenn du ko fàtte muy Thierno Madani baayam bu baax ba ñëpp xam ko ak di nuyu nag ki xam ni nag télévision bii bu tàkkee moom la muy kan muy sama doom di sama xarit di sama soppe defal ma lu xam ni l'histoire du ko fàtte mukk studio Alhaji Mansour Mbaye koo kana muy Bougane dëgg la parmi les quatorze millions sénégalais mu ne dama ci tànn un communicateur traditionnel tudde ko premier ministre ñëw présider si ko jóge ca waaw màkki ni ko boo demee ca studio boobu waxal ba Hadj Mansour ni ko am naa mbégte tey am naa contentement ci studio bii nu ko tuddee waaye buggaan ndax danaa ko fàtte mënuma ko fàtte déedéet ki xam ni ca dëgg-dëgg moom itam sama xarit sama soppe sama jarbaat ki xam ni suma demee Touba moo may jiital may ziar waa kër Xaadimu Rasul Abdoulaye Mbaye Peex jërëjëf Mbaye ak xalifa moomu toog xam ni bayam sama baay sama xarit léppam léppam Sidi Boubacar la grand intellectuel bàyyi lépp ni la sama baay nekkoon moom laay defi nu nu ko kan mu ne alxaaji dut kenn di woy ca kanam Cheikh Tidiane si El Maktoum di woy ci magam ja xaritam ba ki xam ne ma ngi ci xol yi ca du ci jóg mukk borom daara di nuyu sama xarit sama soppe Seydi Abdou Si Al Amin moonu boole alxaaji Ale Ndiaye baayam fukki garaat la daan fukki nag fukki xar juróomi gëléem <laughs> jox ko Sidi Boubacar macha allah mu tàllal loxoom baayam mu ni ko incha allah lii dootul dakk day yokk rek nekk Aale Ndiaye taalibi xalifa dana jur doom ju di wax Abdoul Aziz Al Amin moom itam muy indi lu mat <laughs> ñaari téeméeri nag wala juróomi téeméeri nag ak i gëléem indi ko jébbal ko turandoom ba xaritam ba soppeem Aziz Al Amin mu jóge fi Seydi Abdou Aziz jóge fi mu koy jox ay doomam ak di dem ca xalifa bu tedd ba Sidi Boubacar di ko jox ak Maodo si Ibnu Alhaji Abdoul Aziz lu kooku nag seen baay seen maam moo liggéey loolu Ablaye Mbaye Pekh maa ngi nuyu jigéen ju xam ne wallahi góor mënu ko ku ñuy wax seeni bu dukkure sëñ Babacar Si radiallahu taala anhu dëgg la bu gàmmu jotee lu muy def rey ay nag yu bari ay mbara ca mbedd ma ak sa jigéen ba sa xarit ba sa soppe ba sa sa surtout sëñ ma Samba Diop ma xam ni ca dëgg-dëgg lépp ab Xaadimu Rasuul Abdoulaye Mbaye Pekh maa ngi waxtaane nag ku xam ni dama ko xam dëgg la wallaay xale laa waaye xam naa ko waa dëgg la dund nga ak moom mi ngi jël xilaafa Cheikh Seydi El Hadji Malick à l'âge de 37 ans lu xew 1922 hmm. rakkam ja xaritam ba soppem ba kanu daana wax alaaji maali googu may di ko way bàyyi Mansuur dar ko ak kan ak alaaji abdi ak kan alaaji abib xam naa la ko guña fay waxoon Sidi Boubacar ni ko xaw ma loolu la gën waaye te dëgg-dëgg kenn gën lewula ay rak Sidi Boubacar xalifa bu tedd ba radiallahu taala anhu xam naa la ko waaj a waxoon ni ko yaadu ci cheikh ni tekk dal boroomu mbóot du dox di wax aw ñay du tëb di na fel cey kay Ablaye Mbaye Peex ki ni waxtaane tey hmm. moo formé daayira en 1927 booba daayira kenn xamu ko Ablaye Mbaye Peex ki ñuy waxtaane tey mooy ki xam ni masul faat juma masul faat wasifa juma masul hmm. Ablaye Mbaye Pekh ki di waxtaane tey moom la sëñ Assane Ndoye nii ah, booba mooy imaamu Cëriñ Ibrahima Diop nekk fi Mbour Diagne nekk fi Ali Alaaji Aliya Jeen nekk fi mun leen mënatuma jiite Sidi Aboubacar seen jumaa ngoog ndax boobu sëñ Babacar Cëriñ lay jullee ñu hmm. ko ku la doy doy dunu léegi na Sidi Aboubacar di julli xalifa bu tedd boobu radiallahu taala anhu Ablaye Mbaye Peex hmm. mujj voyage am Ndakaaru xam nga lu xew ndeysaan mënul wàcc mënul wàcc saxaar gi wagon spécial la du ko defal waaye lu xew mooy caaroy <laughs> caaroy wakaam yoof ngor ndakaaru ñëpp dajaloo ci gaar bi kenn xam lan la nu ni nan fab oto bi yóbbu ko ba ca wagon wa Sidi Boubacar soog a wàcc ànd ak Amadou Mbaye Maodo sama looy dégg allah allah allah allah ba mu wàcc booba rajo bareegul nii Sidi Boubacar si xalifa bu tedd ba taala anhu <laughs> la ko waajin woon bokkoo ci loolu mooy dëgg ana lu xew lu xew Ablaye Mbaye Peex hmm. wax naa leen la Sidi dafa demoon Tëngéej fekki ku wax Amad Caam Amad Caam mooma mooy nijaayu soxna umu xayri sàll soxna umu xayri sàll moo jur Seydi Jamil la ilaha illallah géej gi dab na ko nu suul ba am fanweeri at nu sulli ko soxna umu xayri sàll na mu meloon dëgg la ndax mooy borom morom ñaari Malick yi Malick Sall Malick Sall ak Alhaji Malick lu xewal al Seydi Boubacar ni tuuti <laughs> maa ngi lay wax nag lu xam ne ca bombardement Dakar la gouverneur général yónni le délégué de la circonscription Dakar et dépendance ni ko demal wax a Sidi Boubacar mu nga tëggeej préparé nañu ko ni ko nag duñ koy jël pour mu dem Ndakaaru ndax De Gaulle ne day bomb Ndakaaru te fekk Sidi Boubacar a ngi toog ak El may Mbaye Bassin El Hadj Mourou Ndiaye Mbengue El Hadj El Hadj Alaaji Alassane Mbengue Massamba Dieng Lo góor gi Aliou Ndoye magi Ndakaaru yi mu ne lu xew nu wax ko ko hmm. mu ne wax leen gouverneur damay delluwaat Ndakaaru ndax bombardement Dakar du tax Babacar ci dëgg-dëgg jóge tigéej maa jiite léegi ci àjjuma ji noo wasi fa léegi maa ñaan ci wasi fa man Babacar ay bombardement di sax ma ma dem Tiwaawan déedéet nan ma delloo Ndakaaru xëy na sax su ma demee rue onze fa Alaaji Mansour nekk ma jaar fa xëy na sax bal dootul tàkk kooku mooy ki la laqoon ke nuy déggul man bayna la arabin ki mu doon modikat xalifa man bayna sama ki mu doon modikat doon yal leen doon Cheikh soga dem moo di kel ka ca barzaq tey wax ak waa adduna moo di kel ki fi yor cër ak ki dogal ami sañ-sañ ci diine jee yënguwul moo di kel nga laye doomu soxna yi kon bu nu sàggal nga la waay soppey xalifa mbay si bu nu sàggal mbay ku ci sàggal mbay ku ci sàggal mbay nañu wayloo mbay ba mu jiitoo mbay la ko jiital mbay dafa ànd ak gër gi bu jiitoo ñun bu nu jàqee mbay bu ñu tiitee mbay bu ko mbay bu nu jàqee mbay bu ñu tiitee mbay ba ko maam bu nu jàqee mu jàll maam bu ñu tiitee mu wàll maam bokkooyee mu wëys njéggi mu siiraat mba jàllanu waaw bu jéegee bu jéegee ah njéggi mu siiraat mba jàllanu waaw nu kaw saara ëllëg ca kaw saara nandal nu kaw saara ëllëg ca dara maam bu naane wagal ma mbay bu naane sun maam su naane wagal góor gi la laqoon kënu yi dégul nan retetet moo di mbay mi la laqoon babal ya naan tuy tuy moo di gi la gindi woon ndakaaru ba nga réeree bu nu sàggan ci bu nu sàggan ay bu nu bu nu sàggan ay bu nu sàggan ci waawan lépp nu sagal mbay nañu wayloo te toppi ko as Mansour ñu ngi lay dégluwaat jërëjëf tut kenn sama doom waaw daf laa dog ndeysaan sëriñ Boubacar xalifa bu tedd ba dafa bëgg nga noppalu rek ñëwaatal moo ni hmm. xalifa xalifa sa sa turandoo moo ni hmm. góor du tiit ba fen ah, day day sa turandoo moo ni góor du jaaxle ba saalit sa turandoo moo ni góor du xam fakk dëgg la sa turandoo moo ni góor du jàpp bàyyi dëgg la góor du xam fakk du tiit ba fenn du ñàkk sàcc du soppeeku du jàpp baay am nawleem du dal dali xam le loolo góor xam fakk du tiit ba ah, du ñàkk sàcc du soppeeku du jàpp baay am nawleem du dal dali xam le loolo mbay ne góor xam fakk du tiit ba du ñàkk du soppeeku baay am na leem dal eh. dal li am leem du dal dal xam leen loolo ah, oh, moo tax xale yi juddu ci ginnaaw mbay ñu mbay te mbay li ñu gëm xale ba mooy maamam pour yàlla moo ko ko jagle as Mansour yow la ñu déglu ba léegi mbay ah ah, ah dudu papa baal ma de ah, ah, du kenn la béy dama ànd nag wax mbay Diop fari mbay booba komi rek la hôpital hmm. dama bari woon man man garde cercle yaa ngi war Sidi Boubacar kenn mënu jàll. Mhm. booba loolu moo xew. waaw. ma xuus ca mbooloo ma. Mhm. ànd ak Mbaye Diop Fari Mbaye Lamine Diagne mi xam ne moom Bassirou Diagne Marème noo bokk ndeeg baay ak Umar Diouf mi xam ne mooy baayu Aram Diouf bu Tanor. Mhm. ak Munti Fay ñëw ci Sidi Boubacar radiyallahu taala anhu boo gisee rek day ree ma ne ko papa directeur hôpital lay nuyu ca booba Mbaye Diop commune rek la. <laughs> jamonoy dox. Mhm. ba lu wax administrateur civil Mbaye Diop def concours ba at mi. Mhm. <laughs> Fofana Abdoulaye ancien ministre de la santé et l' éducation du Mali wax ministre de l' intérieur ñu ko nommé ko. ca dëgg-dëgg préfet mu dem Kolda ba yàgg yóbbu ko Linguère Mali am nag la fédération du Mali hmm. <laughs> foofa nekk ministre de la santé <laughs> du Mali hmm. ni damay jëli may Diop Fary Mbaye nag nommé ko directeur de l'hôpital le premier sénégalais directeur de l'hôpital la Dantec kooku hmm. mooy Seydi Boubacar dëgg la mooy kan mooy hmm. baayu Cheikh Sidi Ahmed Tidiane si El Maktoum moom la Kamal Abdel Nasser ni ko waaw Cheikh Ahmed Tidiane si El Maktoum moo yow Cheikh Ahmed Tidiane si El Maktoum bi nga présenté sa lettre de créance comme ambassadeur yow foo jànge ban mun ko université Babacar Sy nu seet ko ca carte ba gisuñu benn université mun ko gisuñu ko mun ko doo ko gis Tiwaawan la. waaw mooy xalifa Cheikh Sidi Alhaji Malick mooy magu Alhaji Mansour ak Alhaji Abdou ak Alhaji Habib Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum maam laa àndal nii. en 1951. mooy moom ngeen gis nii photoom. mooy façon boobu jàkkaarloog yow. moo sol moo sol xaftaanu baraaye boobu moo sol xaftaan bu weex boobu. yàgg na yàgg na. ak kan. indi ko ak Seydi Abdou Aziz Al Amin. la ilaha illallah. sama soppe ba xalifa hmm. baay hmm. sa baay sa turandoo hmm. masu lekk mukk mu añ wala mu reer wala mu ndékki te Seydi Abdou Aziz Al Amine dawul te sa baay Amadou Mbaye Maodo ni ko sa baay Seydi Boubacar mu ngi lay nekk dëgg la dëgg la ko daal Al Amine ngoogu ah, ak ak kan <laughs> ak Seydi Boubacar Ibn Alaaji sama doomu turandoo moom mi xam ni moom ci boppam ca dëgg-dëgg kenn la ci diine ji ak ci lislaam bi mm-hmm. noo ko ne moom bàyyam la ne moon inspecteur rek Cheikh Sidi Ahmed Tidiane mm-hmm. waaw waaw Sidi Boubacar Si taala anhu mm-hmm. <laughs> su ma sànni gàmmu ji Ablaye Mbaye Peex waaw nijaay day ànd ak rakkam Alaaji Mansuur Ablaye Peex kuy woy woy Mhm. ku koy way alaaji Abdou Aziz mhm. lay Jamil waaw ak mm, Mbay bàyyu ma Azima Fam mhm. ak kan ak Paate ak kan ak Mbay Fall ak Alassane Diagne Sidi Boubacar di toj mii mi ya Cheikh Sidi Alhaji Malick di ko toj ba cinq demi war a jot wala quatre mu ne ma bàyyi leen rek sama rakk ah, sabran qalbukum سلما يا مجب القوم سود والبياضين توج الجلالة وصبرا قلبكم سلما يا مجب القوم سود والبياضين مجمع توج الجلالة صبرا قلبكم سلما يا مجيب القوم سود والبياضين تتجلى وصبرا قلبكم سيما يا مجب الخوم زود والبياد واو نجاي فاما نجاي فاما والبياد نجاي فاما نجاي فاما والبياد حاج منصور مالك نجاي فاما نجاي فاما والبياد dégg loolu ni Ndiaye Nguy Ndiaye faama biram ko jot tam. Ah, mbaale biram ko jot tam dur kenn kontaan naa ci yow alxaaj alxaaj hmm? ñëwal alxaaji dur kenn. labay kontaan naa xoolal rek kii nag mooy Maodo si. Ah, waaw ibnu alxaaji Abdoul Aziz. moom la ah, bàyyam noonu. Hmm? xalifatu cheikh yi. wal maxtaar yi. yaa fi dimbal yaa fajal diine. ay daanam ci ñëpp la wax kii mooy Maodo si Ibn Alhaji Abdoul Aziz si yaay fajal dina ay daanam. ana tur kenn mi ngi ci mi ngi ci xalifata ah. cheikh wal muxtaar yaa fi dimbal. kooku mooy Maodo si yaay fajal dina ay daanam te ñee. moom Abdoulaye tuus leen te ba ku ko bil. am daa i moo ko yayoo. tuus leen te ba. kuko bil am bil am da imo ah. mo koyoyo dan sajji jangi tete sibit mo dimbar mi ko min al basi timadi din kamilin ramalin wawafirin rajasin bañ di tama ki sabar bu muy kaban ja bu muy meqzaf bu muy trompette bu muy gitaar te bu muy fan falile di li war bu leen ko xiinal leen mbalax loxo ca baleen junjung baleen bangu ji way way ko si عر مستفعلا فاعلا مستفعلا فاعلا بسيتنجي ركي يومي دتي باك باك سمبر اتيقنجي انو موم رك موي كيكو جار موي داني لوخو تشكاو ياي داني خليفه مباي ياي داني دسولا دان ياي داني دسولا دان كي رك مو متفر فرلن تشم mbay ku ci far doo rus te du la far leen ci mbay ku ci far doo rus te kenn du la ree akrim bi bakkan la xayru wasar bur yàlla may bay loo xam ni kenn amu ko bur yàlla may na fi mbay loo xam ni kenn amu may na fi mbay loo xam ni kenn amu ko bu leen di in di naqar yaa yennu yenn bi mbay si si góor gi nee na yaa yennu yenn bi xal maam Abdou nee na yaayee nuyu na bi xalifa woon ko sakku woon suñ nu yet bi te woon ko sakku woon aw te jàmbatoo ndax ni mi billahi yaa bari ngor demal Asman Sour xam nga ala ala ala jàpp li mu xaaj Malick ala jàpp li mu bàkke magam ji xem na xem na mbangoo ji mi li li mu koy bàkke moo tax mbangoo ji moo tax moo tax mu dandal mbangoo ji mi <laughs> jërëjëf jërëjëf jërëjëf Abdoulah waaw dut kenn du kenn Maodo Seye Ngok ibn Alhaji Abdoul Aziz ah, waaw ah, du kenn fi ma feel wa baax na léegi nag Abdoulaye Mbaye Peex waaw léegi nag Abdoulaye Mbaye Peex Ablaye Mbaye Pekh Maodo Senghor Ablaye Mbaye Pekh kii nag. kii nag mooy eh. porte parole kër Xaadim Rasul. Cheikh Mamadou nag. mooy doomu ilimaanu ya. Abdoulaye Mbaye Pekh kii nag. àddina. te sang bu tedd ba Cheikh Abdoul Ahad mi xam ni mu ngi ci xolu nit ñi lu xew. xalifa bu tedd ba alxaaji abdul asis ca mbaax ga ca yiw ga ca ragal yàlla ga ca doonu cheikh seydi alxaaji malik doonu sidi boubacar dem tuubaa lu xew cheikh abdou xaadir ni ko ah julli jumaa jot na de mun ko maay ànd ak yow li xaamal la su paree ma waxtaan ni jullit war a mel loolu la defit kii nag cheikh abdou xaadir nag mooy bàyyi sunu cheikh ca dëgg-dëgg borom dignité ba ak sëñ moustapha mbàkke mais xam ni ñoom waxtu daf leen di poñe fu leen waxtu poñe ca dëgg-dëgg nu dem. Ablaye Mbaye Peex. waaw moom moom Maodo si Alifa Mbaye moomu. nijaay moom moom Maodo si mi nga tudd. <laughs> kenn kenn leen jur. si jaaji Malick Ousmane Ousmane Mati Mbakke ala jabdu safetu ngaññang xëri Mbakke demal. nijaay. Ablaye Mbaye Peex. moom la cornu gentil. woo Sidi Boubacar si xalifa bu gouverneur général. mu jox ko rendez-vous trois heures et demie. wax ak moom ci réew mi wax ak moom ci réew mi ba cinq heures bëgg jot mun ko léegi nag wax ma sa problème mun ko sama problème de mooy soo paree incha allah balaa cinq heures nga bàyyi ma nag ma dem julli ji ma dem julli ji nag tàkkusaan ca zawiya Cheikh Sidi El Hadj Malick. la ilaha illallah. Sidi Boubacar radiallahu taala anhu xam naa <laughs> la ko Demba Fall Samb waxoon mooy bàyyi Haaj Abdoulaye Naar. ni ko hmm. yow la nu gëm yow la nu wóolu yaa doonu Cheikh Seydi El Hadji Malick waaye rakk ñu mel na Mansour yow rek yaa ko mën a am dëgg la dëgg la ah, Ablaye Mbaye hmm. a ngi nii 1952 di inauguré lan mbedd mënu turé woon bàyyam Cheikh Seydi El Hadji Malick la ilaha illallah la ilaha illallah ci kanamu gouverneur Sénégal ànd nga laa Ceerno Seydou ak yu baax ya Abdoulaye Mbaye Peex hmm. kii ma lay wan nag Abdoulaye Mbaye Peex hmm. mooy nag cheikhul xaw mi mooy kan mooy ki nu yóbbu woon trente neuf et quarante cinq ca guerre mooy kan mooy Alaaji Mansour mooy kan mooy turandoo Seydi Mouhamadou Mansour borom daara ja mooy kan mooy baayu xalifa bii tey nekk xalif général Tijani mu ngi nii en 1945 39 45 France wóolu ko. yóbbu ko. mu ñaani moo ko wax Amadou Ba ak kan ak ak ña mu àndal ma ngoogu ànd ak Burhaan Cheikhul ngoogu borom kaala googu 57 ans rek la am. la ilaha dama bañ émission bi ma jël lu bëree bari gis nga Ablaye Mbaye Peex. Mhm. sa baaye googu sa maam Sëñ Basiru Mbàkke bu Xaadimu Rasuul ànd ak kan Cheikh Fatma. ka xam ne mooy taaw Seydi Mouhamadou Moustapha Mbacke mooy kan mooy baayu sëriñu bugaan mooy kan mooy Seydi Mbacke soxdaloo moo nekk loonu Seydi Bassirou Mbacke nekk loonu Ablaye Mbaye Pekh borom kaala gu rëy googu wallahi mooy sama turandoo Ablaye Mbaye bëgguma jël émission bi yëpp waaye maa ngi nuyu Khalifa Mbaye bu baax doom Mbaye Dodé di ko ziar xam ko lool di nuyu tuut kenn ce grand intellectuel bàyyi lépp ni la sama baay daan def maa ngi dem defi ko di nuyu ñëpp nag. ngërëm li nag kenn moomu ko kudul burgaan. <laughs> dëgg la. xale boobu fi mu jógee ak fi mu yegsi fab lépp jébbal ko yàlla ak rasulullahi ak sëñ Mbàkke soxdaloo ak gaynde Faatu waaye euh, def lu xam ni ca dëgg-dëgg dans les années prochaines ñëpp daanu ko wax li suñu Hajj Mansour maa nuyu. ak di ko gërëm ak di ko sant Abdoulaye Seye Ndiaye yàlla boo tàggoog teraanga Ablaye may yam fii nag may dila la gërëm nag. ak di la sant yow Ablaye may peex. loo ni sama nijaay boo toogee président waat bi mu fi nekkee sama nijaay boo toogee kii de gardien de la constitution <laughs> président des grands projets de l' état ni sama nijaay boo toogee kilifa diine yi barki dem la sëñ Muntaxa yónni ci man Ablaye Mbaye jërëjëf. dut kenn jërëjëf Khalifa Mbaye jëf sama jigéen ñooñu toog sama doom yooyu sama sët yooyu maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di nuyu waa seen TV yëpp di ñaan réew mi yal na fi yàlla def jàmm feebar bii dugg ci réew mi sunu borom tabaraka wa taala ci darajey sang bu tedd ba ci barke sunu maam Cheikh Sidi El Hadji Malick ak doomam yu baax barke Xaadimu Rasul ak kilifa diine yëpp feebar bi yal ko yàlla tegg ci Sénégal ba dootu fi dégg benn kaa dootu am un dootu am région ak région yàlla mën na ko yàlla ko yàlla def ndax Alaaji sunu baay xalifa bu tedd ba daana wax si Sénégal duñu ko moo mooñaale ñun ko xalifa bi mu mooy lan mu ne Xaadimu Rasuul Cheikh Saadu Rabi ah Seydina Issa Serigne Thiénaba ah Ndiassane Hadj Abdoulaye Niass ñëpp ñaan pour Sénégal am jàmm jàmm rek a fi am yan nun dunu ba tàggoo corona ci daraja Cheikh Sidi Ahmed Tidiane Ablaye bàyyi nag émission bi ngeen continuer nuyul ma sama doom jooju xalifa ak jur kenn maa ngi leen di nuyu ak di leen ziar ñooñu maay seen baay jërëjëf Mbaye jërëjëf Mbaye jërëjëf Mbaye bég nañu lool nee na eso yal na la yàlla mag du yàlla waaye yàgg nag yàlla mag lappi gudd la seen ko taxul nga yegg ca tey lii mënu wax ci sëñ Babacar Sy ba pare fekke ko tubaarkalla as Mansour Mbaye yàlla ko fi yàlla bay Abdou Aziz Aly Ndiaye mii mu la wax léegi Aly ma jigéen jëxu maamam sëriñ Babacar rek lay noyee léegi bi ma duggee ngumba kër sëñ nga xam ni ñoom ñoo way njool faama tubaarkalla ñoom it ñu ngumba di waa kër Sey moo tax at mu jot sëriñ Mansour doomu Seydou Jamil daf fii ñëw dama ànd ak moom nag sëñ Mansour muy tawaaf Kaaba ga na topp ci moom rek umra maa ngi ànd ak sëñ ma soxna doomu Alaaji Mansour mu mag yaayu yaayu Habib ñu ko teg ci puus puus Mansour bu Alaaji Abdu doon koy puus mu ànd ak soxna wàllum sëñ Saaliw nuy tawaaf naar yi dal ci kawam rek mu bàyyi puus puus bi dox nu topp nag ci Mansour bu Seydou Jamil lu mu wax nu wax ko mujj nag lu mu wax naaree wax ko ma ne ko gaynde du jur xar sëñ Babacar sa sa maam lii la bëggoon. <laughs> macha allah papa dañuy bàyyi rek Haj Mansour mu ngi doon euh, euh, waaj a question kii di euh, sëñ Abdoul Aziz du Haj Mansour jox naa la kàddu. <laughs> sëñ Abdoul Aziz ñu ngi lay nuyu bu baax suñu laaj bu njëkk rek ci tolluwaay bi dañuy wax sama mag Haj Doudou Kende ñu ngi ko doon dégg ci Pape mbay doon ne xale yi juddu ci ginnaaw mbay xamuñu Mbaye te Mbaye la ñu gëm tax toujours œuvre sëñ Babacar si. di contextualiser wu di méngoog actualité ci bu ñu bëggee am euh, jikko ju rafet. waaw salaamaaleykum. wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. waaleykum salaam wa taala wa ah, bëgg a <laughs> ok sawar naa lool ci tontu ci laaj boobu. ndax ñaar Muhammad bu njëkk bi mooy jataay bi jataayu tare la benn bi beneen bi ci des mooy di daje barkeelu ndax ku dégg ni ko sëriñ bi waxe xam ni mënee su la jeexal Cheikh Seydi kër si dañuy barkeelu ci moom bàjjo bi kenn du moom ah. sëriñ Babacar si radiyallahu taala anhu amet dinaa la wax ni na doy na ci liggéeyu ndey nga xam kan mooy Cheikh xalifa wax bu rëy la nag bu ma ko taamee mal dinaa la leeralal lu tax ma ni la doy na ci doy na ci liggéeyu ndey nga xam kan mooy Cheikh Seydi Aboubacar Sy keroog bi nga xamante ni Cheikh Alhaaji Malick radiallahu taala dénk nañu ko soxna Roqaya Njaay wax naa ba tàyyi nag ni Cheikh Alhaaji Malick dénkuñu ko soxna Roqaya ngir mbëggeel Cheikh Alhaaji Malick daa yor leer di wër ndab lu mën a def leer gi soxna Roqaya yor ndab lu mën a def leer gi yàlla boole leen ñu daje ñu jël soxna Roqaya dénk ko Cheikh Alhaaji Malick ci gàttal soxna Roqaya jigéen ñi ndar di ko yëj xam nga luy yëj moom la la lax laxdari di wax reetaanu saboote mm-hmm. ñu di koy yëj ci naan ko ni nga mel ci taar ak fi nga toll dinaay wax ni nag bëri na jigéen ju mu lambal ci réew mi mooy topp sa taar ñu naan la du sa morom kii yaa ko mën xaaral keneen ngay xaar di xaar ba xale yi fekk la ci tali bi wàcce la ci trottoir bi te fekk yaa ko yóbbee sa bopp keroog bi ñu dénkee soxna Roqaya Njaay Cheikh Alhaaji Malick yàlla boole leen ba mu ko ba mu dikkee ci néeg bi moom soxna Roqaya ci gàttal yëngal bopp bi Cheikh Alhaaji Malick ni dënn ba mu yàgg mu ne ko Roqaya dafa mel ni da am lu la naqari mu ne ko mukk si xanaa kay jigéenu ndar yi rek ñoo maa yëjj mu ne ko dax lan mu ne ko nee nañu ki ñu ma may doxandéem la mhm. ndax amuti mbokk ba tax xaw ma say mbokk nee nañu ki mu ki ñu ma may sama can sax joxewu ko walla matul Cheikh Alhaaji Malick boroom jom la fekk Maodo bayoon na toolam ba jaay ko mi ngi ci waxande wi Cheikh Alhaaji Malick dem génne ko indi ko ñëw ni soxna Roqeya jigéen ji ëpp li ñu ko jox ci ndar ci can kat ñaata la soxna roqee ni ko ki ñu ëpp li ñu ko fi jox ñetti téeméer lañ ko jox Cheikh Alhaaji Malick génn ñetti téeméer yéen ni soxna roqee sa can ngi nii kenn du da daagu ci ndar di la ëppale can sa can a ngi nii beneen ci des ñu ne amooy aw may mbokk lan lan la samay mbokk di jariñ ci diggante bi mu ne ko nee nañu aw ma njëkkee Cheikh Alhaaji Malick ni ko bëgg nga ma wutal la njëkke soxna roqee ni ko waa mu ne ko jël naa sëñ kër si def ko jël naa yàlla def ko muy sa njëkkee d'accord nga ci soxna Roqaya ni ko d'accord naa waaye Roqaya njëkke lu muy jariñ ciw xew soxna Roqaya ni ko ah xanaa boo xewlee mu indi bagaas yebbeeg yooyu mu ni ko yal na la na la sa njëkke li yebbil ku ñëpp teg bët allahu akbar soxna Roqaya fi mu toog ba mu yàgg mu ni ko Malick xaalis bii nga ma jox ku ko moom Cheikh Alhaaji Malick ni ko can gi yaay boroom soxna Roqaya daal di jël benn téeméer bi delloo ko Cheikh Alhaaji Malick ni ko Malick téeméer bii maa ko fasanteeg yow kóllëre jël beneen téeméer bi delloo Cheikh Alhaaji Malick ni ko bii maa ko joxe hëddiya diggante taalibeeg sëriñam jël beneen téeméer ba téye ba Cheikh Alhaaji Malick teg ci bëtam mu ne ko bii nag Malick damaa bëgg nga ñaanal ma doomi nitu yàlla jumel ni yow la ilaha illallah Cheikh El Hadj di jël xaalis ba dem jëndee ju koy téere dikk joor téere yi ci gàttal woo soxna Roqaya Roqaya kaay mu ñëw mu ni ko yal na la yàlla may doom ju mokkal téere yi ak la ca ginnaaw téere yi dinaay wax gars yi ni doom ja doom ji ko doom ja ko Cheikh El Hadj Malick doon ñaanal te yàlla jox ko ko mu mokkal téere yeeg la ca ginnaaw téere yi mooy Cheikh al Khalifati Bahra al ilmi wal xikami aami shariati hadina li xayri subur sëñ Babacar si la ko doon wax góor gi ci manto bu jot bi borom jëbu leer bi borom sàkkara yàlla bi borom ndaag lu jekk la góor gi dàq ci réew mi raw ci réew mi yàgg ci réew mi te yàqul ci réew mi samdi ba samedi lay watu moom Cheikh saydi Aboubacar Sy soxna Roqaya kooka la ko kooka ko Cheikh Al Hadji doon ñaanal ifa yoon neen gërëm naa sëti yoneen gërëm naa la sa baay maali gërëm naa lay bërëmin ti bi max naa setti Yàlla nu gërëm naa la sa baay Maalik gërëm la borom min tiibi max naa alifa way naa la kañ ñaara la nga may ma ndax ah. yow fañu aaji diisoo laay min tiibi max naa gërëm naa la waay sëtu Yonent gërëm naa la sa baay Maalik gërëm naa la borom mi tiibi max naa fa ca kaw xalifa di bëjante ah. loo bañ bañ mu tiim la yàlla may bërëmi téewe bi ma baay sëtu yoon leen gërëm naa la sa baay ay maali gërëm naa la borom mi kii bi max naa bëgg ngeen bay gëm ngeen bay jëf sil ngeen bay jox ngeen ko seen xol yi kenn bay borom mi téewe bi max gërëm na la sëtti na la sa baay Maalik na la borom mi tii bi max bu moomee Yonent solal Cheikh ay waay Cheikh jëx Maalik Maalik dem bay xalifa ah. Abubakar borom mi tii bi max doome yónneen solal Cheikh Cheikh jox Malick Malick dem bayno xalifa Aboubacar borom mi tii bi max naa def leen ni mbay doomi kër mi la ah. mawdoy baayam Ruqayatu li Lingeer la kii kay ndar ndar la bërëmi téebi mag naa mbay doom gërëmi la Maodo ye baay Roqayatu Njaay Lingeer la kii kay ndar ndar la bërëmin أبي أعلى بكر إن المعلى أبي أعلى أبي أعلى أبي أعلى أسقمنا بي بر من تيب مغنى خليفة إن المعلى mbay ala mbay ala mbay ala asbat faf naa doon les teg minti inna al mualla ala fil mayasiri inna al mualla la ala fil mayasiri qisman jaana qadarun bi wa afshaahu Serigne Babacar Mbaye sa baay baay Mbaye Dondo daf daan wax ni cheikh na tiijaan yi sëriñ Babacar da koo tagg ni ko yaay aas bi ne innal mualla la ala fil mayasiri qisman jaa ana qadarun bi wa afshaaw ne aas bi moo ëpp doole ci kartu mariage bi mu ni cheikh na tiijaane ngoog ci biir wàllu yi mu ni aas bi li muy foor foor xoolal dara bu xisee lalo kenn mënu ko dindi sett bi atu rek moo ko mën a dindi nee na moo tax as ba am doole moo tax seen cheikh yaag ba Malick seen bàyyi daan wax xalifa innal mu ala mbay ala mbay ala mbay ala as ba faf barakallahu fiik ma tontu ah. sa laaj bi waaw waaw Baye Khalifa. sama turandoo tudd na ko ay yoon. tudd na ko ci talaat la naa. antal mualla indahu fi maysaril asina da innal mualla la ala fil mayasiri qisman jaana qadarun bihi almualla arab yi ñoo daan def suñu barilee alal dañuy rendi gëléem def ko juróom-ñaari saam wutal ko ay xobi carte bii ñu tudde ko raqib bii ñu tuddee ko atiid raqib soo ko ubbee benn saam ngay jël atiid soo ko ubbee ñaari saam ngay jël raqib ak atiit nag bari nañ ci kart gi waaye mu àllaa benn rek la ci mu àllaa soo ko ubbee tonni juróom-ñaari saam yëpp yóbbu sama turandoo ni innal mu mooy waabale mu ngoog ni àllaa mhm. carte woowu ñu al mu àllaa mhm. la ala moo gën a kawe fil mayaasiri ci carte du yàlla yi mu ni xisman cër bu toll noonu nag jaa ana qadarun bihi mm-hmm. dogalub yàlla bi indil nañu ko wa afshaahu te dina ko siiwal ni Babacar si jël na lesseeg ba moo tax seen baay daal naan aas ba ñeel na mbay bii wa afshaahu tey ma tontu sa laaj dafa wax ni lan moo tax xale yi juddu ci ginnaaw Cheikh Seydi Aboubacar si musuñu ko teg bët xamuñu ko te gisuñu ko ba pare am cofeel ci moom gu jéggi dayoo mm-hmm. Seydi Cheikh ma Tidiane si Al moo ko tontu su ma juumul muallim moo ñu jàngaloon araf na bi nuuri minu fiihi qabla xalibihi sayid Cheikh Ahmad Tidiane si almaktoum dafa wax ni xale yi juddu ci ginnaaw Cheikh Seydi Aboubacar si dafa wax mu sax moom sëñ moom sayid Cheikh Ahmad Tidiane si ni sëñ Babacar keroog ba ñu ko joxe ba ñu ko joxe ndonol mu wuutu Cheikh mu wuutu Cheikh Seydi Ahmad yi keroog Cheikh Seydi Aboubacar si dafa waxoon Cheikh Alhaaji Malick ni ko waxal ma mag ñi charte bi mooy bu ma kenn xam ba keroog ma fiy jóge cheikh alhaaji malik ni ko xam naa sa ko ba négocié naa ko ak man ñi te cheikh wax naa ba tàyyi ni Serigne Babacar Sy tànnul boppam pour nekk xalifa Cheikhuna Tidiane Serigne Babacar Sy tànnul boppam pour wuutu cheikh alhaaji malik Serigne Babacar Sy tànnul boppam pour toog ci chaise Maodo bi wax naa ba tàyyi ni cheikh Omarul Fuuti moo tànn cheikh Seydi Aboubacar si ndax moo proposé cheikh Seydi Aboubacar si ni kii laa fi gis ku mën a wuutu Maodo ginnaaw Maodo kii laa yaakaar ni mën naa tooge li Maodo tooge woon moo tax mu daan wax moom sëñ Babacar ni diggante bi surtout Cheikh Al Hadji Malick yàggul ñu laaj ko lan moo tax mu ni dama koo teel a donn bi ma bi ma amee fanweeri at ci laa yor xilaafa Cheikhuna Tidiane Chérif il Fatimi waaye bi mu amee fanweeri at ak juróom-ñaar ci la Cheikh Al Hadji Malick génn àdduna Serigne Babacar Sy door a wuutu Cheikh Al Hadji mu ni a wuutu sama baay ci bi mu amee fanweeri at ci laa ko wuutu sa baay mu ni booba ci fanweeri at laa toll ci laa wuutu Cheikh Seydil Hadji Malick waaye Seydi Cheikh nee na comme daa ñaanoon moom Serigne Babacar ni bu ko kenn xam ba keroog bu fiy jógee maam Cheikh ni mbete ñu xam Serigne Babacar mbete ñu egg yow yowmal qiyam waaye fii ci àdduna li coow liy bari bari kenn xamu fi sëñ Babacar génn góor ni ko Cheikh Tidiane am na lu ma jaaxal kat ndax mbay yaa ñu doy ji ni muy takkarnaasee ci réew mi xale yi koo tudd mu ni sëñ Babacar ruq boo dem fekk fa sëñ Babacar kenn ku ne di wax ci sëñ Babacar nga ni kenn du ko xam lu dul yowmal qiyam sëriñ Cheikh ni ko gis nga li ngay dégg ci sëñ Babacar ak li feeñ ci ay mayam ak li ñuy coow ci ma ci ci moom yëpp coow la lu génn ci cin la lawal gaa nga ca biir Babacar si kenn dajagu ko et tant que ci kanamu borom bi daj kan mooy cheikh al xalifa waaye li ngay dégg ci àdduna yëpp Serigne Cheikh ni ko cóolali rek mooy génn mbubb mooma nag moom la cheikh wax sànq ni moom la moom la moom la cheikh alhaaji malik solal cheikh seydi aboubacar si Serigne Cheikh ni fa wallahu a al uquwati kulla achya al uquwati ma ko benn benn ma firit bayit boobu daal di pare wallaahu ashiyaa al uxuwati kulla dama bëgg Pape Malick jóg su ma joxee ma jox ko nga jox ma ma jox la ñu joobe sëñ Babacar si daal di bare. wallaahu ashiyaa al uxuwati kulla Mouhamad li coow lii bari bari wax naa ba tàyyi ni xalifa ki ko njëkk a dégg ci réew mi mooy Cheikh Seydi Aboubacar si. wallaahu ashiyaa al uxuwati kulla Mouhamad wax naa la ni réew mii ñu dëkk képp ku fi sos daayira mu lay jariñ ba muy jariñ seen njaboot nuyoo ko Cheikh Seydi Aboubacar si. wa xalifatun lil ahmadayni wa malikin cheikh nga ni wallaahu ajaa al uxwati kulla paap nga ni wa xalifatu lil ahmadayni wa malikin cheikh nga ni wallaahu ajaa al uxwati kulla paap nga ni xalifatun lil ahmadayni wa malikin waay waay yéen ñu toog xanaa coobeelu sëñ Babacar nekkul ci yéen wal irfani cheikh nga ni fa wallaahu fa wallaahu ajaa al uxwati kulla loolu sa turandoo ko wax nee na keroog bi cheikh alhaaji malik di dem bàyyi wu fi dara la mu yoroon yëpp da koo jox sëñ Babacar Babacar Si moo tax naa la ci nettali benn laaj daa am góor gu jugee Casamance ñu yónni ko mu yor yóbbante boppam ñëw Tiwaawan di Cheikh Seyd seet seet Cheikh Seyd Aboubacar Si lan ngay doyee sëñ Babacar mu ni Casamance gépp ñoo ma yónni te li ñu ma yónni dinaa ko seet beneen bi ci des sama laaju bopp la te dinaa ko laaj sëñ Babacar Cheikh xam nga bu mu doon njëkk a lijjanti mooy lan moo tax sëriñ Babacar Si ñu ko woowee du gestu ndax Cheikh Al bu daan dox du gestu ba Cheikh Al bu daan dox ñaari nagi bëtam yi ci ñaari baaraamam yi fi muy dëgg la koy te Babacar muy dox loo gaaw gaaw gaaw da daw di ko topp te moom day daagu te loo yow loo gaaw gaaw tànk sëñ Babacar lay jiitu doo mën lu dul di ñukki ñukki ci ginnaawam te ndànk lay dox bu tegee tànk teggi teg beneen doo ay tànkam daawul ànd day teg nday joor teggi teg càmmoñ wax naa gars yi ni leen Cheikh Alhaaji Malick wax na ni ndono la ca yont yàlla Mouhamad wàcc na ci Maodo Baye sëñ Babacar si ndono la mooy lan dafa am ñu bari ñu wax ni yont yàlla Mouhamad bu daan dox ñaari tànk yaay àndandoo jëm kaw waay waay ku toll ni yonti yàlla Muhammad di ko jox doxinu picc waaye xam nga ne loolu xel nanguwu ko Cheikh Al Hadj Malick ni yorul doxinu picc de dox baa dëgëroon ba bu daan dox bu tegee tànku ndeyjoor da ngay jàpp ni Moustapha day tànku càmmoñ ba daa toll moom mais day teg tànku ndeyjoor teg tànku càmmoñ wax naa ko démb benn nit nee ko lii wax ma dégg ko bu ko waxati waaye yàlla du gëdd yonti yàlla Muhammad ku toll ni Moustapha yàlla du ko gëdd mu ne yàlla dana yonent bi yaa ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalla Allahu laka barka mu ni da koo gëdd ma ni ko mukk loolu du gëdd yàlla day laayenti biir ak mouhamadou rasulillahi cheikh alhaaji malik moo ñu wax ni yàlla lenn la am mooy yont yàlla mouhamad lu dul mouhamad yàlla soxlawu ko lu dul mouhamad yàllaa ko bind pour mouhamad ma ni ko la yàllay wax ak yonent bi njàngale lay doon pour moom ak ñi mu ko war a jox dani ko yaa ayuha nabiyu lima tuharrimu ma ahal allahu laka tabtagi mardata azwajika wallahu gafuru rahim qad farada allahu lakum tahilata aymanikum wallahu mawlaykum wa huwa aliyun hakim wa iza sar nabi ila ba'di azwaji hadithan falama naba abi wa adar allah ala arafa baad wa arada an baad falama nabaaha bihi qaala man anbaaka haza qaala nabaani alimun xabir in tatuuba ila allahi faqad saqat qulubakuma wa in tazaharat alayhi fa inna allaha mawla wa jibril wa saalihu lmuminina wa malaikatu bada dalika zahir ata rabbo in talaqa kunna an yubaddilahu azwajan xayra min kunna muslimatin muminatin qanitatin taibatin abidatin saihatin sayibatin wa abkara ya ayuha alladina amanu qu anfusakum wa ahlikum annara wa qudaha annasa walxijarata alayha malaikatu xilaasu shidaadun la yaxsuna الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا يوما إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يجزي الله النبي والذين آمنوا معهم نور يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير قدور إندي يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين وقد عبادنا صالحين وقيل ادخلوا وقيل ادخلوا النار مع الداخلين يا وضرب الله مثلا للذين امنوا امرأة فرعون اذ قال ربي ابن لي عندك بيتا في جنة ونجني من فرعون وعملي ونجني من القوم الظالمين يا لني ومريم ابنة عمران التي احسنت فرجها ونفخنا فيه من روحي وصدق بكلمات ربها وكتابه وكان من xaatinin su ma juumul mbaa fàttewuma yaakaar naa fala saar wayam ma ne ko lii yàlla du gëdd yonent yàlla Muhammad ku toll ni Moustapha yàlla du ko gëdd paap négociation boobu yàlla daan def ak yonent bi moom la nitu yàlla yëpp daan def ak Cheikh Seydi Aboubacar si coow li kay ci biti la waaye ku wéet xam kan mooy Babacar wax ji ci biti la waaye ku dugg ci ruq xam kan mooy Babacar sa trondoo nee na nag keroog ba maw doy dem daa dajale lépp jox ko sëñ Babacar si ñu ne ko ndax da caa desal mu ne déedéet moo tax góor gi bi mu yegsee Tiwaawan dañ ne ko góor gaa ngi ci kaw koo fekk ci kaw moom joolaa ba jugee Casamance toog ci buntu taax mi di xaar Cheikh Seydi Aboubacar si naka la sëñ Babacar si wàcc mu jàkkaarloog sëñ Babacar ni ko hey Babacar sëriñ Babacar wëlbatiku ba jàkkaarlook moom comme dañ koo waxoon ni ko Cheikh Al Khalifa du gestu mu ne ah booba réussir na de woo naa ko waaye gestuwul bi ci des nag mooy dinaa ko ko laaj ni ko Babacar dañ maa yóbbante ci yow sëñ Babacar si ni ko lu xew mu ne ko Casamance gi pa dajaloo jox yóbbante nee nañu sa tekk jeeg sa degg ji ci sa photo yi bii la yarul lu tax boo toogee benn place doo yëngatu Pape Cheikh xalifa du wokkatu Cheikh Al Khalifa du ñandu Cheikh Al du ñàkk Cheikh xalifa Khalifa du ko euh, euh, dox bu nee dégg fi mu ne doog bëtam di dugg ci ñëpp bu laaj ko ndax la dégg ji da ngay nappaate wala daa am loo àndal seen Babacar Si ni dënd ba mu yàgg mu ne ko gée mu ne ko siggil góor gi siggi jàkkaarloog taax mi Cheikh Al ni ko lii lan la góor ni ko am taax la Serigne Babacar Si ni ko ko yenoon nan ngay def góor ni ko ku ma yenoon taax xam nga ni du ma dox Babacar mu ne ko li ci loosu Babacar wee gën a diisum taax ruuxu jaam ñi la ma yàlla dénk li ci loosu Babacar suwee gën a duuxum taax ndax ruuxu jaam ñi moom la ma yàlla dénk bokkul ak li ngay xalaat yow sëñ Cheikh nee bi ma duggee ci biir néeg bi góor gi fekk ko ci biir ni sëñ Babacar beneen question bi xam nga lan la sëñ Babacar ko déedéet mu ne ko kube la Cheikh Alhaaji Malick yoroon te toogee woon ko ca ba Babacar la jox wala dafa manqué sëñ Babacar ni ko la ñu joxoon Cheikh Al Hadj mu duggee ci maam Alfahima Yoro jaar ci maam Cheikh Oumar jaar ci Cheikh na Tidiane Chérif Il Fatimi ba ci yont yàlla Mouhamad ma koy jox bu ci dara manqué si du jël lu la yàlla joxoon yonent bi mu jaar ci loxol Jibril moom la indiwaat ba mu yegg siwaat ci kan la yegg siwaat mu ne ko yegg siwaat da ci sama loxo man Babacar xanaa xamoo ne du ma jël lu manqué maa nga wëllërante ak Cheikh Al Hadj Malick ca keroog ba dajee ca xare badar Pape wax naa la ni xare badar ña fa daan daje ña fa daje woon di ay malaayika daan doon xeex ñu woon xalaat ak xel bu ñu xeexee waaye yàlla ruuxu nitu yàlla yi moom la jël roof ko ci jëmmi malaaka yi looloo tax ñu naan la badar malaayika ya dañ fa daje woon bi ñu ñëwee ñu laaj Moustapha nu ñuy def sëñ kër Si nee na foofa laa dajeek Cheikh Alhaaji Malick ñun ñaar ñu wëllërante kanamu yont yàlla Muhammad foofa laa dajeeg moom Serigne Babacar si nee na li tax Maodo tuddee ma Babacar xare Badar la wóor la doon teeg Babacar Sadiq looloo tax mu tuddee ma Babacar Cheikh Gadi fa wallaahu achaa al quwwati kullaa kon jël na ndono la yow Pape Gani huwal xalifatu wa xalifatu lil ahmadayni wa malikin déggal Serigne Babacar si moo doon ñaari ahmad ya moo doon Cheikh Alhaaji Malick buñ la laajee ñaari ahmad ya kan ak kan la waxal ni yont yàlla Mouhamad la ak Cheikhuna Tidiane Chérifil Fatimi parce que boo demee ci kaw yont yàlla Mouhamad ahmad la fa tudd li la koy dëggalal mooy sëy mooy yont yàlla Isa keroog ba muy wax dañu yëti min baadi ismuhu ahmad loolu wane ni tur ba ñëwagul ahmad la waaye foofa boo fa demee turu cheikhu na tijaani chérif mouhamad la bi cheikh bi bi monsieur yonte yàlla mouhamad ñëwee turam nekk mouhamad ci suuf nekk ahmad ca kaw cheikh nekk ahmad ci suuf nekk mouhamad ca kaw moo tax cheikh tidiane damay wax gars yi ni leen dañ bàyyi mbëkkante beeg championnat beeg karti karti bi amul njariñ xam nga lu am njariñ fexe ba ñëpp nekk ay jullit yàlla xañ pap bu joxee pap du xañ keneen kenn ku nekk la yàlla war a teg sa loxo teg sa na ko sa loxo te cheikh li yàlla defal jaam jaam munu ci dara li yàlla def ci nit nit munu ci dara lu coow li bari bari ak loo kon kontar ak loo mer mer mer mer mbay yaa ñu doy moom kenn mënta te mu booy say nopp ñu ni sëñ lan moo tax mu ni kaa bu ni këtt ni jonn nga bëgg ku ku ni këtt ni jonn réglé ko da ngay cheikh seeti cheikh Seydi Aboubacar si mooy rek de problème yi tuge fa mu nekk adna min subhi lil hajati min saqarin yaa xayranhu adnahum lil hajati Seydi Cheikh Ahmad Tidiane si nee na Serigne Babacar si aajo ji nga am yow soppeem ak foo mën a nekk nag lu mu sori sori nee na jarul sax ngay sonn ba ngay pour ñëw ziar si sëñ Babacar sëñ kër fa mu tëdd ca rëw doom ba yëg na aajo am fa mu tëdd moom sañ sëñ Babacar si ma ngay dégg la lay indi bu dee oto Cheikh Alhaaji Abdoul Aziz Dabakh dafa wax ni soo toogee ci kanamu rëw du sëñ Babacar alaaji Abdou nee na bu fekkee aajo la fa indi alaaji Abdou nee na bu ko wax ñu laaj ko lan moo tax mu ni koo xamante ni ay sangu sa kër di départ la yëg di lay yëkkati alaaji Abdou nee na dikk ba toog ci doom di ko waxaat aajo alaaji Abdou nee na gàtt xel la loolu nga ku sama trondoo laa dégg mu wax ko Serigne Abdoul Aziz Al Amin nee na day jug ci kaw taax mi di wàcc ci biir di ziare sëñ Babacar pour war a ñëw Dakar di lijjanti lu jëm ci jumaay sëñ kër ji am ku mu amal rendez-vous benn kilifa war ko seet si nee na wàcc dem ci réwdu bi di ziar sëñ Babacar fekk benn waay toog jël ay oomam sës ko ci réwdu sëñ Babacar naan ko li ma la wax nag tout de suite laa ko bëgg léegi léegi tout de suite laa bëgg mu réglé sëñ Abdou ma ne waaw man Babacar Sy temps bi di ma xaar kii di njabootam ñëw sukk ci kanamam ni ko tout de suite teer na ma ni ma xamee Babacar Sy problème bi dina réglé man it fi toog di wax nee na man ba pare rek ni ko góor gi tout maa ngay dem man waaye sëñ Abdou nee na bi muy toll Thiès ci station Total bi di sol carburant ca lañ ko woon ni ko kilifa ga nga doon seet si mujj na ñëw ba réglé na problème ba signé na ko nee na heure boo ñëwee ñu jox la këyit la neexee ñu indil la ko fa la sëriñ Abdou wàññee ko Pape nga ni huwal xalifatu lil keroog bi Cheikh Alxaaji Malik génne àdduna ci gàttal mag ñi dañoo dajaloo di lijjanti kan moo war a doon Cheikh Alxaaji Malik walirfani foofu nag la coow li nekk donnul Serigne Ba Serigne Babacar Sy donnul Cheikh Alhaaji Malick ci fala fala dafa donn Cheikh Alhaaji Malick ca xam-xam ba muy muy xam-xam bi ñuy jàng ak xam bi ñu dul jàng yépp la donn ci Cheikh Alhaaji Malick wa xalifatu lil ahmadini wa malikin fi l ilmi wal asrari wal irfani ninnal tazalzula bada wa taxayuran ñi dañoo daje Cerno Saidu Nuuru woolu Sëñ Babacar mu ñëw mu ne baay mu ne ko Maodo mooy sa baay waaye ñun ñi ay doom doomi ñun ñii ay doomi Maodo lañ ci xaqiqa ñun ñii ay Maodo lañ pap xam nga lu tax Serigne kër si hmm. diggante boobu xawoon na difficile tuuti hmm. du sax difficile waaye Serigne kër si dafa fekk Maodo defar ay Maodo ni moom Serigne Babacar Sy bi Cheikh Alhaaji Malick di faatu Maodo bàyyi wu fi ku yées Maodo dinaay wax gars yi ni leen Maodo amul lu yées Maodo Maodo xamul lu yées Maodo Maodo àndut ak lu yées Maodo Maodo jurul lu yées Maodo Maodo fekkewul lu yées Maodo bi Serigne ñëw mu di ay Seydi Hadj Malick yu sotti sëñ Babacar yor at yu ndaw ci seen kanam te mag ñi dell kenn ku nekk nag jàpp ci sa bopp ni sëñ Babacar atam yi mu yor warul mën a toog ci xilaafa Cheikh Sidi Malick gi wala xilaafa Cheikhuna Tidiane yi mag ña loo woo ko ndax yëguñu li xew waxtaan ak moom ba yeggal daal di wax sëñ Babacar si waxtaan ak moom ba yeggal bi ñu waxtaanee ba yeggal sëñ Babacar si ni ne lu xew ñu ni ko dañoo bëggoon a xam kan moo donn Cheikh Alhaaji Malick ci ñun ñi sëñ Babacar ni dënn bam yàgg mu dem jëli benn si muy mu woolu ma sëñ Habib ba sëñ Habib ñëw mu ne ko duggal ci biir néeg bi sëriñ Habib dugg ci biir néeg bi mu ne ko jëlal Malick bi Serigne Habib jël cheikhu che chaise Cheikh bi mu ne ko indi ko teg ko ci biti mu indi chaise bi teg Serigne Habib jël tengaade bi indi teg jël yetu Maodo indi teg sëñ Babacar si taxaw ni mag ñi yéen ñii toog ku ci wóolu sa bopp ni yaa donn Maodo jugal toog ci chaise bi ku ci toog ci chaise bi 24 heures boo ko ci amee te faatu ma delloo Cheikh Alhaaji Malick li ma joxoon nee na mag ñi di xoolante sëñ Babacar ni leen toog leen ci dinaay wax gars yi nag ni leen nañu bàyyi boo waxee lenn lu nekk ci sëñ Babacar ñu nit la moom Serigne Babacar Sy mais li ko yàlla may moom la mayul benn nitu yàlla nitu yàlla yu bëri seen wilaya moo leen di conditionné mais Serigne Babacar Sy wilaya moom Serigne Babacar Serigne Babacar a koy conditionné looloo tax Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si wax ko ni ko yow wilaya gi nga yor yow bàyyi conditionné wu la yow yaa koy conditionné. wilayatuhu tabqa mada dëhri bikratan cheikh saanula al asraru ba أرض ارتحالي فما شاء من علم وما دار من يد فما احتال من مجد فدون احتيالي وليس وكثير مولى مرابة ترى جوهر المكنون في كنز مالي تصرف مولانا الإمام كما يرى مستويات هذه رمز قالي فللروح نور ما وللنفس عدة وللقلب حب في صنن من جمالي وللجسم من كل العدا طيبات ويجعل مهن رزقي دون حلاله بذاك عما فرضا وصانا موطنا وأبعد كل منهما li ma bëgg a dégg ok. Ahmad lii cheikh di woy bu la ko sëriñ bi di jàngal jar na naaw cheikh nee na Sayid Cheikh Ahmed Tidiane si nee na cheikh Alhaaji Malick bi mu fi jógee ki ko donn te bàyyiwul dara taxaw ci ginnaawam ba grade yi ñu tapp ci Maodo yëpp boo xoolee ci sëñ Babacar si fekk ko ca Sayid Cheikh nee na kooku kooku mooy Babacar si moo wutu Maodo ne lii ma lim ci Maodo yëpp boo ñëwee ci baba si fekk ko fi li nga ma doon laaj Mouhamed wax naa la ni Serigne Cheikh nee na li tax xale yi sopp Cheikh Serigne Babacar si mooy bu xale juddoo yow jigéen ji sopp Cheikh Al soo am soo wannee lor egg ca hôpital ba doom ja war a juddu Serigne Cheikh nee na su doom ji juddoo bala moo namp weenu ndeyam meew di génn ci lay namp cofeelu Serigne Babacar Sy da koy juddu waale nee lu njëkk ñuy namp seen meeni seen meewu woy ci lay ñu nàmp cofeelu sëñ Babacar Sy moo tax bu ñu juddoo rek xam kuy sëñ Babacar Sy Mouhamad bëggoon naa laa wax ni la ñetti prime sëñ Babacar ya waaye comme temps bi mayewu ko xëy na dina fi xajaat moom sëñ Babacar Sy daal tariqa bi bi yor yaa tax ñun ba joo yu nu maw desi ñun du nu xaare yaa ma ci xalifati Sëriñ Babacar yaa yor tariixa bi yor sariixa yaa yor leneen yaa tax mbay ba joo yunu maw desi ñun dunu xaare Sidi Faagay Sidi Faagay de ba ma ca jiwaar yaay sama sëriñ yaa خليفة يا خليفتي جاء wasinti fi ñun xalifa nu doy nañu leen ko ziyaare mu jàlle noo ku ko deful mm. ëllëg dina reet yow ñun du xaare ca jiwaan lay lay yaa xalifa yaa xalifa Tijaan maami borom daara ji ku la tooñ nga baal ko sa martaba ak say ndigal duñu suuy ndeyaay xalifa Cheikh Tijaan kosa martaba ak sey ndigal dunu suy ndeyaay xalifa Cheikh Tidiane maami kala bay kala yaayaayu daara maami sonna fasi al amin ki tax buur la bu xëy bindi jaam ñee Sidi Faagay Sidi Faagay dem ba ma ci jiwaar mooy suñu maam yaa xalifa yaa xalifa Tijaan ci xol yee raw na suukar jóg leen màggal ni mu mel ci yee raw na suukar sëriñ loxo ca kaw sëriñ Babacar ni nga mel ci séeréer yi raw na suukar feeñ ci ndox duma laaj nde xam na ale pasooy dunu xaare yaa sidi xalifaati ja ñun daal ñun bëgguñu alal ñun bëgguñu daraja xam nga lan lan bëgg bay jël ndaw ñi ak mag ñi jox maam xalifa suñu maam la sidi faagay sidi faagay dem ba ma ca yaa xalifa xalifatyi xutbul xaafiqayni daan nga damay ñaan ñi ci grand plateau bi ak ñi may seetaan ku wax daan nga yal na fi corona bi jóge xutbul xaafiqayni daan nga baynal mashriqi yaa leen gën yaa leen man daan seede leen loolu xutbul xaafiqayni المشرق moom la yaa leen gën yaa leen man daan nga seede leen loo ay waay ku ne am nga ko maasel daan nga sëriñ Babakar Si mook tey siir ñoo maase daan nga seede leen loo la بين المشريق واو يا لين جن daan ga seede leen loolu moo tax alaaji dut kenn mbay ci yow laa dégg nga ni Sëriñ kër siidil Haaji Malick ba mu nekkee ca ndoom ba sànjiri wala allar ba falan ko fekk muy jeexal tey siir ci bayit bu mujj ba ma nga naan fafir lana waliman salli ala sajidin xablal warafala bi safi miati min rabbi yàlla ñu fekk ko fa ni ko soxna Roqee Njaay am na doom bu góor mu ni Babacar ma ni ku ne am nga ko maasel waar nga sëriñ Babacar Si mook tay siit ñoo ma seedaana seedeleen lool <laughs> donc di di remercier rek parce que ñu internet yi ñu ngi kontaan ba mënuñu ñu ngi kontaan fu ñu toll seen xol yaa ngi sedd guy ñu ngi koy gis ci réseaux sociaux yi mais di di jaajëfal quand même euh, Thiané Gueye mu Serigne Babacar moom mu ngi nekk ba New Delhi foofee ca Inde mu ñuy suivre di remercier aussi suñu collègues yi ñoom Abdoulaye Mbow nga xam dañoo jeex tàkk ci sëñ Babacar euh, donc euh, damay bàyyi Cheikh Sarr moom tamit dafa am yóbbante bu mu ñuy baaxee laata ñuy dellu ci xalifa mi ngi noonu jërëjëf soxna Ndeye ñu ngi gërëm bu baax a baax Abdoul Aziz Doucouré mm. xel dafay dem ci Cheikh Tahirou Doucouré professeur bu mag bi euh, ki nga xam ne moo di soxna Khady Wade bijouterie Serigne Babacar Sy joxe na téeméeri junni daal di jël juróom fukki jox ko suñu baay du kenn mbay jël juróom fukk yi daal di koy jox ki nga xamante ni si moom ñi nga xam ñoom ñooy ñooy ñooy ñooy conférencier yi. mu nekk loo xamante ni si addiya Seydi Aboubacar si la ko def. moom mm-hmm. soxna Khady Wade. Mm-hmm. Euh, bokk na ci laaj bi nga xam ne bëgg naa ko laaj ndax gis naa ni caat da koo cof. Euh, téere bi nga xamante ni si moo di Taysiir xale yi tey bëgg ko lool nga xam ni Seydi Aj Malik ba mu koy bind ci ixfir li ummati yi warham bi ummati wastur laha wajburan xarabi allah ñëw ci tamawajal bahru bahru zambiya sixati wa innani rabbi xiftur xaray xayallaahu ñëwaat ci fana dinaa yaa xalixal cheytaani min kaydi wa salla bil imaani wa jawrati sutaani wal jiraani ya rabbana wa lafxati wa kullu mu'dilin an taa'ati ya rabbana faqdi lana al-haajaati wa sahhi kulli haasidin wa haasidatin wa kaydi kulli kaa'idin wa kaa'idatin loolu loolu loolu wa kaydi kulli kaa'idin wa kaa'idatin wallaahi dëgg la xam nga loolu da koo cof mais bëggoon nañu mu wax ñu taysir bi nga xam ne dafa maase ak Seydi Aboubacar si ak ni ko moustarchi dañuy bëggee nga xam ni aljuma jot ñu def seen i kuréel jàng ko loolu bëggoon nañ ngeen waxtaanoon ci waaye waxtaanoon tamit ci jukkay Seydi Aboubacar si ca ngor ga ca jom ja fulla ja waaye ca li nga xam ne moom moo di wor ma ak li nga xam ni moom moo di euh, euh, nu ko mag ñi waxee mooy maanaam euh, bonekaaram ba nam ko nam ko fonkee woon mhm. nga xam ne mosu ko boole beneen bonekaare mhm. ni nga daan jëfandikoo daal ni mu leen fonkee woon. te boolewu leen ak dara loolu yëpp bëgg nañu wax waxtaanal ñu ko ci Seydou Aboubacar si. xam naa dañuy jox dañuy dañuy jox dañuy jox imaam Khalifa. dañuy jox imaam Khalifa Ndiaye waaw. laata ñu ñëwaat ci sëriñ euh, Khalifa xalifa mbay sëriñ Khalifa Ndiaye. waaw. na sëñ Babacar décortiquer tey siir bi. ba pare comme laaj boobu daf fi dugg. te bugguñu mu mu mu rëcc. dañ bàyyi mu décortiquer tey sir bu paree nag sëñ Xalifa ñëw ci. may nañu ko incha allah. waaw xam naa pour être honnête nag suñu waxtaan wi dañu guddee egsi waaye daf doon jaadu bala ñuy ñëw ci plateau bi ñu waxtaan. kenn ku nekk li nga ëmb pour ñu mën a xool nuñ koy organiser. dëgg parce que man maa ngi programmé woon indil leen sëñ Babacar si radiyallahu taala anhu bi mu nekkee ci berceau ba biñ ko dugalee ci bàmmeel fan la jaar tur yi mu fi am lu waral Maodo tiim ko tudde ko Babacar hmm. Abu Bakr ni Siddiq ñu naan ko xalifa ba yàgg sax ñu ne mbay daan nga nangam nangam hmm. yooyu bëggoon naa ko jàngale ndax man tam ci sama vocation manewuma nenn ni manewuma kom yii ñoom Abdou Aziz ma ne ñoom ay xale lañu euh, maa leen jàngal nag. ñu ñu ñu tolloog seen jamono. dafa am fu ñu la dafa am fu ñu la dencaloon ndax man euh, xam naa mii ne ngi waaye man mën naa jàpp ni ci sa njaboot laa bokk am na fu ma la dencaloon ci wàllu euh, spiritualité. ruuxiyan ak minal minal minal mahdi ila laxd boobu dañ ko dencoon dafa aju ci ne rek boo dajee boo tegee bool. Euh, gars yi seq ko ku nekk waaye yow am na am na fu ma la bokkoon mhm. ndax nag euh, xaw ma dee nañ ko de gàmm la de ba fajar lañ jëm de pap waaw xam loolu moo tax man yi man yi suñu waxtaanoon rek yoon yooyu yëpp dañuy seet nuñ ko seqi sëñ bi nga baal ma sëñ bi nga baal ma dañuy dem juste Fass euh, jëli dañuy dem Fass ci kër Seydi Jamil jëli Serigne Ahmada waaw ñu ànd ak moom laata ñuy ñëwaat bàyyi la nga eh. yeggali sëñ bi ñu ngi lay nuyu nga baal ma dañuy dem Ahmada ñu lay nuyu baax di la ziar wallaay ñu ngi lay nuyu di la ziar. awuzu billahi min asheytaani rajim. bismillahi rahmaani rahim. awnaka yaa muinu wa bika nastainu bismillahi allazi ma ismi sheyun fi l ardi wala fi sama wow sami alim wala xawla wala quwata ila bila ali azim fa sa yakfikahum llahu wa sami alim alhamdulilahi rabil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalin sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashaabihi wa man tabiahum bi ihsaanin ila yawmi diin wa radiyallahu an cheikhina wa sayidina wa wasilatina ila rabbina abi abbasi ahmad tijaani sharif radiyallahu taala anhu an jami xulafaahi ridwanullahi alayhim ajmain wa nafaana allahu bi barakatihim amin mbokk yi plateau bi di waa grand plateau ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci weer bu tedd bii. di shahru ramadan al mubarak mi nga xam ni mi ngi nekk ci yoonu jeex eh, di nuyu. di yëkkati kàddu yi ci suma ndigalal kilifa di Cheikh Seydi Mouhamadin Mansour Sy Djamil e, di ko yëkkati ci turu njaboot Seydi Hadji Malick yëpp la ko dalee ci sunu wayjur di xalifa bi di Seydi Aboubacar Sy Mansour ak mboolem rakkam yëpp jaal ko ci sunu wayjur sëñ Papa Malick Sy mi nga xam ni tey mooy porte parole kër gi waaye itam mooy xalifa Seydi Aboubacar Sy radiyallahu taala anhu mi nga xam ne moom lañ jagleel guddi gi fa tabarakallahu ah, di nuyu mboolem njaboot Seydi Hadji Malick yëpp sunu bàyyi Maodo Hadji Malick si bu maam Abdou Aziz Sy radiallahu taala anhu ak sëriñ sunu wéyjur sëñ Mbay si Abdou ak mboolem seen rakk yëpp ak seeni njaboot yëpp di nuyu njaboot sëñ kër Si ñi nga xam ni ay doomam ñoo leen meññ di sunuy ay mag di sunu ay rakk fa tabaarakallaahu di leen nuyu di leen ziyaara ah, di nuyu waa plateau bi yëpp nag di nuyu eh, ki nga xam ni mooy kilifa télé bi di Hadj Bougane Gueye Dany eh, di ko di rafetlu taxawaayam ak ci liggéey bi nga xam ni moom lay liggéey di leeral li nga xam ni mooy jaar-jaaru kilifa diine yi ci réew mi fa tabaarakallaahu di eh, fa tabaarak eh, ñi nga xam ni ñooy organise émission bi te soxna nen Aïcha Ba di ko jiite ànd àndante kook ñam ko àndanteel mel ni sëñ Mansour jóob jërëjëf si. ak euh, ñoom sëñ Cheikh Sarr. ak ki nga xam ni suñu doom la di sunu lépp di sëñ Mouhamed mbay mm. di suñu dundu nag suñu mag di Ablaye di sëñ Alaaji Ablaye Mbaye Péex di rafetlu taxawaayam E, bi sunu waajur bi duggee sànq di sunu waajur xaaji Mansour Mbay e, fa tabaarakallaahu kàddu yu mu fi yëkkati rafet na lool. wallaay di nuyu nag ñi nga xam ne ñoo bàyyeekoo Tiwaawan di sëñ Xalifa Ababacar Mbay macha allah. Mm. ak ñi ay rakkam yu tedd yi mu àndanteel di sañ dut kenn mbay ak sëñ Cheikh Ahmed Tidiane mbay ak sëñ Maam Malick mbay di nuyu sëñ Abdou Aziz Doucouré fa tabarakallahu ak ñi nga xam ne ñoo ñëw ci jataay bii di sëñ Babacar di imaam Babacar Ndiaye ak mboolem ñi teew ci plateau bi yëpp fa tabaarakallaahu ah dañuy wax li ñu la li li li waajur ba Seex Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum radiyallaahu taala anhu daan wax ni hmm. bu fi yemoon sax neex na fa tabaarakallaahu ay yàlla nañ ko jëriñoo ñun ñëpp ci ci ci darajay sayduna muhammad sallallahu alayhi wa fa tabaarakallahu jataay bi ah daf ñuy delluwaat daf ñu delloowaat ci baytu muhammadu busur yu ba nga xam ni moom la ubbee woon burdu bi ni amin tazakuri jiraanin bisi salami mazajta dam an jara min muqlatin bi dami Muhammadu Busiri dafa wax ni radiyallahu taala anhu am mazajta ndax na nga jaxase dam an rongoñ jaraa bopp mi ngi daw mi muxlatin ci nag yu bët ndax na ko jaxase bi damin ak deret maanaam nga nekk ci tristesse <coughs> di jooy ba sa ba sa bërët xonq ba sa ba sa xonq coy ngir lan min tazakuri jiiraanin mm-hmm. ngir fàttali ko ay dëkkandoo bi si salam ci parax bi ñuy wax si salam te diggante Màkka ak Medinatul Munawara si Malik waaye ñun na nekkuñu Màkka ak Medina min tazakuri jiinaanin bi Medinatul Tiwaawan yi ci bërëb bu ñuy wax Tiwaawan am dëkkandoo bu fa bu ñu fa nekkaloon suñ koy fàttaliku nekk ci tristesse nekk ci mélancolie ngir cofeel bi ñu ko ëmbal ak namm bi ñu ko namm muy sëñ Babacar Si radiyallahu taala kon fa tabaarakallaahu macha allah kàddu yi fi jib bégloo na képp kuy soppee waxuma sax sëñ Babacar waaye képp kuy soppee yonent bi salaa salaam rek wala képp ku képp ku bugg lu baax sox soxal sedd na tey liñ ci wax nag mën na am sa du bare ndax sëñ Babacar kenn mënu koo ba jeexal ko fa tabaarakallaahu ndax doona yonent bi sallallahu alayhi wasallam lañu ah te nag seen ngëneel du jeex mukk ba tax na koon lu sunu waajur ba si alaaji Abdou Aziz si radiyallahu taala waxoon di di di di sunu maam dafa wax ni yéen ñépp su ngeen jëleen jëloon su ngeen jëloon seen cofeel ci sëñ Babacar Sy radiyallahu taala anhu teg ko ci balance foofu sama cofeel teg ko ci beneen plateau bi sama sama cofeel wat seen bas dëgg la. sëñ Moustapha Sy radiyallahu taala anhu bu mu déggee wax jooju dafa wax ni sama papa wax na ju rëy wax wax na lu rëy waaye li ma koy li ma koy nangoo mooy dafa woy sëñ Babacar woy bu rëy ba pare nag mu wutal ko baytul xasida ci biir woy bi ci biir waay boobu yi da ci way mooy bayit boo xam ni bu ñu faroon way bi yëpp ba ba ba ba yëpp ba ba woy bi yëpp jeex mu des benn bayit boobu kese bayit boobu dana mën dina ëmb maanaa woy bi yëpp boobu maanaa way bu du deñ moom loo tax mu woy ko ba pare wutal ko baytul xasiida sunu mbokk yi wane ko fi sànq. suma juumul. niw yaa waarisal xubbi. xut bi ak maamam. teewul ak maamam. tu sa baay. al macha. te wuutu sa baay. ixi fil dëgg la yaa tabarakallahu tut bi ak maamam teew tu sa baay شيخ المشائخ في الإسلام دون فخر يا وارث القطب أك سممنا يا وارث القطب أك مامم تيوت يا وارث القطب أك مامم تيوت tusa baay cheikh al mashaayixi fil islaami duna faxar si Malick wa uh-huh. tabarakallahu waaw waaw waaw si bismillah Seydi Aboubacar mm-hmm. sama maam mm-hmm. sama maam Seydi Xaaj ah, sama maam Abdou radiallahu taala anhu waaw da ko wax ne yaa waarisal xub bi mm-hmm. yow mi nga xam ne yaa doonu xutbu ba te xutba moom mooy Cheikhuna Tijaani radiyallahu taala anhu ak maamam te maamam mooy Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te wuutu sa baay su sa baay mooy Seydi Haaji Malick si radiyallahu taala anhu mu ñett yooyu ku leen dajale kon yaa cheikhul masaayixi Mm-hmm. yaay sëriñu sëriñ si. Mm-hmm. si Malick. fi islam yi duna faxar. Mm-hmm. kon nag fa tabaarakallaahu. jërëjëf si. ñu dollee sant yàlla. ci li mu yàlla boole ci njabootam. Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha radiyallaahu taala wax ni. kër gi bëgg ko taxul nga bokk ci. yàllaa la ci boole nga moo tax nga bokk ci inal euh, inal duxula uxaya fi tariqatina fa bi machiati laa bi kat di jusmaani dugub ci tarixa bi wala egg ci tarixa bi nekkul njàmbaar nekkul pexe mu rëy nekkul am sañ-sañ tabaarakallah ci coobare yàlla la aju. Mhm. si Malick si Malick tabaarakallah kon nag ñu dollee sant bu baax. Mhm. walaay si si. xam naa nag liggéeyu sëñ Babacar yaatu na. Mhm. Ah, am na lu fi dox bare na. waaye xam naa bëggoon naa tuuti. ñu xool sëñ baabakër si. ak wàllu daaira ndax macha allah. Seydi Xaaji Malik radiallahu taala anhu sëñ Moustapha nee na daayira mooy ñoritalu liggéeyam macha allah tubaarkalla sëñ Si bu mu ñëwee nag ci wàllu daayira la yëngu defe naa dut kenn xaw ma sa bàyyi ko way wala keneen a ko way kay way ba ba wax nga yaa daayira yi yaa yor yaa yor ñoñ daayira yi. yaa yor ñoñ sariya bu yaa sellal li Maodo. jërëjëf si. mbay min tiibi max naaw. docteur tariqa bi. bari fay tànk ay fa. mbay min tiibi max naaw. kuy kontar daayira yi. danga jàngul xilaasa ba ci buntu mu zeynatu mbay min tii bi max naaw mooy docteur bi waaw wallaay bari fay tànk Ah. bay min tiibi maxnaa yow jàngal muusayinata xam coosaanal daayira xalifa roy sunna si yoon nen mbay min tiibi max naaw nan dem siyaari mbay mooy docteur bi waa wallaay bari fay ah. min tiibi max naaw boo ko jàngee mbooloo ah. sunu yar neen ba bu ñu demee gis ko saalu mbay mbay min tiibi max naaw jërëjëf sëriñ bi si Malick bëggoon nañu. macha allah kon kon si Malick. bég ci yow lool macha allah allah. dara gënul. ñu ngi wootee ci sëriñ Babacar di ci waxtaane sëriñ Amada bu sëriñ Moustapha bu sëriñ Babacar jàkkaarloo naa ñun aajo ji faju na. wallaay wallaay nu bég si Malick ndax li defal dafa rëy ci ñun. Euh, dafay sant nag dafay sa mhm. taalibe di sa doom nga mhm. indi ko fii ci kër gi mhm. si Malick te li nga ko yare mi ngi fi moo tax euh, bugguñu la woon dagg sax waaye dañuy ñaan nga yàgg fi lool yàgg sa mag ju baax ji ak diine ji ak lislaam bi bég itam ci sëñ Babacar Sy Mansour xarit sénéral mbét ci Serigne uh-huh. Pape Malick ak njabootu Serigne Babacar yëpp tey. Uh-huh. Uh-huh. ndakaaru dundaat na. xam naa tey ku yeewoon aram ajal fa aram jéen. jësën fa mu tëdd ca yoof aram jéen ña ngay waxtaane sëñ Babacar ndaw néew bu muuñ. lépp lu aram jéen ma sa wax. baa mu ko bu dee barke sëñ Babacar sëñ Abdoulaat nee na ko xaw ma leen de waaye de ku bëgg sab sëriñ nga moo tax. nu bég si waaye bég nag ci sa doom yii kii doon baatare léegi di ñaaxarañ loo dafa bëgg sëñ Babacar ba ci moom uh-huh. ak sama doom yi bopp jeemu àndal di Cheikh Tidiane Samb doomu seex Samb bu mbuur uh-huh. moom it di kenn uh-huh. waaye nag am teraanga yu fi jóg te sëñ Babacar tax teraanga boobu kan moo ko yëkkati Mbay Jóob Sataar soxnaam soxna Ami Samake moo ni daal ku te ku xam mbay xam ni mel ak Cheikh Ahmed Tidiane si danaa di wax ni nag ni mu ngoog danaa di wax ni lu mitti dalul sëñ Babacar lu mitti mooy la maasee ki nit ñu bàyyi la xel ba noppi nga dem ñu gën la doom dalul sëñ Babacar doomam yëpp jox nañ leen respecté waaye ki ma ci gën a daaneel mooy borom daara man dama ñëw Tiwaawoon si Mali mu ni ab jóg peex jógal taxaw yónnee woon naa tey damaa amul carte. bu wat bu jëli yéere ba mu nu ma jógal taxaw dama lay solal mbu mii daal di yëkkati ni ma million laa ci boole juróom benn fukki junni la yor mu ni gouverneur kees yow yaa ngi fukki junni génne ko. mu ni Jóob si yow yaa ngi ñaar da bàyyi sa xaalis sa kër ga ma lebal la yow sa xaalis di ko lim. ba xaalis ba mat mu boole million ba ak ma jox ni ma sama ñaari baay yi nag yi ma dese moo tax ma teral la man ko yu mu doon mun ma sëñ Thialiou ak Cheikh Mamadou Murtada moo tax plateau yii dafay dundal bokk gi waaye tarixa kenn du ko defu yet di ko xeexe macha allah papa dëgg la macha allah papa yéen bëgg nañ waxoon naa nag président Abdoulaye Wade wax ko président Macky Sall mi fi nekk ñeneen ni leen maa ngi mbay Mbaye lu tarixa lan tant que suñu tarixaa ngi dox ñuy wax moo tax chef d'état bu fi ñëw ànd ak ñun ndax si jaaji Malick ak sëñ Bamba fokk ñu suñu dënd yi dañ koo foore neneen jërëjëf papa mu yebal nag kilifa gu mag mu di ko indi jox nu ko mu ni téeméeri junni yooyu. moo ko def ci sëriñ Babacar. macha allah bu ñëwee ñu teg ko seen loxo fa tubaarkal. macha allah donc ñuy euh, jaajëfal bu baax a baax. xaaj Mansour sëriñ Ahmada Si maamu Pape Mactar Diallo bi nekk ci kër gi donc euh, sëñ bi ñu ngi lay jaajëfal bu baax di la remercier euh, sa sa li nga fi indi woon am na solo lool ñu ngi ci delloo ziar bu baax a baax ci noonu xaaj Mactar ma delloo la ma delloo la kàddu xaaj Mansour. <laughs> ma delloo la kàddu ji. ñu ah, ah. ñu bàyyi suñu papa mu mu ñu. ñu tontu question incha allah ñu bàyyi suñu pàpp Ahmada mu mu tàggatoo mbooloo mi papa ñu ngi lay déglu. waaw damay tàggatoo rek di di sant di sant euh, Abdou Aziz Ndiaye ndax sànq moom moo woo téléphone. xamal ma daal ginnaaw ñu ngi waxtaanee sëñ Babacar Sy radiyallahu taala anhu bu soñoon laaj ci biir émission bi ma def ci sànni ci kàddu. waaw macha allah. di sant aju bu xaan bi xa aju bu gaan di di ko di ko ah ni ko Baye Mbaye Peex waxee léegi. maa ko dénkoon Mouhamed Mbaye. gis naa ni mu ko téyee. rëccuuma ko de. téye boobu nag. maa ngi koy doolee dénk xaaju euh, bugaan moom itam. waaw waaw ak mbooleem ñi nga xam ne ñoom la séqal mbir mi. kon fa tabaarakallaahu xam naa li duf ci nag bi xaju ci cin li. ah dañuy yemale kàddu gi foofu rek. di ñaan yàlla yàlla na fi yàlla jële mbas mi. jërëjëf papa. te mbas mi nag yàlla na doon ab sang ci réew mi. amiin. ni ko sunu waajur ba seet si Ahmed Diagne si am maktum waxoon ni ni nañu sang réew mi. Uh-huh. ah macha allah kon lii fi jaar yàlla na fi yàlla fi yem. li mu jot def ci dégâts yàlla na yàlla yemale. te yàlla doon ab sang boo xam ne dañ ko sang réew mi. amiin. bu fi réew mi jógee ji am am un nouveau souffle. Mm-hmm. am un nouvel élan. Mm-hmm. vers le développement. jërëjëf papa. lépp nag bokk xol yu ànd nekk benn. merci papa. ndax ndax ndax tabaarakallaahu ñaan yàlla yàlla dolli sutura wa asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa salaam wa rahmatullah euh, kon ci noonu dafa doon euh, suñu Serigne Khalifa Mbaye da doon tontu ci euh, laaj bi ñu la laajoon papa tabaarakalla sëñ Mansour daane wax ni mbir mi alaa daw mhm. sëñ Abdourahmane Mbacke bu sëñ Kosaas Lo dafay xaritam mu woo Abdourahmane ni ko ndax yaa ngi seetaan Abdourahmane ni ko maa ngi seetaan munu ko dama bëgg a yónnee léegi xaalis ci biir ko maa maa koy làmb jo dem taal sama oto joxeel la ko ndax sama maam la ñuy waxtaane doomu sëñ Kosaas Lo moom moom sëñ Modaw Balla moom Thierno Birahim ah. moo ko jox téeméeri junni yi. mu ne moo ko teg ci loxol dudd kenn mbay. ak magam yu euh, magam yu mbay. ak ma rakkam yu baax yi. téeméeri junni la. mbay Diop Sataar nag dafa seey. si Cheikh Ahmad Tidiane si. dëliñ kóor. wallaay bëgg ni kóor bañ ni kóor. Roxe Ndiaye Ali Boy Mikel Sambay Naar Lat Joor dafa dem si toj ko jël ci ñaari jigéen Selbé ak Faati Cuuk Faati Cuuk Lat Joor jël ko am ca Bambi Faati Cuuk Selbé mu jox Ablaay Wali bi tuxuma borom day nekk la ca jaxaaw maam ca maram Selbé maram Selbé màgg baax ñu yow jox ko Alaaji Abdu Kan maam ci Soxna Astu Kan ñu jox ko sëñ Babacar maam ci Cheikh uh-huh. ak sëñ Abdou Asim mi fayee maamam uh-huh. baayam ak Pape Malick Thiat ku yónni yoon bismillah mu yoon xabru ya ñu dellu ci bu nit faatoo. Ah. yoonu xabru ya mokk. ka dem a baax. waaye bu sigil ndigaa la bare kam bàyyee baax. ñu delloo kaddu gi euh, imam suñu sëriñ Khalifa Mbaye. waaw xam naa bala ñuy tontu euh, laaj boobu. Mm-hmm. ma sant ci. turu sama rakk yi ma àndal ak Abdul Aziz mi nga xam ni maa ko yar maa ko jàngal mhm. ñu sant ñi fi yónnee ay teraanga yépp wante nag ma profité ci am lu ma jàngale mhm. dama dégg Abdou Aziz Mbay sunu baay bii nekk ci kanamu tariqa bi di Pape Serigne Mbaye Seydi Abou Bakar maam Mouhamad Mansour sant ko mu way xilaas ñu way xilaas bi ba mu jeex bi ma ko dégloo fekk papa si mii di sunu caat am tuur mm-hmm. ma ni Abdou Aziz dina ci ñëw ak Ahmadou ma ni sama yalwaan ji nga xam ni nii lew na ma ndax sama pension la sama turandoo pension la daan dunde parce que fonctionnaire la woon ah nekkoon na interprète ci bureau ndar sëñ sëñ Babacar si lañ ko ci daan fay lool rek la daan dunde su ko raxee dërëmu taalibe la koy booleel waaye musula lekk lu lewul ma sama pension boobu dinaa ko séddale Abdou Aziz ak Ahmadou bi ndax lan Sénégal lii ngeen doon def nii ñuy wax ci ku toll ni sëñ Babacar Sy radiallahu taala anhu mhm. te kat billahi lazi laa ilaha illa huwa wutuma ci nit ñi dara waaye képp ku jël sa alal mhm. fekk kuy tagg yonent bi sallallahu alayhi wa ngay tagg ci surgaam yi nga jël sa alal jooju ko joxe ko ci xol bu sedd doo dem safara mukk te dootoo ko jàkk ma ni kon Sénégal taggkati yonent bi sallallahu alayhi wa ñoo fi waroon a gën a riche moo tax ma jël sama pension séddale ko Ahmadou ak Abdou Aziz terale leen ko ma ni nag est-ce que nii bu ñu ko continuer ci senegal ñiy woote seen cofeel ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam est-ce que su ëllëgee du ñu am gàcce ci kanam yonent bi sallallahu alayhi wasallam dëgg la kon ñiy wax ci diine mhm. di wax ci yonent bi sallallahu alayhi di wax ci nit ñu baax ñi suñuy baatare ñooñu la ñu war a baatireel dëgg la moo tax ñi fi yónnee teraanga yépp ñu di leen sant ci soxna euh, nu mu tuddati sama ah, samake soxna ami sama samake mu mujj ki jëkk a joxe soxna xadi wadd soxna xadi wadd soxna xadi ak ñaa xariñ loo mële suñu xarit bële nga sëñ Baaba gis naa ko mu di ko mu di ko baatere uh-huh. wallaay moom noonu lay kii nga xam nag ni uh-huh. sama soxna su bopp la man <laughs> ndax Mbay Jóob moo mu ñuy wax maag moom benn benn lañu ay xarit lañu sëñ Cheikh Tidiane si moonu takke radiallahu taala anhu kon su fi soxnaam yónni hmm. moom def na li ko war yal na ko yàlla fay sunu doomu sëriñ bi bi ci teg lim ci tegit ñu ngi leen di sant waaye dama naroon bàyyi ba ñuy tëj ma soog a dugal yenn yi waaye comme dugg naa ci foofu ngeen may ma rek gis nga plateau bi. Alima Ndione Alima Ndione na ci ñaar fukki junni. ci ñaar fukki junni. yàlla yàlla fay ñaar fukki junni ci barke sëñ Babacar. gis nga man ñi ma xam. miinuñu ma ci yi. miinu ñu ma ci man dama tànn nag maa ngi ciy sant yàlla nag ak sama barki turandoo ak sama paspasu baay nag li ma tànn mooy jàngale moo tax am na benn chaîne bu may jàngale tudde ko Badaa'iul Maktuumi maa ngi ciy firi xas yi sëñ Babacar si def ak xasida yi sëñ Cheikh Tidiane si def chaîne YouTube la wala chaîne YouTube la. Badaa'iul Maktuum. laa ko tuddee. maa ngi jàngale yooyu. waaye plateau bi gannaaw yàlla li tax ma nangu ko nangu cee ñëw Ahmadou mi wax na ba tey Cheikh Tidiane mi daa mujj ni ma sama bulletin de naissance bi lay xotti. boo ko lànkee. ndeysaan sama doomi sëriñ yi. Mm. ku nekk di woote. soxna kantoom si woo ma moom itam di wax soxna fat si bu bu caatu sëñ abdou bàjjan lalla eh, soxna umu xayri doomu sëriñ moustapha pexe amul ah kenn ku nekk di woote ni ma bi ñu déggee ni yaa koy def nangam nangam amul bismillah waaye gannaaw yàlla leen rek a tax ma nangu ko nun ay gor lañu wallaay ndeysaan sama baay tarbiya la daan defal sëñ Babacar Si te mosu ci wut dara kër gu parewul sax la fi bàyyi te kër googu sax maa ci reyanteeg moom ci mu ci mu ci mu góorgóorlu ci waaye alaaji ale njaay lay waxtaanal bis maak moom ak mun njaay mu ni ma sa papa ndax dinañ ko jox nagu gàmm ma ni ko mosu koo laaj kenn mosu ko koo jox sëriñam yi nag yéene nañ ko waaye du ko laaj de mu ni ma maa ngi jox nagu gàmmu alaaji Mansour Mbay ren jii dinaa jox sa papa nag alaaji ale at moom mu ko commencé mat na fanweeri at bàyyiwu ko ba ni sama baay sàngoo suuf aka baax alaaji ale alaaji njaay Abdul Aziz mii man ñii laa am sama baay moo ma dénk njabootam yi laata muy dem fukki at ak juróom mu dem ci sama turandoo ni ma sa turandoo laa jóge quatre heures du matin laa fa dem wax naa ko ni ko nu ma fi jëlee waaye nee naa ko ki ma la tudde am na xolu yor sama njaboot nanga ko jàppale loolu moo tax ñii laa am wallaay kon ku leen di teral teral nga ma moo tax bi leen Abdou Aziz dee teral teraanga yi mu leen di defal te plateau bi mu def ci lim ci def ak yéene ma ni leen ah su ma ko gantoon ak duma doon kon maa ngi koy sant moom itam ci loolu di sant ñëpp ma mhm. tontu nag tontu question bi nga laaj ci sëñ Babacar Si radiyallaahu anhu ak Taysiir mhm. xam nga papa si daf koo way rek ni ku nekk ak loo mbaaseel yonent bi sallallaahu wa sallam bi ñu koy tagg ñu ni at mi mu ganee àddina ca la ñay wa doon màbbe mhm. si kaaba amul fiil muy amul fiili mhm. ñu ni am na benn biddiw bu ñuy wax al mustari al mustari mhm. ñu ni bi yonent bi salaa ga ganee àddina la biddiw boobu feq tuluuhu wa tuluuhul mushriq tarana waaye kon nag taysiir bi maase ak sëñ Babacar Si radiallahu taala anhu nga wax ci itam li nga ci wax taysiir lan la ah ma ni baal ma def xalifa la bëgg waruma laa dog sax waaw waaye soxna mu kal soo mbay kala waaw bu sownum lu xayri bu sëñ kër Si waaw nee na ma wax la ni la nday as su doomam ca Amérique mm-hmm. waaw yónnee nañu cinq cent mille téeméeri junni mm-hmm. nee na juróom fukki junni yi jox na la ko yaag sa yarak ak ñi nga àndal mm-hmm. nee juróom fukki junni yi jox na ko waa plateau bi. Mhm. nee na naa ko jox numéro Ablaye Alaaji Ablaye Mbay Peex. Mhm. bu subaa moom moo koy dugalal lim koy dugalal. incha allah si moom itam ñu ngi koy sant. Mhm. ndax nag seen maam lañuy wax. bu ci ñëpp defee ñoom itam macha allah na Aminta si xalifa. ca suba la ma la ma yónnee ndaw. ni ma dinaa woote. xam naa comme dama tëjoon sama téléphone bi. waaye ñoom ñëpp ñu ngi woote. Mm-hmm. Mm-hmm. waaye ma ñëw ci taysiir boobu. Mm-hmm. taysiir lan la. Cheikh Al Hadj Malick radiyallahu taala dafa fekk comme li ma doon wax ci chiyamun tuxaqiqu jawharal insaani benn per boo xam ni soo ko amee muy perl précieuse ñu ni aman na mënal na la lu ne soo ci amee benn rek doy na Maodo ni perle yooyu dinaa ko nas ab càq ba pare wutal ko diggal mu ni waaye nag bu ma ci yàlla dimbaliwul woon duma ko man moo tax mu jël taysiir ma wax la ni la mbooleem ñaan gu ñuy ñaan ci àdduna mbooleem salaatu bu ñu def ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbooleem lu nit di muslu wala looy soxla lépp maw doon def ci taysiir mhm. waaye lu tax moom maase ak sëñ Babacar Si mhm. radiyallahu taala anhu Pape Khalifa dafa am ñu wax taysiir am ñu wax wasilatul muna moom la ko Maodo tudde mooy tur wi wasilatul muna mooy tur wi wasilatu lan la firi mooy god mhm. ab goj booy wasiilatu kon ndox mi nga bëgg ci teen bi sa loxo jote wu ca goj bee waaye boo amee goj boo jukkee rek naan am ndox mu ni li nga bëgg nag ci sa digganteeg yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndoxum leer moomu mm. nee na goj bi mooy lii moom la moom la tudd waaye nag comme bu ñu koy woy day tàmbalee alhamdulillahi uh-huh. zi taysiiri yallaahu uh-huh. nazma daraari lahu yallaahu uh-huh. nit ñi ni taysiir waaye tur wi mooy wasilatul muna mu maase ak sëñ Babacar Si radiyallaahu taala anhu am na sax ci li ndax histoire itam sooy wax dangay wax rek lu wóor ci nettali am na ñu wax ni bi Maodo egsee ci rabbun tabaaraka mm-hmm. aw rabbun taqaddasa aw rabbun taala uluwan rabbi yàlla foofu lañ ko annoncé ni ko ni ko soxna roxee am na doom bu góor allahu akbar mu ni kon nag Taysiir bi indaale na gan Babacar a ngi noonu akbar mais mais mais mais mais mais mais euh, euh, ilmu tawxid bi bi ñëw ci ginnaaw rabbun tabarak waaw Seex Al Hajji Maalik dafa bàyyi na mu débuté woon ubbi beneen page. waaw ci ginnaaw rabbun tabarak muy abdun zalilun faqirun xaashiun wajilun zu jazin asifun ilayka madda yadda rajal maxfiratan habli musamahatan pourquoi mu am ay tëgg ay ay ay positions yu bëri ci benn téere bu ndaw boobu noonu. waaw gis nga ku man sa yëf day déggoo. ok gis nga soo laajee sama mbokk mi di alaaji Abdoulaye Mbaye Peex su bëggee jot nit dara bëgg mu may ko may gu rëy da koy yëkkati ba ca kaw waaw suuf soo ko yëkkatee ba ca kaw mm-hmm. ah, mu xool la su dee nit ku tedd rekk su lay may dalay may ni mu toll mm-hmm. day moo tax Maodo bi muy tudd yàlla ah, mu ni rabbul mm-hmm. buur a ngi nii boo xam ni tabaaraka moo barkeel te lu mu dugg mu barkeel rabbun buur a ngi nii boo xam ni taqaddasa moo sell te lu mu dugg mu sell aw rabbun wala buur a ngi nii boo xam ni taala moo kawe ci lu mu dugg mu kaweel lu tax aw yi aw yi wala aw aw boobu firiwul sax de du wala de uh-huh. aw jooju wala wa rabbun jërëjëf mbay jërëjëf mbay waaw parce que aw aw day firi xatta. macha allah. aw day firi wa. macha allah yàlla yàlla fayal. waaw aw xaw a tafdila. booba ca fi atun tasud. Mhm. yàlla yàlla fayal. léegi comme yàlla nag moom moom. tabaaraka. Mhm. moom moom taqaddasa. Mhm. moom moom taala. uluwan rabbi yàllaahu. ñaari chaise rek fi nekk. chaise bi chaise yu yàlla la toog na ci. Mm-hmm. yàlla keneen du ci toog yàlla présenté moom itam moom itam mu présenté. mu ngoog keneen dootu ci toog. kon lan moo des beneen chaise bi chaise u jaam la. abdul waaw te jaam boobu kat moom su kawee ci kanam yàlla. mu daaneel ko. Mm-hmm. dëgg la. al insaan sayyidun wa azimun wa rafiun wa wadiun sayyidun tasdaadu siyaadatuhu bil ubudiya بانقياد النفس أو بانقياد في النفس وقابلية في التبعة وتودع ورفيع تزداد رفعته بالوداع بسهولة في الخلق وخفة في الطبع أيدك الله ونصرك يا أبي جزاك الله دوم آدم سنغ لا ci wet waaye jaam la ci wet yëkkatiku na ci wet waaye wàcc na ci wet càng gi bala moo yokk ci moom rek mun nangu ak njaamam loolu moo tax nga gis ku toll ni sunu maam jee ca Touba ah, ak ni mu toll ak ni ko nit ñi yaakaar rekk xam-xam baag leer gaak yëpp. ñu ni ko loo bëgg ñu di la ko woy mu ni xaadimu rasuul xaadi dëgg la man daal buñ may wooyee nañ ma wooyee ki nga xam ni nii mooy mbindaanu mooy booyu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax wàcce boppam rek moo tax boo wàccee yàlla yëkkati la boo yëkkati ko yàlla wàcce la oh. moo tax Cheikh El Hadj Malick ni yàlla moom tabaraka taqaddasa taala uluwan ah waaye ki ki ki keneen ki nag kan la jaam la kon kii la kan la mooy abdun abdun zalilun abdun jaam la mhm. waaye zalilun mhm. bu toroxlu la xaashiun ku ragal la zu jazain da koo booleeg tiit mhm. asifun boole koo metti malheureux ah euh. te yow rek yaa fi nekk yallaahu yallaahu waaye kooku nag lan la def ilayka maddal yada rajaa maghfirati ay yàlla waaw ay yàlla mu ngi la tàllal ay loxo lu mu yaakaar nga jéggal ko ay yàlla waaye hëpp li musaamahatan ah jéggal ma boo ma jéggalul naka laay def parce que fii ma nekk situation bi man ne mm. man xam naa sama bopp te ma wajal baxru zambi yaa siqati géej gi duusu na baxru zambi géeju bàkkaar yi mm-hmm. yaa siqat yi te ci yow rek laa mën a ŋoy wallaahi ah ba duma lab te fa inna nii rabbi xiftul allah ragal naa ni nii dinaa ci dinaa ci lab te su dee gaal sax gaal googu rek doyuma parce que gaal googu su àndul ak sa yërmande. gaal gi toj te su tojee itam mu dig ci biir te wama safinatu turja xeyr rahmatika udman amimati kulla xalqiya kon ashku ila llahi xaaja laysa yarfuha siwaka ya rabbana ya allah ya allah أو رب تقدس أو رب تعالى علو ربي يلا رب تبارك الله رب سبحان الله أو رب تعالى علو ربي محمود عبد ذليل فقير خاشع وجلود جذع حاسف يا الله يا الله رب تبارك امين او رب تقدس او رب تعالى هلو ورفي مموت تما واج البحر بحر الذنب يا ثقتي وانني رب ربي خفت الغرق يا الله رب تبارك الله أو رب سبحان الله أو رب تعالى وربي ممودني إليك مد اليد رجاء مغفرتي هب لي مسامحة يا الله يا الله رب تعالى تبارك الله أو رب سبحان الله أو رب تعالى هلوا ربي من مودنه وما السفينة ترجى غير رحمتك العظمى العميمة كل الخلق يا الله رب تبارك الله أو رب سبحان الله أو رب تعالى هلوا ربي الله آمين أشكو إلى الله حاجة ليس يرفعها سواك يا ربنا يا الله يا الله Alaaji Ali Ndiaye wax na ni mi ngi lay nuyu yaa ak sarak yi nga àndal ak plateau bi yëpp kontaan na moom nag joxe na 4000 euros mhm. nee na jox na leen quatre mille euros addiyee sëñ Babacar. deux millions six cent yaag njaboot gi yëpp. papa ale ale ale Fatim Mbuub euh, doomu Serigne mbay Mbuub joxe na cent mille francs ma nga ba Tiwaawan di nuy Baye Asfar waaye damay ñaan Baye Xalifa mu may ñu rek ñu daal di dellu si ci. Euh, euh, waaw déedéet mani déedéet dafa am yóbbante bu may jox rek. ci Moussa rek ci. ah waaw waaw waaw dafa am suñu benn soppe. Mm-hmm. sëñ Ablaye Mbaye. waaw bu tudd Buna Diop. Bouna hmm. Diop ñu gën ko xam ci Obama. Hmm. dëgg la nee na def na cent mille francs haddiyee hmm. Serigne kër Sy radiyallahu nee na dana la ko yónnee après ñu jox ko numéro ñu jox ko ñu nekk ci jotaay bi teg ko ci loxo Serigne Babacar Mbaye incha allah incha allah Ale Fatim moomu nag bi may ñëw bi mu ko déggee moom dafa bëggoon loolu bi may ñëw daf ma ni maa lay jox essence boobu dafa jàppoon sax ni nii sama oto laay indi yónnee na ma ci sama orange money cinquante mille. kon cent mille yooyu man may naa sama wàll. ñeneen ñi ci des ndax jox na ma cinquante mille. kon nag li ci des jéggal naa leen ko. Eh, nga wax ni nii. tey siir boobu ni ko Moustarchidine yi bëggee di ko jàng. gis nga nit man dama am dama am benn. benn faiblesse ci sama turandoo képp kuy yëngu ci sama xadara turandoo bi rekk loo cay def mu jur résultat rekk naw naa ko dëgg la nag daayira yi bu ci nekk ak ba nga bokk waaye su fekkee ni nii dañuy wax ci Taysiir Maodo mu ngi ko taalif mu maase ak sëñ Babacar Si waaye mag ñi daan nañ ko jàng waaye siiw gi mu siiw nag ba xale bu am juróom-ñaari at mokkal ko loolu liggéeyu sëriñ mustafaa si la doomu Seyid Cheikh Ahmad Tidiane Sy di sëtu sëñ Babacar Sy bi mu nekkee tut tànk moom sëñ Moustapha moomu bi mu nekkee tut tànk la ko maamam daan tëgal naan ko xasiir kañ nga may demal tool xasiir kon kan nga may demal tool bis biñ ko ko nettalee dafa jooy ni dinaa ko demal tool kon nag tey siir boobu la Moustarchidine jël def ko muy seen muy seen muy seen hymne tey siir nag tey siir nag kenn du ko jàng ba pare di ñaan dara looy ñaan rek dugg na ci biir <laughs> oh. tey siir soo ko jàngee ba pare billahi lazi la ilaha huwa tey siir mën naa jeexal guerre wër dinaa ci joxe exemple sama baay jamono bi ku koy sàmba saayang ñëwee Gàmbi mm-hmm. te fekk fa maam Habib radiallahu taala anhu te affaire bi egg foo xam ne nii booba maara day taali sama baay dama woo ma xalifa jële naa ci sa turandoo mu ni fukki taysiir ak benn geer buñ ko jàng mu jeex kon yaa ma seede maa ngi tàmbali taysiir bi lii ci gàm bi bu taysiir bi jeexee yàlla na guerre ba jeex maa ngi toog mu jàng ko ci sama kanam fi mu tëje fukkeel beeg benn di ko jox sama turandoo foofu lañu ñu ni ku koy Samba Sagnang dem na moo tax foofu sax bariwul woon lu ma doon jooy moom sama waajur waaye keroog jooy na moo tax tey siir lépp a ngi ci biir salawaat yëpp yëpp a ngi ci biir moo tax alaaji Abdou Kan mhm. maamu sëñ Cheikh Tidiane Sy radiyallahu taala anhu nee na wóolu na maa jàng tey siir tëdd ci raay bi di xaar saxaar gi mu ñëw te du ma rey waaye nag alfawaidu min al aqaidi comme nag sànq dama leen a waxoon ni dafa am benn jàngale bu ma bëggoon a indi ci sama turandoo fi mu nekkee liir ba bi muy am fukki at bi muy am ñaar fukki at gane gi mu ganee àddina ndar ndar googa géej ga fa nekk ak dex ga lan la joué ci wàllam ak ban symbole la. Mhm. loolu bëggoon naa leen koo indil su fekkee ni nii am nañ. am am na taw feex ndax daa la yónnee léegi. waaw. yónnee mooy yaayu borom kër gi. Mhm. macha allah. yaayu bugaan. Mhm. ndax nee yim nu sekk baayam. sëñ Babacar Si moo ko jox wedd. 1955. macha allah. mu ni ko aadoo. Ah, ba sëñ Babacar di jox sa maam werd day booba télé bii amul mhm. kon boo demee màgg am jom ma ñaanal la ba télé bi am ñuy waxtaane sëñ Babacar mu jox sa maam werd mhm. demal joxeel ma téeméeri junni ma itam mhm. yaay buggaan géey se am na say bu sekk mu ni moo ko def addiyaam mu ni nag gënut a am lu ko neexe tey plateau bii ndax diggante sëriñ Babacar ak Baye gis nga nag sëriñ Xalifa. bisimilah. mbay bég nañu. jazakumullah anna mhm. ku la gën ndey. Mhm. moo la mën. Mhm. nuy jigéen ju baax jooju. yaay caat. di yaay di yaay jur ko yar ko. bugaan màgg faj rangooñam mhm. faj rangooñam mooy ba muy jógee ndar di ñëw mhm. doonul ab étage fii mhm. piliweer la takk ci ndiggam xar baax ak xaru ba baax am mu xaru ba baax ne mi ngi ñaanal doomam masha Allah yàlla musal ko ci cat akum ndog amiin waaye fàttali na tey maamam digganteem ak sëriñ Babacar si. Mhm. ne moo tax mu tax addi jooji. papa mhm. téeméeri junni. nga baal ñu ndax addi ñu joxe itam ci la bokk ñu bàyyi ba nit ñi dem euh, ku nuy wax euh, Mouhamed Samb bu président Macky Sall. Mouhamed ku baax. waaw nee na joxe na cent mille francs waaye nee na loolu alxaaji Dudu kenn mbay la ko jox. Mhm. addi yeey sëriñ Babacar si. ne na ko jaarale ci loxo euh, Cheikh Tidiane Samb. soxna Kalamba it jàll na sànq. Mm-hmm. waaye euh, ministre de la jeunesse. nen euh, mm. ne Fatima Tall. Mm-hmm. moom nee na du wax. incha allahu taala waaye bu génnee dina jëflante ak yéen. xalifa mm-hmm. euh, papa xaara kooku dinaa la ci dog uh-huh. xam nga lu tax. Uh-huh. maa xam nga nu mu tudd. Uh-huh. maa bëgg Maodo. maa nee na Fatima Tall. la Tall ko mbaax. maamam maa bëgg Maodo la. ala wuddi. waaw kon bu ñu wootee plateau bii di plateau sëñ Babacar uh-huh. surtout maa bëgg Maodo romboon na mag tànk googu nee na Fatoumata war naa def loolu euh, xaw ma approché ngeen wax bu bu bu Mayram Faye Sall Babacar fay ak Souleymane fay nee nañu joxe nañu deux cent cinquante mille ñoom ñaar addee baaba Babacar te bu ma ci wax nag man maa koy garanti ndax ñoom ñooy bind te ñoom ñu ngi may déglu joxe nañu Tayaar Samb mhm. chala la Couture nee nañu moom it joxe na grand bubb mhm. Tayaar doomu euh, buri 15 waaw Samb. ndax bu baax waaw bu ci ne day leer nee na joxe na garan bubb mhm. chala la couture nee na yow la ko jox Baye Khalifa Mbaye addee Serigne Babacar si ay ci mu ngi noonu sama set la benn yaay bu nekk Amérique maman Ndeye Diop Eh, sopp ñu lool fa tabaarakallaahu nee na yónnee na cent mille francs ak xaritam bu ñuy wax eh, xaritam fa tabaarakallaahu moom it yaayu Mansour nee na teg na ci cinquante mille francs eh, fa tabaarakallaahu Moustapha Thiane itam bu melax yónnee na teraangaam xamaguma ñaata la nag incha bu subaa di ngeen ci jot ñu jël ñu ci ligne bi yàlla na yàlla barke am na ku nekk ci ligne bi ñu jël ko dellu si waat ci plateau bi asalaamaaleykum yaay Mansour di dama salaam. alo waaw salaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw. soxna si ñu ngi lay nuyu noo tudd ñu ngi lay bàyyi nga bokk ci waxtaan wi. waaw salaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah. waaw maa ñu ngi lay ziar bu baax. di nuyu ñëpp nag. di rafetlu émission bi bu baax. maa ngi rafet bi mission bi farafet yam daal fa la commencé jëm kaw di ñaan yàlla yal na yàlla def ci tere bi barke amiin yaa yàlla def ci xéewal def ci sutura bu ànd ak teraanga ah yéen ngi waxtaan tey nag bu baax bi sëriñ Babacar Sy ndax sëriñ Babacar Sy bi ma amee ñaari at sama waajur feebar ma ci la ma ko may. xëy na li ñu dundandoo bariwul waaye. bari na dëgg ndax ki nga fer ñu may la ko. ndax bi ma gënee àdduna ci la ci la ci la sama yaay ñëw mu bind toqanteel. toon ko ni ko takk naa ci sabar sagar mu ni ko boo feree ma may la ko. ajjuma ji ma fere la lañ ma may sin Babacar. yaay naa ni diiru li ma fi yaroo bariwul la ma fa yaroo waaye qualité yu baax yépp ci moom laa ko gis ak soxna asukan man damay wax ni bu may am idole di ko roy soxna asukan laay roy hmm. ndax moo ma xamal lu baax moo ma yóbbu ma jàng alxuraan naa laxdar yu jàng naa asmaa hmm. yu jàng naa risaala jàng naa ajurum fa tabarakallahu soxna asukan loolu lépp moo ma ko xamal fa tabaarakallaahu fa tabaarakallaahu maa ngi koy ñaanal yal na yàlla dolli leeram te taas na ci bàkkeel benn seede rek laay wax ci sëñ Babacar Si dëgg faam benn góor boo xam ni Saalum la dëkk nee dafa sopp sëñ Babacar mu nekk sëriñam nee na mu xëy dem bay gerte nee na bi mu ko bayee jaay gerte gi gerte gi bi mu ko jaayee xaalis bi di juróom benni junni comme moom daf daan luxus xaalis nee na mu luxus juróom benn junni tekki muy fukki junni ak ñaar nee na mu ñëw siyaar si sëñ Babacar ñëw fekk gan yi ci saal bi fa tabarakallah nee na bi mu nee tëll rek sëñ Babacar dem ci moom ni bu ëllëgatee lu waaye bàyyati ci gerte ba mu te sàkk menn pexe di ko yokk ndax am na loo xam ne sàkk nangoo ko nee ma xaw tiit nag nee bi ma tiitee ñëw nee ñu toog ñemewu maa joxe ba nit ñi jeex nee na suñ Babacar ni ma ah ndongo li jàmm nga am ma ni ko jàmm rek mun ma noo tudd ma ni ko njaga jaw mun ma foo dëkk ma ni ko jatner mu ne ma lan la woon ma ni ko damaa indi sama tool daayira mu ni ko waaw doxal kurdu yi kay mhm. nee na kurdu yi dindi bi mu dindee suñ Babacar ni ko abal ma xaalis bi mhm. bu nee tegg junni mbay ni tegg junni loxos bu nee tegg junni mbay ni tegg junni loxos amu jeex mu ni ko Babacar lii la am droit lekk ko waaye li ci des Babacar amul droit lekk ko. Mm-hmm. nee na ni ko ku la may tarixa bi mu ni ko El Hadj Mor bu mbir glace. mu ni ko ah sañu ma laa yeesal ndax mi ngi dund waaye boo ëllëgee boo ko jëfandikoo ci. Mm-hmm. mu ni ko kon damaa bëgg si nga ñaax ma. lii may liggéey di wàllu xam-xam ñu may fekk si te du ma fekk kenn. Mm-hmm. sëñ Babacar ni ko yomb na yàlla incha allahu sa dund. li ci des yëpp dañ lay fekk si waaye doo fekk kenn. sëñ Babacar nag man nañ cee wax lu bari. Mhm. waaye daal xam nañ ni la sëriñ Cheikh waxoon nit ku yiw la. Mhm. tey Seydi Hadji Malick la mu waxoon ni Malick jurul ku yées Malick. kon njaboot Seydi Hadji Malick lépp la tabaarakallaahu nuyu nañ Seydi Hadji Malick. Mhm. ñoo ngi santaat yàlla nag. jërëjëf Seydi Hadji Malick. ñaan waa télé bi ñaanal bugaan ndax li mënu defal tey ba sunu xol yi sedd. yal na yàlla seral xolam. kon waa plateau bi yépp manuma ñëw nag ba dem te sa santuma sama njaboot bi ci àll bi ne nan bu ngaay neexee neexee tax kon su ma mënee lëkku ci ay daayira di dem ci àll bi di dem ci village bi di dem ci département bi di dem ci commune bi fa tabaarakallaahu fu nekk sama tànk ne fa sama njabootama jàppale fa tabaarakallaahu maa ngi leen di sant mhm. sant Pape Wade fa tabaarakallaahu mhm. Ndeye kontaan nañu. ñu koy ñu koy remercier suñu yaay ji. kala yaya yu daara benn kalabay kenn kala yaayu daara jee kala jee ay kala yaayu daara jee kalabay kala jee ana soppey kala yaayu ku feebar kala seeti na la kala sa tumbay la ku deele kala jaale na la kala sa tumbay la yóbbu la makka nga na leela kala sa tumbay la maam bee xam na la kala sa tumbay lu waay di def boole la ca kala sa tumbay jigéen ju man góor soxna kala la gàmmu ndar kenn mënu kala sa tumbay la jàmmalay kenn la dolli la wér setu mbay la te bay la ci sunu amin kala setu mbay la kala daara je kala daara je kala yaayu soxna mu kalsoom mi doon woote nii rek la mën mel way juróom wu jigéen soxna umul xayri si keroog bi ñu ko dénk dénkee way juróom wu góor alxaaji mbay baasin maam Cheikhou si bi ñu dénkoon soxna Zeynabu si dafa génn fekk nit ñi toog mu ni yéen xanaa yëgu leen li xew. Mm. ñu ni akay ah, lan moo xew mu ni jël nañu leer dénk ko leer te gis naa ni leer lay jur ndax leer la ñu jël donc dénk leer doomu yiw jël nañ ko dénk doomu yiw te yëg naa ni yiw lay jur xat unkiha ummul xayri ñu ni ko kooku mooy kan mu ni ibnul xayri wabnul xayri lépp di yiw kon yiw doo nga ciy juddoo soxna kala ak magam daba ñoom ak li soxna mu jur mënuñoo ñàkk mel nii oh. ñoom du sëñ Babacar lañ nàmp mënuñoo toq mënuñoo wax leneen moo xayra di sa pembay mooy pendal mu gën tubay moo yor waa ñu di mbay est-ce que yi diine jeewalaay xayra di sa pembay waaw mooy pendal waaw moo yor ngi sey dimbay di soppe mbay mooy pendel mu gën tubay moo yor waa sey dimbay yaay na fi mbay xamewul ku mag ku ndaw na fi mbay xamewul ku mag ku ndaw yaay dafa mbay xamewul ku kuma ku ndaw xameewul borom yaay Tamba Mbaye xameewul kuma ku ndaw xameewul borom yaay Kala Mbaye xameewul kuma ku ndaw xameewul borom yaay Babacar xameewul kuma ku ndaw xameewul borom yaay Lesto xameewul kuma ku ndaw xameewul borom loxo ca kaw boo gaaree mën a tege est-ce que soxna umul xayri boo gaaree mën a tege est-ce yi diine jee bu nu bëjante mu sax soo ko yi diine jee bintu mbay neel asmaahu yaay nafi bintu mbay yaay asmaahu yaay daba bintu mbay yaay kala mbay yaay asmaaw bint mbay kontu be li ummi xayri siiti na jee walaay umu xayre di soppe mbay waaw mooy teddal mu gënt mbay moo yor waa ñu seydi mbay est-ce que yi di na jee eh, xam nga Seydi El Hadj Malick daa nur yonent bi ba nuru ko waañ asmaaw bintu abi bakrin moo yore woon waa ñu seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye soxna umul xayri Babacar mi mooy yore woon waa ñu baayam asma umee da daan takk ndiggam jël beneen ceinture takke ko ñam wi wa qarra jimal layaali fii muhtaraman biraatin ankabutin summa urqihami taati taama lahum fi lgaari بنت أبي بكر وقد تايبت في أمر ñetti guddi la yonent bi sax ca xuntuma ba muy gàddaay mook Aboubacar waaye Asmaaw bintu Abi Bakrin doom moo daan toggu di leen indil tànk bu mu jéggi farko ngir bañ noon yi topp ko taati taama lahum fi lxaari bintu abi bakrin waqat taybat fi amri zadimi ñu tudde woon ko borom ñaari ceinturi zaatani taqayni sammaw xaaye li chaqi ni taq xaaye li tarbita yaa tube بالخدم تاتي تعاملهم في الغير بنت أبي بكر وقد تعبت في أمر زاديمي قال النبي صلى الله عليه وسلم ba muy gàddaay Seydil Hadji Malick nee na daa dugg ci xunt ma mook Aboubacar xoolal ndeysaan jargoñ ñëw daal di garab sax pitax ndeysaan moom itam daal di def tàggam waqarra jiimal layaali fii muxtaraman biraatin an kabutin summa warqi xami taati taama lahum fi lxaari bintu abi bakrin waqat taibat fi amri zadimi asmaaw moo leen fa daan fekk te booba daa ëmbkat nekk jigéenu wéru di leen jox añ reer ndékki sama maw doone zaatani taqayni sammaw xaaye li shaqni taqi xaaye li tarbita yaa tube lil xidami asmaa xumi moo daan dab yonent ak ay ñam loxo ca kaw moo daan dab yonent ak ay ñam asmaa xumi moo daan dab yonent bi ak ay ñam ba mi ca kaw moom asmaa da daan takko laxasaayam ga saf na ko daan toggal yonent beek jëf ngir diine loxo ca kaw bayam mooy sa Sadix Mbay atix ngëmam dafis Rashida na mooy njiital diine loxo ca kaw jamonoy way ba Maodo si doon ko taaya diine ji bam xëy dénk Seydi Mbay si si diine jee walaay mu xayre di soppe Mbay waaw mooy pendal mu gën tubay moo yor waa ñu Seydi Mbay est-ce que diine Babacar Xumma moo ma décoré bubb mi ak xaalis bi waaye yàlla na yàlla yéege ko ca mbubb ma ab zey zubayrun joxe woon Muhammad ak Ababacar sama sa maam Maw doone xoolal gasa zubayrun rasulallahi saaxibo idlaqa yaw bi rek aba min chami kasa zubayrun waaw rasulallaay saaxiba id laqayaw bi rakbin aaba min shami taawal foofu ahmadu booba mooy mbubbuma eh, zubayru jo eh, yonent bi mbubb ma jiitu sax mooy mbubb ma yonent bi sànni woon kaaba mbubb moomu mooy burdu boo xam ne nii mooy continuer ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam solal ko cheikh ahmad tijani chérif radiallahu taala anhu a chériful fatimi sayid ahmad tijani si radiallahu taala anhu naan ko wa alayka burdun qad kasaaka muhammadun fi lmawqifayni bi wa fi lilaan burdu nuuraani bee yonent bi salaa salaam doon sol bi sëriñ Cheikh Tidiane si dee dem di seeti turandoom te yóbbu lu mu yóbbu ci ay bagage yonent bi salaa salaam ni ko sa gan gii ni mu dikkee soo ko teerewul lu ko jommal mu jaay la ko kon kaay ma solal la sama burdu bii Muhammadul Busri gis ba doon ma ci tagg ñu tudde ko burdatul madiya mu sol ko burdu boobee moom la sa baay doon way bi sama turandoo wuutoo Cheikh Alxaaji Malik radiyallahu taala yonent bi ak cheikh àndandoo ñëw ni Maodo lu tee nga boole ci sëmbool bi mu ni leen ban symbole yaa way sànq mbubb moomee yonneen solal cheikh cheikh jox Malick Malick jox xalifa Ababacar ñu ni ko burdu bi yonent bi solaloon cheikh burdu boobu lañu bëgg nga symboliser ko jox ko sëñ Babacar si moo tax Amadou Sabaay jàmbar la ah. Mawdo maam Cerno Seydou lemi jàlla ah. benn keroog waaw naan ko neel mbay maa ko jox ki hadiya moo aye tey waaw gaa yi seet leen Maodo Malick na mu tolloo mayam ki ko yéemaat ba mu jox koy hëddiyaam an ko ca roy waaw ku ko am am nga yoneen am Maodo am Cheikh mi nu doy aha ku ko am am nga yoneen am Maodo am Cheikh mi nu doy waaw lemmi jalbab hadiyal mbay cerno seydu ngi taxaw waaw moo ku réere mbay xalifa ba mawdo ëllëg looy defu lay waaw mawdo woo maam cerno seydu lemmi jàlla bem keroog naan ko nel mbay maa ko jox kii hadiya moo ay tey gaa yi seet leen Maodo Malick na mu tolloo ki maya mbay mi ko yeemaat ba mu jox koy hadiyaam an ko ca roy gaa yi kon jëm mujj ci wax Maodo Malick si nga as nga mbay loolu boo ko xeebee yomba yaay bay ku ko am am nga am Maodo am Cheikh mi doy ku ko am am nga am Maodo am Cheikh mi doy yow kay ki nga wóolu kam la booleel boo ko xeebee loo di la yee as ni wóolu la wóolu boo ko rombee mbay yaay yaa ni as nga wóolu mbay la wóolu boo ko xeebee loo di lay yow kay ki nga wóolu kam la booleel boo ko xeebee loo di lay réew mi ki nga wóolu kam la booleel boo ko xeebee loo di lay as nga wóolu mbay la wóolu boo ko rombee yomba yaay yaa ni as nga wóolu lay la wóolu boo ko xeebee di lay yow kay ki nga kam la booleel boo ko xeebee yow ba yay mu di xóot pour mu di raw yaa doon Maodo ki ma yaay góor gi yaa di xóot pour yaa di raw yaa doon Maodo ki ma yaay raxewoo wàññiwoo yaa ma tafal yaa ma toroy wa alayka burdun qad kasaaka muhammadun fi lmawqifayni bi wa fi lilaan mm-hmm. mm-hmm. mbubu maa ngoog waaw wa alayka burdun qad kasaaka muhammadun fi lmawqifayni bihi wa fi lilaani cheikh Ahmad Tijani si radiyallahu taala anhu dafa war a seeti turandoom bi muy dem nag mu bëgg koo wan ni ko kii ñëw ci yow sa njaboot la waaye du njabootu kese kese moo tax mu war la mu war cortège ba farakibtu naxwaka dahra kulli ajibatin min xikmatin wa malihatil awsaani moo fi dàqaway way yu rafet fa tazawadat nafsi bi kulli badiatin badia mooy xam boo xam ne nii ki nga ko dégge ci moom nga ko mas a dégge mu ni wa badaa'i tabqa ala al azmani bis bu ma génnee àddina dinaa fi bàyyi xam-xam yooyu bagage intellectuel yooyu nag mu wàcce nag ci buntu cheikh ahmad tijani chérif la yonent bi salaa sallam ni cheikh kaay sa gan gi ku bari affaire la kaay ma solal la sama burdu bii mu sol ko ñoom ñaar rek parce que ki la solal mbub mi bi mu la ko solalee macha allah muy sa mesure bu cëkkoon dañ naan mbubb mi de rafet na waaye daa cëkk moo tax yonent bi tam di seet ba xam waaye ndekete moom yonent bi salaa salaam ak cheikh ñoo bokk mesure mu sol ko ni ko ci yow la yem malaaka yi ñëw seede ko mu sololaat kooku comme nii mu la ko sololee wa alayka burdun qad kasaaka muhammad muhammadun fi l mawqifayni bihi wa fi l ilaani waaye lan la kaala wa bi wajhika saafi bi wasfin bair mu nga kaaloo ummul kitaabi bi xatiyan nuraani mu xool jëwam bi fatihatul kitab ñu binde ko xarafi leer ya loolu laa bëggoon sànq photo bi ñu génnee sama turandoo ngeen xoolaat ko wa bi wajhika soofi bi wasfin baahirin ummul kitaabi bi xattiha nuurani loolu suma ma nga ne la de wa bi wajhika soofi bi wasfin baahirin wa kunna alifna min muhayyaahu jannatan min aljannati alalyaai asna wa awsaa ku jàkkaarloog foto sëñ Babacar xool kanamam gii bég doo dem safara mu kunna alif naa miinoon nañu min muhayyaahu ci kanamam gi jannatan muy aljanna min aljannatil aliyaa yi ci ajjana yi gën a kawe asna gën a yëkkati ko wa awsaa te gën a kawe fan la ko jëlee wa bi wajhika soofi bi wasfin baahirin ummul kitaabi bi xattiha nuuraani man waxoon naa leen ni leen bëggoon naa leen a jàngal buggoon naa leen a jàngal sama turandoo de naka la gane àdduna ci ndar te heure baa ngi ñëw naka la ñuy def naka la ñuy def naka la ñuy def ah ñu indi naka la sama turandoo ganee àddina te ngeen baal ma de. waaw ëpp nga sax a dox parce que fi nga toll fokk ñu bàyyi la nga dem mais alaaji ale njaay mi nga doon wax léegi sa digganteeg moom ndawam ñëw na Baye Njaay dama bëgg mu ñëw nu continue bu nu paree téye ko nag foofu nga nekkoon waaw waaw attention masa masa <laughs> kii nag maamam alima jigéen jaxu si jaaju Malik la yaaka mhm. maamam alima jigéen jëxu sëriñ baabakër la yaakaar waaye bàyyam na ragal péete dafay xañe wërsëg dafay féete ak sëriñ Babacar mm-hmm. moo tax tey plateau bi alaaji Alé Ndiaye mu ne ah buggaan daal lii mën la ko defal mm-hmm. man mi nga xam sama dox ak sama dal lépp sëriñ Babacar la du ma mm-hmm. nelaw tey waaye dama cay boole jëf bisimilah Baye Ndiaye waaleykum salaam wa rahmatullah mu Pape Alaaji Mbay mhm. ak Alxaaji Duudu Kenn ak Cheikh Tidiane ak Pape ak Abdoul Aziz Doucouré ak Alaaji Mansour Diop ak Cheikh Sarr ak euh, sunu mbokku Saz Mohamed Mbay ak imaam xalifa ak sunu soxna su baax si toog ñi fi nekk ñëpp sumay frère lañu ak sumay papa ak sumay xarit ñoo fi daje. di nuyu borom kër gi di El Hadj Bougane Gueye di suma xarit di nuyu nekk suma waajur El Hadj njaay ak suma kilifa di suma sëriñ di Abdoul Aziz Ndiaye ak xaritam yëpp ñuy toog ca kër gi di seetaan télé bi. Mhm. ak suma frère Babacar Ndiaye. tey lii di guddi sëriñ Babacar si Aziz yónni ma léegi ne ma demal ca tele ba. Mhm. jox ma 4000 euros ne su ma ñëwee dinaa ko teg sa loxo nga teg ko ci loxo xalifa mbay mu xool lu mu ko séddaleeg njaboot gi yëpp bala ñëw dellu Tiwaawan am na suñu beneen jigéen bu ñuy wax jatu saaj am na lu am solo lu mu ciy boole mais comme ku bëggul ku tudd som bi dama ko ci boole waale rek comme xaalis dafa xaw a sew ma teg ko sa loxo 4000 yi moo lii xam naa daal bu matul un million war na nekk xaaj bi daal mais comme ku bëggul ku tudd somme xam naa ne jege million. ku ñuy wax jatu saaj moo ko moo moo ko joxe jatu saaj. ci ci la bokk. ne moo ko ci teg mu ne nekk Serigne Khalifa. Mm-hmm. lii tey. d' accord. El njabootam def ko. d' accord maamam danaa jóge mébés. Mm-hmm. jiital nag ya. dëgg la ak xar ya ak gileem yi El Hadj wax na ko léegi. waaye war cëray baraay. teg ko ci ay gileem boole ko gileem yi rëq ko jox ko si jaaji maali moo tax tey alaaji aale daanu ànd ak njabootam ñu wëlbati ko joxe lii gis nga nag li tax ànd ak wàll yu baax bu soppee soppi la léegi dudu kenn daf maa daaneel ci diggante baayam fi ma koy jox xel bi naa ko lu wax soxna mu xëy ni pendal mu gën tubay fa dugg waaye bëggoon naa it bala may joxe xaalis bi du kenn sëñ Alioune lu mu waxoon si jaaji Malick koy denc muy dem ca yonent ba bëggoon naa nga dugale loolu xaalis bi kon société de la famille Souleymane Faye de Euh, joxe na deux cent cinquante mille ngeen baal ma rek parce que damay bañ message yi di raw sama téléphone joxe na ma joxe na deux cent cinquante mille waa Ndoomoor joxe nañu cent mille francs nee nañu insha allah ci loxo Mamadou Mbaye lañ ko teg bu subaa dina la ko indil euh, Tiwaawan euh, am na kii wax na ko léegi ki sant Saadi jot naa message am léegi waaye nee na bu ma tudd tur bi moom it somme bi mu joxe mu ngi nii wax nañ ma ko léegi sama téléphone am na ku nekk ba itali Euh, neena na naa joxe naa la jox numéro am léegi mu ngi tudd euh, ngeen baal ma rek mu ngi tudd euh, Mamadou Lo bu sëñ Mansour borom daara ji nee na joxe na cent cinquante euros nee na naa ko jox sa numéro yo Papa Mbaye Peex. Mm. bu ko defee incha allah dina ko teg ci sa loxo nga daal di ko joxe. waaw di fàttali rek Adja ah. Adja Mama bu Serigne Babacar fii. Euh, mm. euh, daayira euh, ITFA bu États-Unis des Détroit Michigan. Mm. ñoom ñu ngi rafetlu bu baax waxtaan bi. ñoom tamit ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax. soxna soxna Nene soxna Nene kii Sall bu Abdou Sall. mu ancu bu Serigne Babacar si moom it joxe na. ñaar fukki junni teg ci loxo Serigne xalifa mbay ki nga xam ni moom moo di Anna Thiam Dabaax bu Washington joxe na cent dollars pour ci soxna kalambay Mbaye ngeen wax sànq. Ah dina ko teg sa euh, monsieur le maire Ousmane Sarr. waaw maire Chérif Lo. Mhm. nee na ah maag Khalifa yaa ak maag yow ak euh, Cheikh ak Pape kenn ku nekk may na la terrain. macha allah xule itam. nga xam ne mooy Cheikh am. waaw nee na moom itam kenn ku ci nekk may na la terrain. loolu nag ñu yégal leen ko. Uh-huh. waaw. ñan la may tere <laughs> ne Bintu Ndiaye. ñan la may ci Amérique. ba Kalambay. Ah, ne mu ngi seetaan. Uh-huh. dafa sopp sëñ Babacar. Uh-huh. suba dina yónnee teranga. ak Awa Gueye ci Amérique. ak Nafi Mbengue ci Amérique. ñoom ñëpp bu suba. danañ yónnee ma jox leen ko ne ak Amina bu sëñ Bay Abdul Aziz alaa yumu ko yumu sulasa di duuri waaye ku sopp Seydil Hadj Malick defal nii ñu màggal ko si sa wande وقد باق حر الشمس نحو تبردي من سرين ألنجي من سيد الحاج مالك كبير سوف ku sab sa xalima samp ko ci daal bind te bindoo ci loolu sa mbind sànku na wadaan kaat laay la ببرقة ثمدي لخولة معتص فيها بك إثمدي وما قول ليلى والرباب فرتنا وما قوله الدين بل حسل ما ومهددي ودع ذكرى أيام السبا والليالي ودع عنك تذكر المغني لغرادي من سرين ألين mu ne koy bind bindal ci Seydi El Hadji Malick mi ci biir bàmmeel walakin tafakkar kayfa bijaatu sidi la daaraw di wala xatmu ashgal an dadi walakin tafakkar kayfa bijaatu jihbidin حبيبي خليل الكل برين ومرشدي ولكن تفكر كيف دجعت من مضاي إلى رحمة المولى الوفي المتغمد يني سرين ألينجي mu ni kuy bind bindal ci borom parasol bii nga xam ni moo ni sallallahu alayhi mën na maa gën a gudd tànk mën na maa gën a yaatule tànk waaye fu mu teggee tànkam xam leen ni man Malick Fawadi mi dinaa fa teg sama tànk bi duma rax sunnam benn yoon Ahmadou ma wax la ah. loolu lu Maodo wax yeneen bi mën na maa gën a gudd tànk Mouhamad ñaata la. 92. ñaata la. 91. boo nee Malikan. muy 92. muy 92. jàllal. walakin tafakkar. est-ce que dégg ngeen jàngale boobu. pointure yonent bi sallallahu alayhi wa sallam 92 la Maodo nee na tànk mën naa gën a gudd sama tànk. waaye sama tànk ci biir tànkam boo adadee Malik Malik quatre vingt la lay jox bi ñu koy tagg ni ara malikan fii sultatin min jalalihi sëtam bi di ko tagg malikan quatre lay doon kon soo ci dollee alif boobu muy malikan rek muy quatre-vingt-douze jàllal waaw kayfa dijatu muktafan bi sunnatal hadi nabi muhammadi ñu ni sëriñ Alioune Guèye mu ni kuy bind bindal ci borom parasol bi nga xam ni mhm. ku iñaanul soxorul xam ni moo doon secret Cheikh na Tidiane Chérif wesaare salaatal fatihim bi ci réew mi ba lugg na jaww Sénégal sukuraat la jëlatu fi kenn dangay nelaw ba dem rek lahu faydun yafiidu amima kullin fama baqiyal kiraamu wala liaamu walakin tafakkar kayfa bid'atu waarisin abal faydi qutba laliyaa na Mahamadi mhm. moo tax talaata 27 juin 1922 ci la seen maam Maodo dem barzax mhm. nis tuut tiwaawan fees dell boo sànnee mbatt takk mhm. kenn amul foo jaar magasin yi tëj xasat fi jaajul lam tara furujatan تقول على عدي سبيل لوردي وخلقت الأبواب دون تجارة وقد أرجف الأقوام من غيب سيدي ne ñay jooy a ngay jooy ñay wasifa ngay wasifa ñay jàng alquran ñu ngay jàng alquran ci waaw gëndaloo fa kaana tisaalu zaakiriina tisaalu bukaan ladaa kulli tariiqi wa maqaadi mhm. wa udhishatil albaabu mhm. kaada tasadaat mhm. sudur ahaaliga bi kulli tanahudi nee ni sut ñu romb maag ñetti njaq bee njaq ndoxum kese bee njaq ndoxum goowe bee njaq ndoxum déem ñi ñu ngi bëgg sang maam Maodo ne mooy xuloog sangkat yi naan leen kii ngeen bëgg a tuur ñetti njaq yi moo gën a fees géej ndax géej mënta paase tooyal te fes te xam-xam bi ci dënnu maam Maodo baaw na ba jël océan Atlantique tooyal baaw na ba jël méditerranée tooyal Europe baaw na ba jël mer Rouge tooyal arab yi li gën a fees gi su ko ñetti njëkk dee sang matière a tax wa min ajabin taxsilul kulla qullatun wa fi sadri mil bahri Maodo mu muusi bii di. nee ñu sang maam Maodo teg ci jaat gi. ne ma jàpp ci bant bi jooy naan bant bi. góor gi tëdd ci sa kaw bu la damul daa jox yoon cëram. waaye muñ gi ci dënnam bi ku ko pëseeg montagne bi mu gën koo diis. waaye seen TV li gën a diis montagne. bu damul bantu jaat kay matière a tax. wa min ajabin حمل الأخلاء بناشي ومحمل صبرا رزان بجلمدي سيرين بابا كريجيتو àndak maam Mansour maam Dabax maam Habib ñu tëral Cheikh Al Hadj Malick ca bopp jàkka ja Serigne Babacar ni maam Mor Khoudia si kaay maam Ahmad Lo jur mook maam Ousmane mi jur Cheikh Al Hadj Malick ñoo bokk ndey ak baay kon kay jullee góor gi ne maam Mor Khoudia jullee ñu def ci Bambey nee ma dem dem mënumaa dem samay tànk jaxasoo nee ma ni bàmmeelu bàyyi Cheikh El Hadj Mansour lan ngay wax waa Sénégal waay fa waajaban min ahsani durri xuzta dari abil mansouri مغيا في مكمدي فواعجبا فوا عجبا bay bay bayit la boo xamante ni maam Alioune Gueye moo ko way maam Cheikh Seydil Hadji Malick bi mu génnee àdduna waa ajaban mama lin gay nee na juróom-benn fukki at ak juróom-benn yi Alaaji Maalik dund ragal yàlla taxoon na ma foog ni du dugg ci biir suuf waa ajaban mama lin gay na maa ngi xool suufu Tiwaawan ñu jël Alaaji Maalik di dugal ci biir Tiwaawan waa ajaban mama lin gay nee na ngay xool Seex Seydil Xaaji Maalik ñu gas ba mu xóot war koo dugal ci biir bàmmeel waa ajaban mama lin gay nee na ragal yàlla gi newoon ci Alaaji Maalik gëmu ma ni dina dugg ci biir suuf waa ajaban mama lin gay mbaax gi newoon ci Alaaji Maalik gëmu ma dina dugg ci biir suuf fawa ajaban maam Alioune Gueye nee na mbaax gi deewoon ci Alaaji Maalik góob ma dina dugg ci biir suuf fawa ajaban di xool baayu Serigne Babacar fawa ajaban maam Alioune Gueye nee na ma naan est ce que fawa ajaban kay leen yéeme ma min ahsani durri xusto Cheikh Seydil Hadji Malick bu ñuy nattable mboolem urus yi gën a seer yow Alaaji Maalik si yow suuf yow lay waxal tey tarixa abil mansouri mixiasi mukmidi maam Xalifa suuf xolal maam Alioune Gueye nee na maa ngay wax suuf yaa ngi nëbb ki nga xamante ni wurus yëpp bu ñu dajee Alaaji Maalik leen gën a seer tu xaybuhu anna nee na maa ngay tibb suuf Mamalin Gueye nee na maa ngay wax ak suuf naan ko ah tuxayibuhu anna ndax danga ñuy utaleeg Cheikh Seydil Hadji Malick Sy na tafa jawn mama lin gay nee na ko yaa ngay bàyyi njàqare ci ñun yow suuf yaa ñu nëbb Alaaji Malick Sy tara sadafan fii yatim zabar jadi mama lin gay nee na ñu ngay jël sadaf di dugal ci biir suuf mënatumaa gis bàyyi Serigne Babacar Sy Souleymane Amrin bayit baa ngoog moom laa soxla woon Souleymane Amrin Souleymane Amrin bayit boobu laa soxla woon Souleymane Amrin Souleymane Amrin Cheikh déggal bayit baa ngoog Souleymane Amrin Souleymane Suleymaanu Amrin. Cheikh bu nu lay laaj ndax El Hadj Malick amoon na ay jinne Pape Suleymaanu Amrin. Suleymaanu Amrin. xalifa bayit bu riche a ngi nii boo xam ne Mama Aline Gueye ko bind Suleymaanu Amrin. Suleymaanu Amrin. dama ko daan joxoon Cheikh Seydi El Hadj Malick di ko làkk français El Suleymaanu Amrin. Suleymaanu Amrin. ma ngay joobe bàyyam Serigne Babacar si Suleymaanu Amrin. Suleymaanu Amrin. ma nga naan ko jafala wala stata alamu fi ihsanika naqara Suleymaanu amrin sulaymanu amri Cheikh Seydi El Hadji Malick Sy yaa maadixal xayri wal muxtaari min mudarin juzita xayran amiman shamilan wa fara sulaymanu amri maam haadi Touré ma ngay joome Cheikh Seydi El Hadji Malick abal habib bi salilil xudbi usmana sulaymanu amrin sulaymanu amri dem ba ca taat way ba mu naan alaaji Malick fa kam wahabta mi aatin kam wahabta ulufan kam wahabta karatin yabna usmana kam abidin zahidin kam alimin wariin kam salikin wasilin lawlaaka ma kaana كم تنشر العلم كم تقري الضيوف كم ترضي الإله وكم أسقطت سيطانا كم سلت كم عزت كم بشرت كم ولا كم كم كم وكم ثم كم أرشدت خيرانا سليمان أمري سليمان أمري mama li ngeen ko alaaji Malik pour lay nattable ndax am nga ay jinne dañu lay laaj yonent yàlla Suleymaan Suleymaan Amri Cheikh nu yonent yàlla Suleymaan amee woon ay jinne noonu la maam alaaji Malik amee woon ay jinne Suleymaan Amri mama li ngeen koy joxoñ ñu ko alaaji Malik neexul ba neexul waaye Suleymaan Amri yonent Diallo Souleymane ak mbiram jinne ya alaaji Malick yaa ko rangoo musayum bi na jëtti alaaji Malick naka nga def ba réussir sa liggéey mu ne laajal yonent yàlla Moussa na mu jëf leen teg Firawna ba gañe alaaji Malick yaa takk garaat yonent yàlla Moussa xalili diili waaye na maam Ibrahima jëf leen toon ak yàlla ba xaritoog yàlla sama mag dina ci ñëw léegi ci ooyu seen Cheikh ba ah, mawaahibun taati taaratan min ilaahi wa uxraa min al aqtaabi an tilka xaalihi salaasilu siixatin min safaayi rabar jadin ila sayidi al axlaaqi yowma tisaalihi sayidi alxaaji Malick yaa doonu yonent yàlla Ibrahima ca sofel ga nga sunniyul li Muhammadi nee na ko Alaaji Malick fexe nga ba say taalibe kenn di wuyoo si te bu la neexoon say taalibe Alaaji Malick ñëpp di wuyoo si ndax boo jëloon tey santu Alaaji Malick di wër ci alxuraan baqara ba naa si Alaaji Malick la sant mujjee ci alxuraan qul aauzu bi rabbina si malikina si ilahina si min sharril waswasil xanna si si yuwaswisu fi sudurina na jinnati wan naa nga ni xorom asamaan suuf tak farma alaaji malik ne damay nëbb sant boobu ñu ne ko ban sant ngay jël mu sant bi rasulaay daan wuyoo wa maa yujibu shafiul xalqi daa yow ilaa bi la bayka kuy ci jànn nga wuyoo la bayka cheikh maa ngi ñëwaat macha allah téléphone bi dañuy jël ku nekk ci ligne bi wala ñu delluwaat dañuy jël ku nekk ci ligne bi très rapidement dañoo am uh-huh. euh, nañ jël ku nekk ci ligne bi d'abord allo soxna allo salaamaaleykum. alo dafa mel ni liiñ bi dafa. dañuy wàññi mhm. mhm. mu ngi déglu allo. allo. allo oui sëñ bi nangeen ngeen def. maa ngi sant yàlla alhamdulilah. ñu ngi lay déglu di la laaj tur bi naka la bàyyi la nga dugg ci waxtaan wi. asalaamualeykum wa rahmatulah. waaleykum salaam. maa ngi tudd Mayel Thiam. Mhm. ñu di ma wax Pape Mayel Thiam. suñu frère. ngi leen di plateau bi yëpp. Mhm. di wo di leen di leen yëgal ni que ni. Euh, li ngeen def fa tabarakallah yàlla leen ci yàlla fay yiwu yéen waa Sen TV di leen xamal ni ka nag ñu toog ci plateau bi yépp samay mbokk rek ñoo fa nekk. walaay walaay Thiam ma tàmbale ko ci <laughs> sama maam El Hadj Peex. walaay Thiam. di sama mag Khalifa Mbaye moomu toog. wallaay maa ngi lay fay. di nuyu Doudou Kend. <laughs> ñoom ñëpp ndeysaan ñoo bokk. wallaay benn baay. waaw ñoo bokk baay di nuyu sama rakk Pape Malick. Mhm. di nuyu également Cheikh Sarr. Mhm. Euh, yàlla nag dafa am nag lu mën a too mhm. euh, man sëñ Babacar si rek la xaw ma ko nag ndax bi may juddu fekk na sëñ Babacar si génn àdduna. waaye olof dafa ni dagg ci or la. man nag ma. xamanteeg Serigne Mansour si bi ma jógee prytanée militaire de Saint-Louis sëñ Mansour si moo ma yóbbu France moo fay samay étude moo tuubal jigéen may ma ko soxna xam ngeen ni kon moom la mu daan wax naan ku gore ku ne di nga ni budul woon yàlla ak tëb waaye maa ngi yëgal Sénégal yépp ni man mayal caab budul woon yàlla ak sëñ Mansour si bu sëñ Babacar Sy kon tey guddi gii mën naa jàpp ni mën ngeen ko defal ma ci profité di ziyaara bu baax sëñ Babacar Si Mansour mu nekk xalif bu kullu tijaan di ziyaara mboolem ñi fi woote ñëpp ñoom soxna Lalla Si soxna Umu Kalsoom maa ngi ziyaara ñëpp di ziyaara sëñ Aziz Doucouré également ñu leen xamal ni que ni Sénégal lii rek la seen conceptu émission bi li ma ci gis mooy ku mel ni El Hadji Mbaye Pekh ñëpp xam ko ci muy géwalu Touba nekk tey au cœur d'une émission boo xam ni a Ababacar si lañ ko jagleel. jërëjëf yéen waa Sen TV. wala walaay Thiam. c'est un exemple qu'il faut suivre lii mooy Sénégal. dëgg la dëgg la. ñu rax ci dolli teg ko ci jamono joo xam ni comme ni ko président de la république wootee tey foofu it dama koy préciser. ndax man sëñ Babacar si laa bëgg. waaye Macky Sall laay liggéeyal. dëgg la fi ñu toll nii kenn ku ci nekk war nga takk sa ndigg topp ci ginnaawam ndax dañu nekk en guerre. yàlla na ko yàlla dëgëral. amiin amiin moom Abdoul Aziz Dabakh daan wax rek. Mm-hmm. ni boo nekkee ci gaal te bëgg a mucc. na ñaanal capitaine bi mu mucc. Macky Sall yàlla na yàlla leeral xelam ci barke guddi gii ngeen def ci barke sëñ Babacar. amiin amiin amiin. di leen gërëm nag di leen sant. Mm-hmm. Ah, di wax ni que ni nag. sama mag yooyu toog sama teggin mayuma may wax sama addiya ci télévision waaye ñoom xam nañu man xam naa nañu jàpp ni seen addiya yàgg na ko def naa sama biir loxo ñuy génn ma di leen ko wallaay yàgg na koo def daf daf mhm. nu koy yónnee te bëggul mu siiw. macha allah mhm. moom moom mhm. papam mooy mooy sunu taawu famille. man sama sët la. wallaay bor sa mbaay ndeyam. wallaay. Eh, tubaarkalla eh, sama jarbaal la bor sa mbaay ndeyam. Mhm. Eh, nijaayam laa. wallaay moo tax Pape Mayel loolu mu wax. rek moo nekk ci moom. Mhm. wallaay wallaay wallaay. waaw waaw am yóbbante rek nee ne. waaw bisimilah ngeen baal ma. Mhm. bisimilah soxna Oumou Kalsoum Mbaye Kala. nee xaritum Ndeye Assi Diop doomam. ca états ñu koy wax maam Marie Mbengue. nee na jox na hadiya xalifa ak i mbarakam ak ñi fi nekk trois cent mille francs mhm. Ousmane Sarr itam maire Chérif Lo Ousmane Sarr bu Al Amin. Mhm. moom nag loo ko wax. te boole woo ci Ousmane Sarr bu sëñ Abdoul Aziz Al Amin mere na la. nee na moo joxe woon ñeenti terrain. Mhm. waaye kenn ku ci nekk dolliwaat na la terrain nee na muy huit terrain. macha itam Samas. waaw mooy Omar Gueye ca ma léegi. Mhm. nee na yëkkati na cent mille francs jox la ko hadiye mhm. Seydi sëñ Babacar Si ku ne xam na ni moom njabootu ah, Serigne Cheikh Tidiane Si Al Maktoum la mhm. tabaarakallaahu dëgg la eh, ak Modou Lo ca eh, fële eh, Tëngéej ñoom ñëpp itam wax nañu loolu marché central ñoom ñëpp ñu ngi yónnee seen teraanga yooyu macha allah si Al Amin nee na yónnee na trois cent mille wallaay ndeysaan nee soxna bàjjan laal lay nee bëgg naa dugg sax incha allahu. waaw dugg incha allah. asuba al amin uh-huh. euh, cent cinquante mille. Aida Yacine si Bintu Mudir joxe na vingt cinq mille. soxna maam Anna Camara joxe na cinquante mille. Uh-huh. Uh-huh. Cheikh Sarr. waaw euh, dañu dañu dañu jot léegi. dañu bu al amin. nga xam ne moo yore organisation xadra bi baax. nee na may na ma benn jaamam bu ñuy wax Cheikh Tidiane Ndiaye ca Mbour. <laughs> imam jërëjëf dañu ñu déglu imam ñu déglu imam rek après jox Cheikh Sarr yóbbante bi bu eggee mu introduit directement imam Khalifa Ndiaye. Euh, ñu daal di continuer ci waxtaan bi. waaw dañu dañu jot yób euh, nuyoog euh, suñu yaay kinne si bu Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si. nee na na trop ci yow. waaw waaw yaay Xalifa nee na na trop ci yow. suñu yaay suñu yaay. kinne si maman kinne ñu ngi koy euh, bu baax bu Cheikh na Ahmed Tidiane si almaktum mm-hmm, mm-hmm. beneen bi ci tegee suñu papa Makhtar mbay mu Serigne Mansour si. Mm-hmm. nekkee ba tey ba ci sees ICS Mboro. dina leen jox ñaar fukki junni jaarale ko ci euh, rakkam jii di euh, oustaz Mouhamed Mbaye Mouhamed Mbaye waaw beneen beneen bi ci tegee ki nga xam ne moom moo di soxna Aïda Mar Faye di sama jigéen ci Italie. taalibi Serigne Babacar si moom it incha allahu taala dina joxe fukki junni waaye tamit may gërëm bu baax a baax a baax su ma xarit Cheikh ñas bi nga xam ne mooy Fadel Couture moo ma ñawal yére bi nga xam ni toir fa kàll moom it def ko addiya euh, mag ñu baax ñëpp la wax sax uh-huh. jërëjëf leen ma dégg uh-huh. waaye Saliou sekk ca Kaffrine xalifa maam xalifa ma daane loolu rek Saliou sekk ca kafrin bu al amin nee na ma man Serigne Moustapha Sy al amin mooy sama Serigne. ndeysaan waaye maa ngi joxe hadiya Serigne Abdoul Aziz nee na cent mille francs dinañu ko yónnee. na waa kafrin yëpp ñu ngi koy suivre. Mhm. tabaarakallah. imam xalifa ñu ngi mi mhm. euh, ilimaan la mooy ilimaan bu baobab. Mhm. donc dañu ko daf bokk ci. borom xam-xam yi ñu xam lool ci Sénégal. ci Dakar bokkoon ci kilifa yi ñu invité woon ci yaram ak tegginam ak ni mu xamee xadara bi mënoon na bañ wax sax ba ñu fi tas. Mhm. Euh, waaye mënoon na ko. Ah. ndax xam gi mu xam xadara bi ni mu mel ak ni muy doxee. ak bu ñu amee ku mel ni xalifa euh, Khalifa suñu sagale ñun ñëpp. Mhm. mu nangu ànd ak ñun waaye wax dëgg yàlla invité la woon boo xam dañ ko boole borom xam-xam yi ngir ñu waxtaanee ci suñu Babacar si. oustaz ñu imaam ñu lay sant bu baax ci sa ci li nga wanewaat. exemple bi nga xam ni moom la ñu xam ci ci xadara bi. jërëjëf Ndiaye. xëy ku fi tasaaroon. xam naa damay jotal yóbbante itam sëriñ kër jot na ko njabootam bu nekk États-Unis doon di génn wàll ci ñun di maam Ami mbay mu ngi ñuy seetaan nee na ñoom nelawaguñ mhm. waxuma États-Unis mais monde entier ñu ñuy seetaan ndax jëmm ji toog mhm. nee joxe na ci ñaar fukki junni dana ko dugal orangement money ah man la ko jox waa d'accord <laughs> nañ ko ci boole rek. ndeysaan ndeysaan ndeysaan. wallaay. maam may sa maa kuñ naan maam may sa itam. bu baax la. ma nga dëkk ca Baobab. Uh-huh. di wëllëre di soppe. Uh-huh. ba fii may wax ak yow nelawul Serigne Babacar. jàllaabi bi ma bi mu ma jox daf ko photo envoyé ko yónnee ko. te man sax waxuma jox ma takkaay ne ma pour sa soxna la ma ngay jooy rek. mais mhm. sëñ sëñ kër Si mooy sëriñam. ndeysaan tabaarakallaahu ahsanul xaaliqiin mhm. eh, lu lënkale baaw baab karaak amitié ñoom ñëpp ñu nga toog nelawuñ. rawatina waa daayiratul xayri wal na bi nga xamante ni sëriñ Abdoul Aziz Si Al Amin moo leen ko joxoon. Mhm. Doudou kenn mii seede la ci tabarkàlla moo ñuy bunge ci lépp fa tabarakallaahu ahsanul xaaliq ñoom ñëpp ña nga teew toog di seetaan ku ci mel ni Youssoufa di jàmbaar uh-huh. ku ci mel ni Ndeye Assou Dramé Maguette su ma leen tuddee tabarakallaahu tudd naa ñëpp waaye li ma bëgg a wax rek nee na ay sa mooy uh-huh. li duuf ci nag wi xajul ci cin li bay mbay péex uh-huh. dafa am loo xamante ni euh, euh, boo ko waxul gaañ ñi xalaat parce que ñay xalaat mën nañ toog ni invité nañ imaam Khalifa. Uh-huh. ñëw na ba dem dañ ko humilier eh. kenn humilier wu ma. walaay ndeysaan Ndiaye man kenn du ma humilier béy laa kenn du ma di ci ron la mm-hmm. kooku moom ñu xam ko benn yoon. dafa tolloog ni uh-huh. dafa tolloog ni yow ñoo ca ngin gi néew. xaqiqatan mm. sam da ko daan wooye mutilé de guerre. ça c'est vrai nekkaloon xadara bi ca ngin gi néew. Uh-huh. yore fédération ba. at mu nekk ma ànd ak sëñ Moustapha Al Amin. ñi ñëw defal la conférence ca Sika Baobab. yow bo kenn yow yow bu xalifa waxee yaa wax. wallaay ndeysaan foofu laa jëm sëñ Ba. wallaay dëgg la mbay. may seedeel eh, eh, Mouhamadou Mansour mi wax naa ko ko léegi. Mhm. ñuy dugg wax naa ko léegi wax naa ko ko nee naa mhm. jotaay bi ni mu demee ku seet bañee bi ñu doon publicité. Mhm. dañu ne Doucouré sëñ Doucouré. ne Serigne Babacar ñoom ñooy def waxtaan wi. ñu dugal ñu ci ci mbaax ñu ne alxaaji duudu kenn moo koy animé uh-huh. bu doon alxaaji duudu kenn dong rek doy na sëkk bay mbay uh-huh. walaay walaay doy na sëkk doy loo naa ci lépp walaay dëgg lañ tabaarakallaahu rawatina nag ba fi suñu kilifoon Babacar Mbay dañu koy bëgg hmm. xanaa bi muy wax ni fa lay defee waxtaan man chaque instant dama koy déglu moom ak jëmm ja nga xamante ni moo toogoon ca zawiya Sëriñ Babacar Si di fa firi alquran uh-huh. mu nekk koo xamante ni kenn la foofu tamit tabaarakallaahu def fa loo xamante ni kenn defu ko fa euh, nuñ koy tuddee tuddeeti euh, tafsiru xuraan ki ko doon def Cheikh Waat Cheikh Ahmed Tidiane Waat de passage ñu ngi koy nuyu uh-huh. euh, kenn la koo xamante ni tabaarakallaahu yàlla bu ko cat jàpp amin di nuyu tamit suñuy kilifa ya fa nekk Serigne Moustapha Sy Al Amin uh-huh. yal na yàlla yokk ko leer guddal fanam uh-huh. gis nga sëñ Babacar du ma wax ndax sër bu jotul la ñuy njàmbaas te sër bu jotee kenn du ko njàmbaas te li alxaaji dudu kenn wax moo ci nekk uh-huh. toog naan Seydil Xaaji Malick uh-huh. nii la mel uh-huh. toog naan Serigne Babacar si lii mooy jikkoom te ñu wax fi lu mel nii te loolu doyul ndax man suma sañoon dañuy bàyyi sëñ Babacar mu développé kan mooy seexal xalifa mu commencé ko ca berceau ba ba ba ca jaag ba ñu xam kan mooy seexal xalifa te mën na ko xam na ko. amee na ko. yàlla bu la cat jàpp. macha ah, li ñu doon wax nag mooy ni. loolu la ñu duggee. Mhm. di ko ñaan rek bu mu dem mukk. Mhm. te tekki lu ñu benn bayit bi mu may ma ko. Mhm. bu ma ko mayee sagal na ñi may seetaan ñëpp. sagal na tamit li ma yéene woon ci sama xol. muy wawariste min nii. maa yaudu musajjalan li riwaayatin wa diraayatin tasjiila loolu daal laa bëgg nga duggal ma ci. ji sëñ sëñ Babacar Si bu buñ ko doon wax dañ naan géej gu amul tefes la mhm. géej baxarun la saahila mhm. la waaw kooku doy na sëkk ak barke Cheikh Mouhamadul Mansour ñu ngi lay sant di la gërëm Baye Mbaye Peex loolu rek lañ doon wax bàyyi mhm. bàyyi Serigne Babacar mbay doy nañu ci sëkk ak barke mu duggal ñu foofu asalaamaaleykum wa rahmatulah jërëjëf dañu bég ci ku la dégg nga wax xam ni dëggu nga ca kaddu ni déglu ko moo la gën a lépp ndax li nga bëgg rek lay waxtaane moo tax ku ñuy wax Babacar fay mm. euh, ci Oldin Faye moom itam dafa joxe dafa may yónnee juróom fukki junni mu ni fanweeri junni yi moo leen ko jox waaye ñaar fukki junni yi nag ñu joxal ko sëriñam sëriñ Mouhamada Si bu sëriñ Moustapha Seydou Jamil borom faas xam nga borom faas nag dafa yaatu maam góor gi Njaay dafa bakkoon ni Jamil ni Cheikh Tidiane baax te moo rafet jukko <laughs> ni Jamil Seydou Jamil Jamil kenn ko bàyyi kon plateau bi euh, riis gi mu riis moo indi lii lépp ak ki ñuy waxtaane nag ni mu toll ci réew mi ci ngoram ci juddoom ci yaram ci tegginam waaye ci wuuf njaboot gi ku dégg woy wi ko Alaaji Abdu woy war nañ ko tekkil xale yi Mhm. baleen mbangoo ji mi bu muy trompet bu muy guitare bu muy trompet mbangoo ji buur lañ ko daa tëggal mhm. sëñ Babacar sëñ Babacar ëpp ñooñu oh, moo tax mu ni teg leen mbangoo ji mi mhm. mbangoo ji mooy gajal de moom la ñu yee buur fajar se euh, sëñ Abdou nag dafa indi tambour yooyu àjjana la jógee mu bëgg ko misigal magam moo tax mu jox ma juróom fukki junni yi mhm. ñaar fukki junni yi nag dañ koy teg ci loxol Mamet Mbay mhm. nga yót ko sëñ Mouhamad Asi mhm. moom itam mu ngi nii foo ko defee nag ñu déglu di fàttali rek ne que euh, aussi euh, Aziz Ndiaye moom tam am na lu mu jox suñu papa euh, Haj Mansour waaw ala ale dafa yónnee ni mi ngi yónnee Alaaji Mansour Mbay téeméeri junni ndax as Mansour Mbay Abdoul Aziz moo sàkk mu toog ak bugaan ak man mi toog kenn du waxtaane ku toll ne sëriñ Babacar si ci réew mi te dégguñu kaddu Mansour Mbaye dama am waaw ah benn bi Abdou benn bi de euh, Njàmme Diop ak Nogoy Sarr ca Daaru Xudóos dañu yónnee cinquante mille francs euh, Demba Ka EDK ak ñoom Njoogu Mbuub ak Madina nga xamante ni xam nga leen. waaw xam na xam leen bu baax ñu ngi jotal seen nuyoo euh, xaalis bu bari lañ ma yónnee ne ma euh, maak ñi may àndal nañ ko nañ ko dimbandikoo ci confinement bi. <laughs> wallaay moom Demba Ka moom Madina Alak Njoogu Mbuub ak Asfal ñoom ñëpp ñoom ñoo. baay itam di Kabir Gajaga boobu mm-hmm. moom it mu ngi lay nuyu di la ziyaara di waxe ni moom itam xam na ma xam la ma wax mm-hmm. eh, tabarakallahu xëy na sax xat na waaye Moussa seen moom itam di soppi Seydi Jamil bëgg sëñ Babacar Si moom itam tabarakallahu eh, yónnee na fi ay teraangaam Eh, mook Baara Ngiraan ak Habib doomam ak soxna Marème Souma ñoom ñëpp yónnee nañ seeni teraanga mhm. ni naa leen ko biralal wax ko mbokk yi xam nga itam loolu mënta ñàkk ndax wax la loolu faaw nga wax Demba Ka mi tudd mhm. Demba Ka day ku baax di kenn ci Medina Mbuub bu sëñ Babacar Sy Mansour day ñëw ci Medina Mbuub Demba Ka moo teeru doon ko yaru nag lépp loo gis mu def mu def ko lu baax ci Tiwaawoon sëñ Babacar Sy Mansour sant na ko mu def ko Touba moo tax Demba Ka ak ñoom Madina moom ñëpp. ñoom itam ñu ngi leen di nuyu. waa dama dama fee am ñaari yóbbante. yóbbante bi ñu joxe bi bu Amin Mbaye bi joxe woon. mu ngi ma koy wax léegi ne ma moom la ak benn xaritam joxoon na ma tur bi nag. mais mu ngi nii ci euh, après da nga ko tuddu mais maa ngi santaale tamit. Mhm, parce que mhm, nee naa si. Mhm. sa sa nawle jigéen ba ca kër ga. Ah. dafa ma yónnee message ne ma gërëm nga ñëpp. te tuddoo sa kër gi. waaw <laughs> ma ne ko du yoon. du de. kon du ko de kon da moo ma koy may. <laughs> muy muy soxna si. Ah. waaw nga toog nelawul ak njaboot gi. ñu ngi leen di ndokkeel di leen wax. waaw ah, kañ day pend taal. bokk ci njabootu Seex Omar Fuutiyu Taal. macha dëkk ca luga moom tamit mu ngi toog di ñu seetaan. ak way juram ak i frère am ak i sœuram yëpp. jërëjëf ñu bàyyi ustaas ñu delluwaat ci jàng yi. waaw waaw yóbbante bi ñaari yóbbante la benn bi maxtar Thiam la di taalibe Serigne Abdoul Aziz Al Amin mhm. di benn bijoutier bu nekk Tivaouane mhm. nee na yónnee na dina yónnee cent mille francs mhm. ki ci des El Hadj Mbengue Diop nee na ku ñuy wax xadiloo nekk ca Fooñi yónnee na cent cinquante mille moom dina fexe ñu jot ci di sant imam xalifa bu baax euh, di ngeen baal ma rek ma wax ñaari kàddu ndax it sama jataay fii dara waralu ko lu dul libaay Xalifa wax ndax moom miin na ni Tiwaawan ga ñu dëkk sax bu ñu bu ñu fekkee ci tànt buy yegg si ñuy joxe rajo bi hmm. miin na ci ñu nit daje bu ñu daje ak moom bu yegsee ñu ñu teg bàyyi lañ doon def ba ko mu doxal hmm. miin na ci ñu fu ñu daje ak moom li nekk ci sunu dënd te jóge ci moom ñu wane ko kon bu daje melee nii nga bàyyi noonu kumpa dem ci ku xamul dafa am lu may ragal te olof day wax ni wax ca teel mujj ga rafet Abdoul Aziz Ndiaye bu Baye ale Ndiaye kenn présenté wu ko kenn wanuma ko kenn wanalewuma ak moom yàlla moo ñu boole sëriñ Abdou moo ñu boole turandoom di sama turandoo uh-huh, uh-huh. li wax ci télé laa koy waxe te du ko dindi keneen du ko dindi Cheikh Samba nga ne seede la ci. Serigne Abdou ñu boole wax ko lim koy wax wax ma lim may wax. loolu moo nu boole. loolu mooy sunu teewaay fii. macha allah. waaye ku gis xaal bi. xam ni bu doon sunu sago ñun dong. ak sunu doxalin ñun dong. kon du demee nii. dëgg la ndax bi ñu yegsee maa ngi wax Baye xalifa ni ko ah. Mm. tey de dinaa jaaxle. Mm-hmm. ndax nga toog ma war a taxaw di wax. loolu dina metti ci man du dëgg uh-huh. looloo tax lii juróom benni foo yu ma bindoon la ci sëñ Babacar uh-huh. benn baat tuddaguma ko ci ndax toujours am na lu may bàyyi xel. ñu bàyyi la nga yëkkati après ñu dellu ci ci waxtaan d' <laughs> accord comme noonu la kon dañuy dañuy dellu ci waxtaan bi ndaxte temps bi tamit mu ngi dem heure baa ngi dem di fàttali rek ne que Thiané Gueye mu Serigne euh, Babacar bu nekk New Delhi moom itamit am na lu mu leen yónnee bëggul nag ma tudd som bi mais xam naa suñu génnee plateau dinaa leen ko woon donc dañ lay bàyyi euh, sëñ bi nga nga yeggali waxtaan wi. Ah, sëñ Babacar. benn turandoo borom daara ji Mansour Thiello. waaw ci tabaarakallaahu dafa am teraanga yu mu yónnee incha allahu nee na ma nag bu ma ko wax ci ci tànt ci mbooloo bi mhm. naa bàyyi noonu waaye nee na mu ngi ànd ak ñun de tout cœur ci émission bi di kontaan ci Bougane ak waa Sen TV. macha mhm. allah. bu ko defee ñu daal di daal di continuer ci waxtaan bi. Mhm. Oustaz Abdou ñu ngi lay ñu ngi lay sant bu baax. Euh, xam nga programme mu télé moo demee noonu. programme rajo moo mel noonu. bàyyi du kenn donc mun na nekk ci tànt bu bët set. Euh, Abdoul Aziz rek mën na nekk ci tente bu bët set mais bu dee programmation télé xam nga man dong mën naa présenter émission Mouhamed Mbaye dong mën na ko ndenne mën na ko mais dañuy def divertissement ay personnes yu bëri yoo xam ne sëriñ day dajeeg ndo day dajeeg euh, ndongo daara bi mu jàngaloon ci benn jotaay ku nekk génne ndax ku nekk ak ña koy safoo ca liy génn loolu la rek du du du daara ji moo nekk fii la ñu jàngee ca daara ji la ñuy génne ngir ñu deful daara jariñoo ko waaw fu ñu comprendre ko Baye Baye Khalifa <laughs> kon ñu bàyyi la nga daal di continuer. xalifa dig ma baalati de. waaw waaw waaw. waaye Doudou. am sab jaam. ñu koy wax Alsaan jóob leemu. waaw. di denc itam sa rakk. waaw. muy soxna Ami Diop. Mhm. ca New York. moom mooy jaam bi. ñun ñooy sang bi ndax ndeyam soxna Mbay moo nàmp yàb bi jox alaaji Mbay doon doon mu nàmp mhm. kooku xam nga. loolooy mbokk ñun ñooy sang yi. waaye tey nag moom mooy sang bi ñun ñooy jaam yi kon. Mhm. nee na daal jox na jox na deux cent cinquante mille. Mhm. hadiye nag Seyd Cheikh Ahmad Tidiane si Al yal na ko yàlla fa yiw. ñu baatlu rek. Abdou Aziz dinaa la tontu. ndax ku sañoon booy jàngale ñi ngay jàngal ñu tari ci sa kanam. nee na. baal euh, baal ma papa kii woote léegi. soxna Aminata Dia. moo ma doon woo léegi mi ngi wootee États-Unis mu ne moom dina dugal deux cent mille barkeeloo ko ci sëñ Babacar si ku soob sëñ Babacar la eh, lii asalaamaaleykum wa rahmatulah bokki julli di bokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox rajo allah samedi le ci seen grand plateau ngeen war ci ànd seen mbokk gànn mi seen maxtaar ñu war a waxtaanee ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul samedi le 23 incha allah seen TV na ko ñëpp bàyyi xel te ànd ceeg moom incha allah jàpp layes fii ci seen TV seetaan seen émission grand plateau ànd si ak Soclean détergent bi africain yëpp d'accord ni moo fi mën ak supermarché low price EDK oil lépp loo leen soxla ci kër gi supermarché EDK oil njëg yu yomb seeni showroom DSL mi représenté marque Inco ak total bi professionnel yëpp taamu ak Doudou Poulet def leen seen commande ci 77 568 55 40 47 wala ci 77 566 22 70. ak seen boisson. ok voilà kon Hadj Mansour dañuy bàyyi suñu papa Khalifa Mbaye mu yeggali waxtaan bi. Mhm. ok papa euh, kan boog ñu daal di lay bàyyi nga continuer ci tomb bu am solo bi nga nekkoon ci. Euh, mbënd maam Cheikh dafa jàngale sëñ Babacar Sy ci benn résumé. mu ni alima ala xayril jazirati mhm. innaha ra'at qablu qutbal yawmi fii mahdihi tifla nee na yow mi organiser plateau tudde ko sëñ Babacar Sy ci 2S te njaboot yi ci ci Sen TV maa maa dama juum maa ngi jégalu benn ñu ngi ñaan mbokk yi ñuy seetaan fépp xam nañ seen yéen ak seen pas-pas wante itam li tax ngeen di kontaan bu ngeen ci continuer ci téléphone yi itam da ngeen di yàq émission bi kon dootul am solo ñu ngi leen di ñaan ngeen ñu continuer ci waxtaan ba am solo bi après bu ñu génnee ku nekk la nga nax boo wootee ba Ablaye euh, ñu jot ko bu defee tubaarkàlla mu dem si ñu mag a dem ndax waxtaan bi nga nekk dafa am solo papa parce que dars bi nag bi nag nit ñi am ci sëñ Babacar résumé waay baax na top mu ni alimma ala xayri aljazirati innaha ra'at qablu qutbal yawmi fi mahdi tifla mu ni yow bugaan yow mi organise ci seen TV plateau macha allah pour ñu waxtaane sëñ Babacar si radiyallahu taala boo bëggee xam kan mooy sëñ Babacar alima wàccal ma ala xayril jazirati ci île bi gën ci île yi mooy Ndar ndax innaha il boobu ra'at qablu moo gisoon ca bu jëkk xutbal yow mi kii nekk xutbu tey fii mahdihi mu gis ko ca bersom ba tiflan muy liir mu ni ra'at fii abi bakrin mu gis ci sëñ babacar sabiyan nee na muy ndaw ba pare mu mën naa an lépp lu ndaw di def mu tere ko boppam mësula jaar ci ndaw mhm. fa lama xawaa tiflahu la il bi gis lii bi nekkoon ci berceau bi shiblan muy gaynde gu ndaw wa in adraka moo am ñaar fukki at rek nekk waliyu mhm. kon nga yéemu ci sëñ Babacar parce que wilaya ci ñeen fukki at lay ñëw nubuwa ci ñeen fukki at lay ñëw waaye kii moom bi mu amee vingt ans ñaar fukki at muy genn wàllu ñeen fukk nekk na waliyu lu tax laata muy juddu lii genn wàll gi ci moom moo nekk matière mais geneen wàll gi ci des leer la parce que ku ko jur Cheikh Al Hadj Malick moo ko jur. Ah. radiyallahu taala anhu kum ko jigéen ju sell. ju ñuy wax soxna roqay soxna roqay njaay moo tax fa fa in adraka al ashirina fa huwa waliyuha mhm. sarairuha tabni lahu al qawla wal fiala moo tax góor googu nga xam ni ñaar fukki at la am di waliyu lu mu wax mu tabaxu lu mu def mu tabaxu moo tax plateau bi sax ñu defe fii maa leen ko wax fii insha allahu télévision bi dina fitti ñépp di ko dégg ku neex ak ku mu ak ku mu naqari parce que sëñ Babacar Si lu mu laal mu barkeel lu mu dugg dugal ca dugal ca secret jërëjëf Mbaye jërëjëf mu ni jaziratu xaalaatin xisaanin fa innama lahunna sadan min saalihatin biha tutla nee na soo bëggee gis dëkk boo xam ni jigéen ña dañuy yor daara di jàngale alquran nee na demal demal demal ndar nee na soo dégloo nee na dinañ la limal jigéen ñu sell ñooñu karaimu an jabnal kirama fa kullu man atahunna laaqa fi zarahunna ma adla nee na jigéen ñu tedd ñoo jur ji ñoo jur ay góor ñu tedd fa minhum qudaatun ñu ñu jur am na ci ñoo xam ni ay attekat lañu uh-huh. waa dama dama koy baral uh-huh. temps bi lay bañ fa minhum qudaatun nee na am na ñoo xam ni ay attekat lañu. Mhm. fil madaini qaadatu nee na dëkk boo dem fekk leen fa ñuy gidd te mat ko. waaye isa nataqu bil bil xukmi adnaw bi adla nee na fu ñu addoo ci atte nee na atte ba la mhm. lahu fi irtidaai ummahaati maalimun wa ay irtidaai min razanatihi ala nee na ma lay xamal ni kii ma lay wax muy sëñ Babacar si nee na ku sa ndey gërëmul. doo baax ku sa ndey gërëmul doo dem aljanna mu ni sëñ Babacar si nag ndeyam da koo gërëm mu ni waaye nag gërëm googu ko gërëm ku mu bokkal da gërëm waaye nee na ngërëm la yëpp dignité sëñ Babacar a ko féete kaw mu ni fa ma malikun adra fii laa bëggoon a ñëw minim ni ruqayatin bi maa huwa fii diinin wa fi sunnatin awla wala shafii adna ila alfahmi min fatan tasawuruhu bil aqli qad jaawazal aqla mu ni fama malikun xaw ma menn malik adra mu raw mi nim ni roqayatin ci doomi soxna roqaya jaay ji ah. waaw xalifa fama malikun la wax de xaw ma menn malik mu raw doomi soxna roqaya jaay ji te ñun xam nañu menn malik malik bi jiitu mooy malikum nu anas téere yi ñu tabax ci yi ñu yi ñu bind ci l'islam bi yëpp malikum nu anas a ko bind parce que lu leen jur muwatta moo leen jur te nee na fa ma malikul adra minim ni roqayatin xaw ma malik mu raw doomi soxna roqaya njaay te malikum nu ana sa ngi fi malik faawaat mii ñu xam mu jur ko moom itam nee na téere yi ñu bind ci sharia yépp suñ ko lakkoon ba mu nekk doom man malik dinaa ko bindaat te duma ci bàyyi génn liif kon malikum nu anas mais moo jëkk a bind mhm. malik fawaat mi nee na la commencé ca malikum nu anas ba ki mujjee bind ci lislaam nee na lu lu luñ fi bindoon suñ ko lakkee dinaa ko bindaat ca duma ci bàyyi génn liif te nee na xaw ma malik mu raw doomi soxna roqay njaay ji mu ni wala shafii addina ila al fahmi min fatan tasawuruhu bil aqli qad jawaza al aqla mu ni shafii nee na gënu jege ak dégg nee na góor gi nga xam ni bu la jàngalee ci xel rek nga xam ni nii xelam dépassé na lépp lu tax mu dendale Malik ak Shafii Shafii bi muy jàng si ci Malik mu watta ñëw Madina yoor yoor la fa Malik di jàngale ba ñu lu mu wax rek Shafii jël baaraam bi teg ci làmmiñ wi di bind ci tënk bi Malik di ko xool rek mhm. ba ñu noddu tisbaar mu ni ko yow makk nga jóge mu ne ko waaw mu ne ko ci Quraysh nga bokk mu ne ko waaw mu ne ko maa ngi la xool sopp la may jàngale ngay focc sa tiflit mu ne ko li nga doon jàngale laa doon bind mu ne ko woy may wax ngay wax li ma doon jàngale waa taril ma ci benn xadiis mu commencé an Naafi an Abdullah ibn Omar an saaxibi hadihi rawda ba fi ko Malick cëppee ci bi ñu noddee tisbaar Malick jël ko taf ko ci moom ni ko xale bu mel nii laa doon wut jàngal ko muwatta mu ni la nag wahaa huwa ah min bayni bahrin wahaa huwa za min bayni bahrin wa nahrihi hakiman yara fi nahri fi bahri wa nahri ma jalla mu ni la nag comme dama laa waxoon ni la sëñ Babacar ndar la la juddoo ndar lu fa nekk amul amul géej. amul dex. géej géej dex gi fu ñuy laalante. du foofu. marajal bahrayni yaltaqiyaani baynahuma barzaxun laa yabgiyaan mu ni waxaahu waasa mu ni sëñ Babacar a ngi nii. min bayni bahrin ci diggante géeju ndar gii. wa nahrihi ak dex gi. xam nga lum ci jublu. Mhm. min bayni bahrin ci géeju sharia gi. wa nahrihi ak dexu xaqiqa gi. xakiman mu doon ci ku xereñ. yara fil fi fil yara fil baxri wa nahri ma qad jalla lu feeñ ci baxru shariati sëñ Babacar si xam na ko lu feeñ ci nahrul xaqiqati xam na ko yara fihima ma andal faridati innaha tukaffiru zanban lil muridi mm. bi maxtalla mu ni la muy gis nag muy feeñ ci diggante géej gi ak dex gi nee na dafa dafa doon wurus woo xam ne nii benn la loolu ahmadu moom la sa baay doon way naan xalifaay sàngal kam bu la neexee am ca sang dawal fuut ci naan ci naan ay soppe am nañ cay ndawal fot ci mbay sangu mbay min tiib max mooy docteur bi waaw tànk xalifa di bëjant loo bañ bañ mu tiim la leeralal lii la may mbay minti max naa mooy docteur bi waaw wallaay bari fay tànk bay ah. minti bi ma xanaa def leen nii kuy bañ nii doo jiital xalifa mbay si kon bu sareet jiitoo fas daanu xaj naa ca mbay minti bi ma xanaa oo oh. mu ni la isa kasurat tilkal miyaahu fa yaalaha tunadifu jisman aw tusafi bihi zayla mm-hmm. nee na sëñ ba ko sob nee na ak nu mu mën mel nee na bu ñu ko sóobee ci ndoxum sëñ Babacar si radiyallahu taala anhu nee na lu mu tilim tilim nee na dina set moo tax nga dégg silmaxa yi daan way naan Seex Tijaan sa bàyyi ku ko gëm loo tilim tilim di nga set fa kum rufiat anhu najasatu indama yusabu alayha min dalain biha tujla nee na sëñ Babacar si nee na radiyallahu anhu nee mooy géej wala dex goo xam ni nee na ki mënta dem ca géej ga ak dex ga nee na na yóbbante ñu wutal ko ca ab siwo wala ak ab baag nee na siwo boobu ak baag boobu nee na bu ñëwee ci yow sa yaram li ci nekk ci tilim yépp dina ko setal say mbubb lu ci nekk ci tilim yépp dina ko dina dina ko setal mu ni fa haza abou mu ni kii la doon wax nag mooy sëñ babacar ajibhu nee na nanga ko daa bu wootee ajibu na nga ko wuyu isa daa ci plateau bi ajibu na nga ko wuyu isa daa ca kay joxe ay ay teraanga mhm. ajibu na nga wuyu isa daa ca ci technicien yeeg ñiy jàppale ñëpp waxa fit janaaxa dulli mhm. tajëhal bii dulla nee na ku toog ci kanam sëñ Babacar wàcce say mbag mhm. nee na dootoo torox addina doo torox alaaxira macha doguma la mais dafa am benn euh, vidéo boo xamante ne euh, ay xale yu nekk Tiwaawan kontaan lool ci émission bi. dañ cee euh, kontaan donc dañoo génn ci mbedd bi amaana di wane seen joie ñu leen di wax rek ne que dañoo nekk en période de couvre-feu donc ñu ngi ñoom ñu ngi rafetlu émission bi mu nekk lu lu daw yaram mais ñu leen di ñaan rek ne que dañoo nekk en période de couvre donc ñu ñu comprendre loolu respecter mesures yi parce que gis nañ lu ñu def gis nañ ko yéen bi yegg na. donc nañ toog ci kër yi rek comme ni niñ ko waxee état du Sénégal comme ni mu génnee mesures yooyu toog ci kër yi donc nañ leen ñaax rek ñoom tamit gis nañ li ñu def yëpp mais mais mais mais nañ toog ci kër yi. toog leen ci kër yi rek. Uh-huh. sëñ Babacar dina leen fa fekk. Uh-huh. ndax Tiwaawan dafa war a joxe exemple. dëgg la ndax sëñ Babacar si mii la taala anhu uh-huh. moo fi gënoon a yaru. loolu mu doon am ci lépp. da ko boole yaru. kon nag njaboot yooyu di génn ci mbedd yi nañ dem toog ci kër yi rek léegi cinq jot couvre-feu bi couvre bi jeex mhm. wa haza ibnu usman rida zurhu bi rida yaqul laka ixwaanu safa marhaban wa sahla nee na nee na doomi usman jàngi noonu sët nag la ci jublu nee na demal nga ziyaare ji ko nee na soo demee ziyaar ko nee na ñi ñuy wax les frères de la pureté nee na ñoo lay dogale ni la marhaban yaatal nañ la wa sahla lahu fi lahu siqatun fi nafsihi baada kawnihi mahata nufusin ma aazza wa agla nee na sëñ Babacar na ku wóolu woon boppam la ndax wóor na ko ni nii bakkan yi jëm ci moom yépp muy bakkan bu tedd ku ñëw dina la garantiir ndax dina la jaarale yoon lahu siqatun fi l majdi wal majdu ilfuhu kaza siqatun fi nasri wal xissati l fudla nee na li nekkoon ci moom ci tedd nga moom daf koo gëmal boppam tedd nga boppam nee na gëmoon na it ni yàlla dimbali na ko bayit bii nag mhm. moom laa leen di baaxe bayit bii tëj way wi falaa xayabal mawla al ali rajaana wa kullu rajain fiihi yastawjibul bazla mhm. fala xayyabal mawlal ali yàlla mi aji kawe yàlla bu mu tas sunu yaakaar wa kullu rajain fiihi nee na bépp yaakaar boo yaakaare yàlla te jaare ko ci sëñ Babacar yastawjibul bazla nee na yàlla nee na dina dina warlu su dee chèque maa la koy jox kon nag ñu ngi ñaan ci barke sëñ Babacar Sy radiyallahu taala anhu mm. fala xayabal mawlal ali raja ana lépp lu nu yaakaar yàlla bu ko yàlla tas wa kullu raja in fiihi mm-hmm. yastawjibul bazla mm-hmm. yal nañ ko yàlla defal ci barke sëñ Babacar Sy radiyallahu taala anhu ngeen baal ma nag ni ma ko barale mm-hmm. waaye damaa xool heure bi mooy quatre heures vingt-trois te bëggoon naa yëf yi ñu yeggalee ko noonu sëñ Babacar Sy nag radiyallahu taala anhu dangaa doon Maodo moo koy wax wali zaaka dani loolu moo tax qaala lahul imaamu Maodo moo wax sëñ Babacar ni ko uudiata mhm. dénk nañu la sirra qiyaadatin sa kërëb wam mat jaam yi mahmulan loolu yaa ko yanu nañu la waaye wari sa min nii nag maa yaudu musajjalan li riwaayatin lépp ni nii moom laa wax ni li ñu bind ci kutubu shariati kulliha lu ci ñuul jàng naa ko man Maodo loolu donn nga ko ci man sëñ Babacar Si macha allah am na beneen xam-xam boo xam nag ni nii nekkul ci téere yi hmm. mooy xam-xamu diraaya moo tax Amadou sa baay jàmbaar nee na ko am nga xam-xam am wilaaya ah, am i am diraaya am i may li ko buur laaw defal am konika moo ma taway am kam am wilaaya am diraaya am i may ji am na kam kam am wilaaya am diraaya am i may ci li ko buur laaw defal hmm. am konika moomata mooy tukkulóor ak wala fëgg naar ku ci musalam bu tumbay góor gi booleeg la nga xam jaggi la tey moomata mooy bay si Maodo am ku ko am am nga ku ci muslam but mbay mbay si booleeg la nga xam jaggi moomata ngoy gaa yi kon kuy gàtt xel naan du ma ñaanal Seydi Mbay Maodo ñaanal na ko cakk njaal bendu jaas nan wetu ay ko am am na yoneen am Maodo am Cheikh mi nu doy Maodo ak Cheikh mi nu doy waaw gaa yi kon kuy gàtt xel naan du ma ñaanal Seydi Mbaye Maodo ñaanal na ko ca njalbeen du jaas nan wato ay moom kay dafa tolloo ko ko ñaanal yàlla delloo ko ci yow def ko jàmm ak suturaak mbég kaa jëg na du tey ginne mooy cheimun tuhaqiqu jawharal insaani añi jàng ñëpp nag lii may wax nañ dem gëstu ji ko ci histoire ban jaam lañu mësa dégg wala ban yonent mu taxaw def déclaration ni man musuma mooy yàlla sama turandoo rek a commencé wax ci li ma xam moo toog ci tiwaawan ñun ñi wër ko mu ni man Babacar añ laa bëccëg laa sotti mosuma mooy yàlla sëñ Cheikh Tidiane si nee na bi ma ko déggee nee na damaa dem jàkkaarloog jant bi ni bu jant bi soo te dara dalu ko rekk ma xam ne nii li mu wax am na ndax yàlla lii du ko may kenn mu ni man Babacar musumaam mooy yàlla gis nga moo tax jaam bi yàlla di tiitaroo sëñ Babacar si bokk na ci sëñ Abdou Aziz Al Amin ci moom laa dégge nettali bii may bëgg a nettali mu ni bi sëñ Babacar génnee àddina nee na dafa am benn taalibeem bu ñëw nettali ma benn gént ni ma man di dama gis sëñ Babacar ci pooru dakaar bi mu sol lu weex tàll nit ñépp rang waaye am benn montagne këriñ bu nekk ci kanam muy yéeg montagne ñu këriñ boobu ak yéreem yu weex yi yéeg ba ca kaw mu toog fa lu yàgg nee na ba nit ñi naan ci seen xel yi waaw góor gi ak yéreem yu weex yi ak montagne këriñ bi nee na mu wàcc romb nit ñi ci côté bi rombaat leen ci côté bi nee na taxaw ni leen yéen a ngi doon jaaxle ci sama yére yu weex yi ma yéege montagne këriñ bi te dara takku ci ma leen di xamal ni sama yëre yii mooy sama jëm montagne këriñ bi mooy àddina ni ma ñëwee woon àddina ci leer takkuma dara bi ma wuyjee sama boroom noon laa leere moo tax góor googu yàlla sa baay da daan wax naan yal na yàlla xoole nu mbay sunu ngëm nu nu yóbbu ko mu jàkkaarloog yonent na la jàkkaarloog cheikh ni mu jàkkaarloog Cheikh na la jàkkaarloog aas ni mu jàkkaarloog aas na la jàkkaarloog yéen ni mu jàkkaarloog yéen yàlla noonu la jàkkaarloog Serigne Babacar ni mu ni mu jàkkaarloog aas mu jàkkaarloog yoneen na la jàkkaarloog Cheikh ni mu jàkkaarloog Cheikh na la jàkkaarloog aas ni mu jàkkaarloog na la jàkkaarloog yéen ni mu ni mu jàkkaarloog Cheikh na la jàkkaarloog borom ba asna la jàkkaar jundul muhaymini laa xawfun alayhi wala xusnun yuzaxzi wastal qiraat ñu ni borom gaynde njaay mu ni góor gi lam yabqa baadaka fi lil islaami min sanadin huwa al amaanatu fi xifdi al amaanaat ne góor gi mat na abun abiyun habibun saaxibun wa axun wa sayidun wa imaamun do karamaati ñu ni góor gi mu ni nazaata min kulli cheyin mil hawa wa gada lil gayri indaka maanam min kinaayaati ñu ni boroom daara ji lam yabqa baadaka lil islaami min sanadin lii turandoo Seydi Cheikh Ahmad Tidiane Serigne Cheikh moo ko wax sëñ Babacar xam nga lu mu ko wax sa ginnaaw yow sëñ Babacar bàyyi woo fi ku ñu mën a wéeru ñun nga ni huwa al amaanatu fi xifdi l amaanat ñu ni Serigne Cheikh lu tax sëñ Babacar bàyyi wu fi ku ñu mën a wuutu mu ni parce que sëñ Babacar mooy sécurité bi sécuriser sécurité bi kii mooy abun Serigne Cheikh nee na Serigne Babacar bàyyi la abiyun Ahmed soo bëggee xam Serigne Babacar baay bu bañ lu bon. Habibun. Ahmed Serigne Babacar soppe la. saaxibun. dara dàqul ci àdduna ñu laaj la koo sopp nga ne Cheikh Seydi Aboubacar Si. saaxibun. Ahmed ku ne mën naa tiitaroo sa xarit waaye tiitaroo sëñ Babacar Si dara dàqu ko. saaxibun. Serigne Babacar Si àndandoo la boo xam ne bala ngaa xam ne sëñ Babacar àndandoo bu mat àndandoo. du ñu yemale sëñ Babacar ak leneen lii ma lay bëgg a nettali sama maam bi jur sama baay moo ma ko nettali muy soxna Xadi li moo daan fóot yëri taxaw di wax ak yow denc naa ci ndoxum tooyalu yëre sëriñ Babacar si te moom sama maam moo ma ko mayoon ci biir néegam moo ma waxoon ni ma Abdou ma ni ko ah mu ni ma ba ba sëñ Babacar dëddoo ba léegi man Xadi dootuma jàkkaarloo kenn di ko wax soxla mbaa ma koy dékk loxo mu ni ma est-ce que yéen xam ngeen li ngeen di wax ci sëñ Babacar ma ni ko déet maam ñun dañuy jàngal rek ak dinu nettali ma man man bi may fóot ay yéreem am na bëccëg boo xamante ni sa nee na day fóot yére yi ba pare xam nga yére sëñ Babacar Ahmadou daanuñu ko paase. sa maam nee na da ko daan tàpp ne da daan jël bant di ko tàpp ne am bëccëg boo xam ni séeréer si ne ci kër gi am ci ko indi benn dénk tëral ko nekke dénk bi daa am ginnaaw kër yi ginaar yu ci takk nee na moom it jotu ko seetlu mu wëlbati dénk bi jël yére bi teg ci jël tàpparka ji di tàpp nee na tàppa tàpp ba yeggal ne bi muy bëgg a yeggal bi muy bi muy bëgg a yeggal ci la ko xale bi ni yaa Xadi fi nga teg sa yére bi dafa am lu ci nekk te day taqal yére bi nee na li ko gën a yéem nag mooy bi mu yëkkatee yére bi yére sëñ Babacar Si bi taqul dara ci tâche te gis na li ginaar gi defoon ci dénk bi mu takk ci dénk bi nee na mu lem yére bi ber ko ba yére ya pare mu teg ko ca yóbbul ko soxna asukan parce que Ahmad sëñ Babacar daawul gis jigéen ku ne la dinaa dem ci yàlla tey laamisoo ki jigéen di ko ñemee ne ku ne la ëllëg ku ne la fii soo ko ko soo ko ñemee nee ko doo yegg ci yàlla Serigne Cheikh lii sëñ Babacar wax sànq Serigne Cheikh dafa wax ni yàlla su dekkalee jaam ñi loolu bi ko Serigne Cheikh di wax kenn nettali wu ma ko làmmiñam kaset bi mu ko doon waxee sama nopp laa ko doon dégloo moo wax ni man Cheikh Tidiane si nag lii ma leen di bëgg a wax waxewu ma ko bakkan te yéen xam ngeen ni dépassé naa waxe waxe bakkan ñu ne ko lu tax nga dépassé waxe bakkan Serigne Cheikh ni dootuma waxe bakkan ni mën naa leen a waatal ni su yàlla dekkalee jaam ñi kenn ku nekk dina am koo sagoo muy waaye yàlla it dina am ku mu sagoo ahmad bu yàlla dekkalee jaam ñi yàlla sunu borom day am ku muy sagoo waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dana ni yàlla la nga ma waxoon fa mu tolloon lëndëm nga ca nekkoon ba tax nga ni ma nañ ko yeesalaat ka ko yeesalaat sama sëri tama boole la woon ak moom sama sët la yàlla ni ko sa sët boobu akama koo miin yonent yàlla muhammad bisub tey man Moustapha sama sët boobu laay tiitaroo ñu ni sët ba kan la mooy Cheikhuna Tidiane Chérif El Fatimi bu keroogee moom mooy génn ak bijaaw bu jekk ba yont yàlla Muhammad ni cadeau bu may joxe wala tiitar bu may def maa ngi tiitaroo Cheikhuna Tidiane mi cheikh nag mooy wëlbatiku daal ni Moustapha liggéey ba yegg na waaye am na ku ca jàpp kan moo ca jàpp mu ni ko borom parasol balee ca jàpp Malick Fa Wade wele ma lee ca jàpp looloo tax Cheikh El Hadji Malick waykat bi di la wax ni parasol bi mu yor du ragal tàngaay junj la ngir ëllëg Seydi Cheikh Ahmed Tidiane Tidiane si nee na am na caq wurus boo xam ni yàlla da koy décoré da koy jox yonent yàlla Muhammad Moustapha décoré ko Cheikh mu ne bu keroogee nag yàlla ci boppam moo naan ku ne bëggee nga kala neex man suñu borom man sa man man sama borom bàyyi leen ma ma bëggee ki ma war a bëggee ñu ni ko koy bëggee ba bàyyi baal ma rek damay ratti wàcc rek bàyyi a nga yeggale ñu ni ko koy bëggee يوم يفير عشير من عشيرته وأمه وأبيه ثم زوجاتي كل امرئ شأنه يؤني ذا فذع غير رسولك مصباح الجنات ما للوسيلة في دنياك wa axirati li ngay wax dafa neex ki ngay tudd dafa neex man mi ngi koy tuddal yaa ma dàqal keneen ku koy tudd kon waxal. ana soppi Seex Seydil Haaji Malick. maa ngi ñaan ñi ronu plateau bi ak ñi ci kër yi di seetaan ku bëgg sëñ Babacar si jugal taxaw ñu màggal Cheikh Al Khalifa wajhal qilaad tajidi cheikh wax naa la ni bu yàlla dekkalee jaam ñi sa trondoo nee na ca xuurus ba yàlla danaan takkal leen ma ko sama waa ñu ni ko kan mooy sa waa ji sunu boroom ni yéen jaam ñi kan moo ma ci mësta mooy mu ni bu keroogee kenn yëkkati loxoom moom sëñ Babacar Si mooy wax ni man kër Si musuma mooy sunu borom yàlla ni am naa jaam bu ma mësta mooy ca xuurus bi moom laa koy décoré jël takk ba takkal ko sëriñ kër Si wax naa gars yi nag ni leen loolu sëñ Babacar waxoon man boog ci sama jamono kenn laa diggaat wax ko muy sëriñ Abdoul Aziz العالمين فعبد العزيز ندب واسطة العقد ومفخرة الآباء والدين والجد Pape Serigne Abdou Aziz zéro faute dund na ba dem kenn mënu ko dut baaraam Maodo si bu Alaaji Abdou moo ko waxoon ni ko yow Serigne Abdoul Aziz Al bu fekkee kër Cheikh Al Hadji Malick caq la perub diggale ba yow Serigne Abdou la bu fekkee kër Cheikh Al Hadji Malick chaîne la ano yi roofante yow Serigne Abdoul Aziz Al Amin la mi ngi ko donnee ci baayam Serigne Babacar Sy ma nettali la lu gàtt Thierno Yahya fii la nekkoon ñëpp xam nañ ko nitu yàlla la woon moom Thierno Yaxya ni daan naa gis yont yàlla Muhammad ba kanamu yont yàlla Muhammad dama koy mën a nettali ñu laaj Thierno Yaxya nan ngay nettalee kanamu rasulillah yi mu ne yàlla am na 124000 monde 16 monde yi yàlla du ci def lu ma tàgguwul man Thierno Yaxya Thierno Yaxya moomu keroog bi Senghor di wut réew mi Lamine Gueye di wut réew mi dafa am ñu ko fay pour mu ñaanal Lamine Gueye Thierno Yaxya ñu waxtaan ak moom pour mu ñaanal Lamine Gueye Thierno Yaxya nettali ni bi ma tëjoo dugg xalwa pour ñaanal Lamine Gueye nee na ci laa jékki-jékki dégg benn riir ñëw Cerno Yaxya nee na ma si ma ni xifeet gis ku muuru ba taj naan ma bàyyil li ngay laal ndax ki ngay ñaanal du toog ci chaise bi Cerno Yaxya nee ma ne ko yaay kan ba may wax ki may ñaanal du toog ci chaise bi nee na mu ne ko ki ngay ñaanal fii ak xamoo turu biiram munoo koo ñaanal mu toog ci chaise bi ndax ki nga bëgg a dàq fii ak xamoo turu biiram munoo koo xañ lim bëgg a am Cerno Yaxya nee na jëmm ji naan ko est-ce que xam nga Senghor mi nga bëgg a xaj réew mi nan la tudd ne mu naan ko Senghor la tudd Léopold Sédar Senghor nee na jëmm ji ni ko tuddul noonu Batman la tudd boo demee ca kaw turam looloo fa ne nee na mu ni ko yow la kan mu ni xuñat kaala ga muy Cheikh Seydi Aboubacar Sy bahral ilmi wal xikami ami shariati hadina li xayri subul Serigne Babacar Sy ni ko Cerno Yahya bàyyil si ñaari chaise ñoo am ci àdduna benn ngi ci biir benn ngi ci biti ba ca biir nee naa ca déjj mañ sëñ Babacar Sy bi ci biti teg naa ci Senghor ma ma gis ku koy dindi looloo tax Senghor toog ba doyal dem waaye carte jëlewu ko fi ba ko ko sëñ Babacar waxee ko fàllu boo yeggee wax ko li ma la wax ba mu yeggee sëñ fàllu ni ko ma lu Babacar waxa mu ne ko Babacar nee na nangam ak nangam mu ne ko Senghor seng ca kaw waay looloo tax Senghor doog ba doyal ndax ñaar ñi ko teg ñaar ñi ko fi teg moo tax kenn mënu ko fee jëlee Ahmad bëggoon naa la wax li sëñ Baba wax naa la sànq ni la Cheikh Al Khalifa Pape wax na wax na wax na baat boo xam ni jaaxal ñu bari te damay wax toujours ni nag ñam na ñetti prix waaye benn ba rek laay tànn mooy li sëñ Babacar wax ni yaa shaidan fii shibaki wa saabihan fii baraki waxal na kii ka kii fa kii ka kii ka kii ka kii bu la neexee yaa an fi sabaxi wa saabi an na kii ka kii fa kii ka kii ka kii ka ka su ga daf ma wax ni ma sëñ Babacar Si daa am naar ga naar bu ko fekk fa mu toog moom Cheikh Al nu yoon teeg moom ba yeggal sëñ Babacar Si jox ko gëdd waaye naar bi dafa xawoon xeeb sëñ Babacar ci ay at ndax lan liñ ñu ko moo wuutu Maodo te am 37 ans mu ne gone gi daa mën a muutu ku tol ni Cheikh Al Hadji man sama ijaasa duma ko ko wan de te ku ma dajal nga am ijaasa dinaan la bu la Babacar joxee delloo ko ko nekke moom bi muy wër dëkk bi di doxal loolu sëñ Babacar woona ay mag jox leen ay dog ni leen ñaanal leen ko ndax bu ngeen ko jàngalul dog yi buy dee di dem safara te mës naa werd benn peru salaatul fatiha te Cheikh Alhaaji Malick nee na benn peru salaatul fatiha njot la ci safara sëñ Babacar jox ñoom Serigne Aline Gueye ay dog ñu koy jàng ngir mu bañ a dem safara bi ñu laajee sëñ Babacar lu tax nga joxe dog yi dañu mënumaa teemu dee ndax Cheikhuna Tidiane feeñu na ma te wax na balaa génn ñu jël euh, malaaka mi jël bakkanam waaye safara laa koy dawal moo tax ma bëgg ngeen jàngal ko dog ñu jàngal ko dog yi mu ni ma naar booba nag la sëñ Babacar waxoon ni ko yaa shaidan fii wa saabihan fii barak laa taqiranna kii ka kii fa tax bëgguma émission bi jeex te jooyuma Sëriñ Abdou Jàmbaar ja <laughs> wax nga dëgg de asbaxtu asamaan si tëggul baay téléphone sonné ñooma fa jaan uxubirtu ni abdu dem na déedéet kay addiinu raxala ah, kan moo fi jooyoon sëriñ abdu di ne dem na sutura zahaba ngor dem na sellal mhm. jommi jaaxle ngëlëm shadida diine dem sutura zaba ay ngoru sellal tabia mhm. sëñ Abdou dem na tarakta taabaay jommi jaaxle ngëlëm shadida yenu yen bi billaahi kullar bi sabri wal ilmi bari ngor yaawutu sa baay ba jëhërën teg tànk bi ci tànku xalifa sëriñ Abdou wuutu Cheikh Tidiane ak Mansour maama Abdou Kaza Jamila mhm. yaa wuutu yeneen bi dëgg la baay wuutu Cheikh Tidiane ci diine buur bi yàlla sàmmal Moustapha ana soppi Serigne Moustapha si muxtafiina buur bi yàlla sàmmal Moustapha buur bi yàlla sàmmal Moustapha Ahmad dëggal Papa Khalifa mooy taamu Abdou sëñ Pa Malick soxna Fat Si mooy caatu Abdou yaa Cheikhi Moustapha Sabra la tahzan la tahzan la tahzan la tahzan la la la tahzan bul tiit taxawal taxawaayu baay bi mi ngi baaxe foo gesto billaahi dooweet wa salaama ala nabi rasuula alihi hum anjumi diini xaqa xulwun bi kulli lisaanin zikru chiimati cheikh dafa am kilifa gu ma message message léegi ni ma baat boobu bu ko cheikh Tidiane waxul nga firi ko bu ngeen ñibbisee maa ngi yéena ndax dem ba tey mi ngi la koy wax di ma ko wax xulwun xulwun bi kulli lisaanin ok loolu Serigne Cheikh moo ko wax sëñ Babacar Sy Serigne Cheikh Tidiane si ne xulwun bi kulli lisaan ñun ñaar ñii ñoo àndoon xëy suba teel dem kër kër góor gi mu jàngal ñu ko may ñu ataaya jox ñu kafe xulwun bi kulli lisaan xulwun lu neex la lu neex la Babacar si nee na lu neex la Serigne Cheikh nee na lu bi kulli lisaanin ci bépp làmmiñ bu mu mën a doon jikko si nee na neex na ci làmmiñ bu mu mën a doon ngay tudd jikkoy Serigne Babacar si daan naa la wax Cheikh ni la loolu Serigne Cheikh bëgg a wax mën nañ ko firi rek ci nii ñu ko ne nii li ñu dégg ci jamono mooy tudd jikkoy Sëñ Babacar weesuwul ñu ni la kuy Sëñ Babacar nga ni mësta mooy boroomam kuy Sëñ Babacar mësta ñàkk ba jël lu moomul kuy Sëñ Babacar mësta tiit ba wax lu dul dëgg kuy Sëñ Babacar mësta jàpp bàyyi kuy Sëñ Babacar mësta fecc kóllëre kuy Sëñ lépp bol bu mu fayul kuy sëñ Babacar mësta wor kenn ku mu seqal ci àdduna Serigne Cheikh nee na doy na ci nga wax kan mooy Serigne Babacar waaye. wa tayyibun bi lisaani dikru shimaati mu ne waaye li dàq nag la ca gën a dàq Ahmad Serigne Cheikh nee na mais tuddal turi sëñ Babacar si ci ngay xam ni nag Cheikh al Khalifa neex a tudd daan naa wax Cheikh mi ci daje yi ni ko xoolal tur woo ko tuddee mu neex Khalifa mu neex Mbay mu neex sëñ Babacar mu neex borom jamono mu neex Baye Mansour mu neex neex maami Moustapha maami bàyyi Seydi Jamil mu neex maami Mansour Sy Jamil mu neex maami Habib mu neex maami Soxna Umu Kalsoom Mbay mu neex borom pavillon doore ba mu dàqati fa yàlla nañu yàlla def ñun ñëpp ay dëggi-dëggi jullit borom bone carré bi mu gën a neex danaa gaa yi nag ni leen bone carré boobu la tax sëñ Babacar fasanteeg moom kóllëre du bëgg a sol bone carré rek di ko sol waaye ëllëg bu ñu bu gaa yi bu yàlla dekkalee jàmm ci la ñuy xam ni bone carré bi koron la te koron boobu yàlla nga ko ko takkaloon ca ësal looloo tax néew ak bonnet carré te euh, sëriñ bi daan nañu wax secret bi nekk ci bonnet carré ndax cinquante cinq la Tiwaawan téléphone ya di cinq boo fa dee woote bu cinq amul doo jot te 55 ñoom xam nañu lan la tollool ci turu yàlla yi soo ko ci woowee daf lay wuyu moom la moom la sëriñ bi doon wax sànq Cheikh Alhaaji Malick ni mujibu yaa mujibu yaa mujibu faqbal salaam aleykum wa. fa ju aajo gaaw fa mbay. tiisu dàqu fa mbay. laaj ko gaa yi daan mbay. ci biir Tiwaawoonu. jëmmi si làqu na tey. waaye cër ba génn fa tey. tey la sax gën a aay. wër na Tiwaawoonu. ndeysaan kii sama benn wëllëreel. mu nga dëkk ca Joal. boo tuddee Serigne Babacar day daanu. ma ni tax. mu ni ma daam benn bis. ma ànd ak samay moroom ñu war a dem biir géej ay t-shirt ne ma jënd ca xam ni fa Serigne Babacar Sy nekk ne ma sol samay moroom ñu war a dem biir géej ne 60 personnes lan woon juróom benn fukki nit ne bin demee ba ci biir géej gi suñu gaal gi jékki-jékki daal di toj ne ñi ma àndaloon ñëpp ku feey ba son rek la faat nee bam des man dong ci digg géej gi nee ma jaaxle lool sama xel ni lapp ci Serigne Babacar borom bone carré bi nee ma def ñi t-shirt bi ma soloon nee foto Serigne Babacar mi ni ma jàkk di ma xool ci biir géej gi nee ma ni ko yow Serigne baaba si yaa ni woon boo rusuloon maam Maodo ku la ci foto nga wuy ko ginnaaw yàlla fi ma toll yow dong laa fi yaakaar ndax may sama taawu yaay bu góor ne fi ma jékki-jékki digg benn baat di wax ak man ci biir géej gi ni ma duut njaay gëmmal duut njaay gëmmal ne wax ma ko ñetti yoon ne ba ma gëmmee maa ngi sentir benn jëm sama gànnaaw ne mu buux ma mbi ma buuxee ni ma xeppil ne maa ngi xeppee ci tefes gi ci barke Serigne Babacar Sy macha allah waxtaan bi ah, sax mu jeex waaye li ñu joxoon ci ci waxtu moom mot ah, ah. amaana dañuy bàyyi rek euh, kii di euh, El Hadj Doudou Kend mu euh, tàggatoo ak téléspectateurs yi laata ñuy ci suñu papa waaye du ngeen ma may ma rek ok benn yóbbante maanaam Pape mooy président daayira Pikine mairie Pikine dafa yónnee ay teraanga moom itam tabaarakallaahu soxna buri bu sëñ Babacar Si rako ami jonn di soxna ci sëriñ Babacar Si se bu soxnum lu xayri borom waañuy moom itam yónnee fi ay teraanga ni nañ ko wax sa ndijaay xalifa mbaay bu Mamat Sey Mbuub ak soxnaam mati tabaarakallaahu ñoom itam yónnee nañ fi cent mille francs ni ñoo ko barkeeloo ci guddi gi directeur de l' agriculture Omar Sané itam moom itam woote na fi eh, yónnee fi ay teraanga bi ci des mooy soxna Ndey Astu waxoon nañ ko léegi woo na ma léegi nii ni ma mu ngi biral contentement ci bés bi ñu def ndax moom sëñ Abdul Aziz mooy woy juram muy ko jàmbaare ci xadara bi tabaarakallahu moom itam xam ngeen teraanga yim fi yónnee ni kontaan na lool euh, càmmeñ sëriñ Muniiru si bu mudir sëriñ Moustapha si euh, moom itam léegi la raccroché ni ñu daal ñu jotalal ko nuyoom ak mam ci Bougane ak seen TV lii ñu taxaw yëpp waa mënuñu bañ a wax loolu ndax ay kilifa lañ yoo xamante ni mm-hmm. nee na Yacine Fall Italie nee na may nañu ay jesneer xadiloo bu tiyaawoon waaw yónni na alaaji mbeng bu ndox TV jox ko cent mille francs a ah, yooyu dañ doon bañ rek comme dañu waxoon ni mbir maa ngi xaw a kii mhm. waaye ñu joxe ko rek ngeen ballu dëgg la dëgg la léegi dañuy dañuy bàyyi kon euh, suñu papa xalifa euh, Mbaye mu tàggoo ci tënk rek laata ñuy jox euh, Mbaye Père peex mu bi ñaan lay doon waaye jàngale lay doon sëñ Babacar laa leen di laaj ban année la génn àddina 1957 1957 jëlal ma ko par ñaari chiffre ñaari chiffre yu jëkk yi lan la 19 la di xam ngeen ni 19 mooy bismillahi rahmaani rahim ah te xam ngeen ni nii bisimilah rahmaani rahiim baaw bisimilah rahmaani rahiim mooy secret fatiha. waaw loolu d' accord nañ ci. waaw léegi yeneen ñaari chiffres yi lan la. 57 ah waaw. di 57 la. waaw ñun ñëpp d' accord nañ ci. waaw multiplier leen 57 par 2. 114. 114 la lay jox. zamaana kunna zamaana yusmiuna alquranu sawta fatan zamaana yusmiuna alqurana sawtu fatan ci yéen ñi jàng zamaana am na jamono yusmiuna alquranu alquran moo nu daan dégtal sawta fatan baatu góor ga bu alquran waxee rek sëñ Babacar la lay jox zamaana am na jamono yusmiuna alqurana sawtu fatan am na jamono boo xam ni bu gër ga jàngee alqur bu bu àddoo rek nga dégg alquran ma wax leen ni mm-hmm. Mm-hmm. sëñ kër Si radiyallaahu li mu wax ci wolof alquran la mm-hmm. ah. moo tax li may tëje mooy ñaan boobu mu def ci ah. salaatu boobu sama turandoo moo def benn salaatu ci yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam allahumma salli wa sallim dina dinaa la jox nga nga tëj allahumma salli wa sallim dama lay wax yóbbante rek ah dama lay wax yóbbante rek dinañ ci ñëwaat dinañ ci ñëwaat nañ ko bàyyi mu tëj ñu bàyyi ko mu tëj très rapidement allahumma salli wa sallim ala rasulika al amin al mubini bi daafi kulli suratin min suwari al quran alf alf wa bi daafi kulli ayatin min ayatihi alf alf wa bi daafi kulli kalimatin min kalimatihi alfu alf wa bidaa fi kulli xarfin min xurufihi alfu alf xam nga salaatu boobu nu ma koy firee nit ña dañoo tase kenn ku nekk nii na wax li mu bëgg ci xaalis alaaji Ablaay Mbay peex ni man dey studio bi ni mu toll ku ma ko duyaloon ak ay billet <laughs> yu euro wala ay dollar ba mu fees rekk kontaan na keneen wax leneen keneen wax leneen. man de saxaar mu dem Mali. mu dem Mali. Ah. mooy mooy express. Ah. Mm-hmm. mu ni mu sëf crayon. ñu ni ah xanaa kon da koy jaay mu ni ba mu jugu jaga mu bañ mooy saxaar gi dem na ba mënatu la dox. mu ni nga fab benn crayon. nga bind kaalis kaalis kaalis kaalis kaalis kaalis crayon mu jeex takk takk takk nga fab nga bind ba saxaar mu jeex saxaar bu express bu sëf ay crayon mhm. ngay jël benn crayon di ko bind xaalis ba mu jeex ba crayon bi <laughs> sama turandoo def mhm. moo ëpp crayon boobu dani mu ngi julli ci yonent bi mhm. julli goo xam ni day jël yàlla da ngay jël leeru yonent bi sala salaa sallam mm-hmm. jël alquran benn saar bu nekk nga multiplier ko mille fois mille mm-hmm. dellu si ci saar yi tas ko def ko ay aaya aaya bu ne nga multiplier ko mille fois mille dellu si ci ay tas ko def ko ay baat baat bu nekk nga multiplier ko def ko mille fois mille mhm. dellu si ci baat yi tas ko def ko ay xaraf mhm. xaraf bu nekk nga multiplier ko mille fois mille yàlla def muy leer yàlla su ko ci nene ñoo ngi gërëm na leen saxal benn daba mbay bu alaaj daba mbay bu sonnumul xayri waaw gis nga. papa Babacar bu <laughs> xam naa bala ñoo jox changé papa micro ma wax benn baat. dafa am ku may gërëm koo xam mënuma ko bañ a sant. muy Cheikh Ibrahim Badiane di Iran Ndaw parce que ñi ma xam ñépp xam nañ ni moom sax daje ba bu ma ko fekk danaa sama taaw ñëw na subhanallah ñaar fukki at ak nangam def naa ko ci loxoom. su ma ñëwee ba fii nag wax dëgg yàlla. munu ma bañ a munu ma teg sama kàddu te santu ma ko. Mm-hmm. Cheikh Ibrahim sànq bi ñuy dugg woon na ma mm-hmm. téléphone. yal mm-hmm. yàlla guddal fanam dañuy dañuy bàyyi rek dañuy bàyyi rek dañuy bàyyi rek dudu kenn mu tëj. nga tëjee foofu euh, voilà parce que li ñu jagleel ci temps jeex na ah, ah, dafa jot. dañuy jox dudu kenn mu tëj waaye dañu am mbégte mbégte mi bugaan am ci woo leen ngeen wuy si ko ak diggante bugaan. ak sëñ Abdou dafay bàyyam di xaritam yëkkati ci yëfi boppam ruga ko ci baatu bugaan gàmm bu jot su ma demee tiwaawoon ku woo duudu kenn mbay mun la ci palaatu mbay peex rek lay toog kon seen TV daf laa amee njukkal man ma amel la jaajëf mhm. boo gisee ma ñëw tey toog ci plateau bi ànd ko ak yéen Sénégal day benn bopp te benn bopp kenn du ko xar ñaar te bokk gu yàqu géwél piir fekkiwu ko te réew mi toll foo xam ne fii war nu jóg wax fexe nit dal ànd bokk ndey ak baay mhm. sunu xol sedd na sunu xel dal na parce que kenn waxtaane tey bi may ubbi neewoon naa leen mooy Sénégal kon yëg nañ ñu tey tubaarkàlla mooy Sénégal ñu sant leen rek mm. gërëm leen dudu mm-hmm. kenn ma bàyyi la nga yëgale bu ko defee nu tëj ndax waxtu yu jot na soxna Daba Mbaye bu soonumul xayri sëñ Babacar nee na xalifa jox na leen cent mille francs soxna maam Daba Sarr bu Pam Mbaye Sarr bu soxna Faatumata Si bu Seydil Hadji Malick moom itam yónnee na fi ay teraanga bi ci des itam euh, sëñ Babacar wax na ko waaye ñu ngi sant itam Euh, waa kër Baye Alé Ndiaye Abdoul Aziz comme ni nga ko waxee ah, ba nëgë ni continué nagu Baye Alé Ndiaye woow ci Baye Mbay Dondo ba nëgë ni mu ngi dox Abdoul Aziz di ko def ci ñun ñii Baye Makhtar Lo mi doon coordonné ak ñun ñu koy sant di sant suñu frère nag Cheikh Samb mu ngi nii toog moo ñu jëlee Tiwaawan di coordonné lépp di dox tout ngir rek ñu mën a ñëw teew tabaarakallahu yal na ko yàlla fay Abdourahmane Pay Souleymane yónnee na ma léegi téléphone nee na mu ngi beesal wóllëre wi nga xamante ni moo doxoon diggante Baye Mbay Dondo ak moom tabaarakallahu muy Souleymane Pay Bili ñëpp xam nañ ak dayratul kiram bépp moom daal ku ko topp sax du kii waaye dafa am Mouhamad Samb daf ni woon ñaan gi ñuy ñaanee Tiwaawan rek allah sa micro dafa sa micro dafa fay Mansour. Mansour nañ ko bàyyi nañ ko bàyyi nañ ko bàyyi mu tëj rek Mansour Mansour nañ ko bàyyi mu tëj rek. sa mi moo fay. Mansour xëdd jot na de. Mansour nañ ko bàyyi mu tëj Mansour sa micro fa kenn kenn déggul li ngay wax malheureusement. papa continuer shafaatu fi qadiyam ينال الرضا كل عبد موحد علاقتين في الذنب أو أنت مدي جرائرنا تمحى بجاي محمد إذا شفع المحبوب جاز المبهج جرائر يمحى بجاه محمد إذا شفيع المذكور بجاز المبارج جرائرنا تمحى مدي إذا شفع المحبوب بجاز المبارك الله حسبي لديني حسبي الله لما إليه اهتمامي حسبي الله لكل باغ علينا دائما أبدا كذا لمن يحسدني حسبي الله الله حسبي لمن بسوء كاد بنا كذاك عند مماتي حسبي الله وعند مسألتي في القبر ذا فرق لما اقترفت ذنوبا حسبي الله وعندما نسب الميزان معادلة نرجو نبي الهدى قل حسبي الله الله حسبي إذا مد الصراط على متن جهنم مدا حسبي الله الله حسبي لا yaa rabban siwaahu law توكلي وإيابي حسبي الله يا رب صل على المختار من مدر في حقي قلت حقا حسبي الله كما تصلي على آل صحابتي ما قال عبد المنيب حسبي الله اللهم يا من أظهر الجميل والستر القبيح ولم يأخذ بالجرير ولم يأتك سترا ويا عدم العفو ويا حسن التجاوز ويا واسع المال بالمغفرة ويا باسط اليدين بالرحمة ويا سامع كل نجوى ويا منتهى كل شكوى ويا كريم السفح ويا عظيم المن ويا مقبل العثرات ويا مبتدئا بنعم قبل استحقاقها يا ربي ويا سيدي ويا مولاي ويا غاية رغبتي يا ربي ويا سيدي ويا مولاي ويا غاية رغبتي يا ربي ويا سيدي ويا مولاي أسألك أن لا تشوي خلقتي ببلاي دنيا ولا بعذابنا فامن علينا إله العرش خالقنا بصحبة القطب في دنيا وأخرى لذاك توسلنا إليك بكل ما أتتك السماء محتلة بسعودها بارك مكة بارك مدينة بارك فاس بارك تيوان بارك الشيخ الحاج مالك بارك الشيخ الخليفة تيجي نك mooy anniversaire maam Salif Mbeng ajjuma ji mucc ci weeru koor ci la génnoon àdduna ñoom ambassadeur ma jóob ak aminta ak maam Adama ñoom ñëpp ak Idrissa ñu ngi ci ndar ak Dakar bis bii mooy anniversaire u maam Salif Mbeng bu aminta Mbeng xaali yal na yàlla fayi grand plateau